gi waaye dañoo toll ci weekend pascal weekend bu neex barki dem ba tey maa ngi naan leen réew mi dafa neex réew mi nag neex na ci ay fànn yu bëri waaye tey da caa nar a rawati puisque guddi maam Cheikh lañu ñu fas yéene amal ci télévision Futur Média ci kanam tuuti bu ngeen noppee ñun noppi nañu pour proposer leen soirée bu exceptionnelle bu ca kanamee tuuti ak sunuy gan ay borom xam-xam la ñu fas yéene séqal waxtaan wi fas yéene koo jagleel ci kanam tuuti maam Ibrahima Fall muy carte générale spéciale Cheikh Ibra guddi maam Cheikh tey ci télévision Futur Média waaye nag li mënul ñàkk faaw mu am li ñuy def rek mooy euh, bàyyi leen nag euh, li des ci programme bi la tàkkaar ci général euh, bokk na ci ziar ak Oustaz Modou fal nara feggoo ak Adja Cécile Adja Cécile nag yenn saa yi ma tooñ ko ne ko moom bu nuyoo danaan mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu elle a beaucoup de feeling et puis elle est trop belle waxtaan wi tey dinañ ko séq ak Mamadou Diallo ancien footballeur bëri na ay laaj yoo xamante ni ñoom ñaar bëgg nañu ko séq ak seen invité loolee ci kanam tuuti lay lay doon mais d'abord bu leen fàtte seeni suukaru koor addiya Cheikh Ibra dañu koy tàmbali di ko joxe même bu fekkee carte générale commencé gul mën ngeen dès à présent tàmbali di woote ci numéro de téléphone yi nga xamee ni mu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 676 07 07 numéro bu baax la mën ngeen ci woote léegi nii maanaam même bu ziar di jàll man damay jël téléphone yi pour ku dugg ma jox ko addiya wala suukaru pak 200000 lay tàmbalee jëm kaw mën naa mayee ba 1 million 1 million chaque soir loolu télévision Futur Média moo ko moo ko mën ci yéen ñi nga xamante ni yéen a fidèle ci suñuy programme moo xam ci seen i téléviseur wala ci plateforme yi puisque je le di chaque soir télévision Futur Média mooy première télé digitale fii ci Sénégal juste après ziar ñu tàmbali. quartier général ziar tey comme chaque soir dañ ci ànd ak Oustaz Mout Fall sama xarit ak Adja Cécile. xaalis gën a yombee Orange Money le calpé le plus sûr le plus rapide et le moins cher pour recevoir de l'argent de l'international gën a noppale Orange Money Rahman ya Rahman ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن salaamaaleykum waa àdduna na woon fa woon rek ñu ngi nii ci Carrefour Maquette piscine olympique ku fayee Orange Money ñu teral la bégal la may la 90 secondes yoo xam ne loo jël Orange Money ñoo koy fay ayca ñu dem bégala ti gaa ba pare nga pare na pare nga yow rek pare nga ayca kon ñu dem ready steady go yaay boy dega jul yaa ngi romb bagage yi laa ilaaha illallah baal ma baal lu yaa ngi jël pour set la daan yi bi loo fi jël yaa ndax orange money mooy bég tey bégale orange money oh xoo yaay booy arrête arrête arrête temps bi jeex na. te ñëpp nag di fayee ci orange money. waaw waaw orange daal moo ko yor. moo nga am ci lii lépp. waa jarul te nag daw nag bay kii ceeb baak meew baak. waaw ko ca biir. orange money la ñu àndal orange moo ko orange money la ñu àndal orange moo ko yor. orange money. original ay waay féexal ah, na gu. original pur jus de fruits orange. Hmm. mu yéen ananas nag eh mbay lii cocktail bi moom hmm. mango moom da ngay di saqami. original ay waay original moo leen di wéttali si seen xew-xew ouvre un nouveau bonheur à chaque gorgée di naan di sàqami déet bul pàkkar ñi nag ñun yow rek la ñuy topp originalement naturel Amira am na torsa ak spaghetti de neex la def namatuñu dara ci macaroni cancel, ça cancel. aw buur Êtes-vous prêt à redécouvrir la magie intense d'un produit d'exception? Une seule goutte pour prendre le contrôle de votre cuisine. Des arômes, du goût et des saveurs incomparables. Faites gronder le tonnerre qui sommeille en vous et réveillez-vous en chef cuisinier. Laissez-vous emporter par nos produits variés pour vous transporter dans l'univers culinaire réinventé de Caddy. Agrémentez vos fritures, vos marinades et vos sauces avec nos savoureux produits faits de vrais ingrédients. idéal pour toutes vos idées culinaires. Faites-nous confiance et maîtrisez votre cuisine. ak koo xam wóorul Melolac am na bépp ferñeent bu jëm ci wergu yaramu xale ak màggaayam neex sakkante sell ku ko ñam dootu ko bàyyi ak Melolac màggaayu xale bi day gaaw ba mu jàppee boppam mag Mélolac, votre bébé grandit sainement. sa yoon bu la neex bu la neexee nga dem Pikine marché Zeng ca Njaay Jesner bu la neexee nga dem Cité Fadia ca Njaay Jesner ah dama ni réew mi képp kuy jaay Jesner mënula laa jox certificat d'authenticité Njaay Jesner da lay jaay ba noppi jox la certificat d'authenticité nga xam ne lii ca usine Jesner ci boppam la jóge cay Njaay Jesner Njaay noo sant mu ne Jesner Njaay loo indi ren ci sa boutique yu bees yii boutique bu bees bi nekk marché Zeng boutique bu bees bu mag climatisé lépp nga fa Njaay dafa indi jesner super magnum gold Ndiaye jesner indi jesner wifi jesner anour daa di indi nag jesner princesse nga xam ni boobu nag jigéen ñee ko moom ma ne ko Ndiaye yépp daa ànd ak certificat d'authenticité mu ne ma waaw réew mi maa fiy jaay wan la certificat d'authenticité jesner ma ne ko ak lan mu ne cuubu takk jesner ma ne ko waa Ndiaye mu ne ma am naa tam lu bees lafa yaa cristal yaa ngi nii tissu xew yaa ngi nii perlage nag ay Ndiaye jesner mu ne ma am naa pilxa cristal ma ne ko brodé pilxa rek dafa am waaye nga am brodé pilxa ba noppi amati brodé pilxa cristal njaay mu ne am na tamit bazin riche gold XL njaay dalay jaay en gros nga dem jaayi waat mu joxaale la certificat d'authenticité di jaay détail bu la neexee nga dem ca njaay Jesner marché Zeng jëlal numéro téléphone am boutique bu bees bu mag bi 78 575 11 03 njaay Jesner am na tamit boutique cité Fadia 78 315 315 46 49 78 315 46 49 kenn du Ndiaye Jesner ci mim réew Ndiaye Jesner mooy toqal ci xol yi neex neex. bëgguma dara kële rek. Rahman ya Rahman saidni ya Rahman ishrah sadri Quran imla qalbi Quran wasli hayati Quran. Fidèles téléspectateurs de la TFM toujours un plaisir de vous retrouver ci seen émission Ziyaar beneen numéro beneen invité mais balaa boobu damay bàyyi oustaz préféré oustaz Modou Fall euh, nuyoonte ak yéen. jërëjëf Adja Cécile maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel itam ci weeru sell wi ñu nekk. di ñaan yàlla rek lépp loo xam ne woor nañu ko yàlla nañu ko yàlla nangul ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. merci oustaz tey nag chers téléspectateurs ñu ngi dalal ci suñu numéro bi monsieur Mamadou Diallo sportif coach beach soccer monsieur Diallo ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw ah, Cécile maa ngi lay nuyu di la ziare di la baalu ak di la baal ak comme niñ koy waxee ñëwoon nañ fi daaw. ren fekkaat ñu si nañuy ñaanaat yàlla suñu borom ay ati at fekk ñu fi. amiin ko aussi tamit euh, oustaz oustazos tamit ñun ñoo fi nekkandoo woon defandoo émission bi yàlla nañu yàlla mayaat ñun ñëpp ñu fekkee waat ko nekk mboolem jullit dinaa ñëw sa question mais balaa may ñëw aussi comme yow xaritu buuba nga te buuba dala sonal <laughs> dafa am lu ko mas a dal nga xam naa yàkkamte ko moom la parce que xam nga man maay délégué de quartier Ngor Almadi mhm. comme man maay délégué de quartier moom d'accordul ma nekk délégué de quartier mhm. moom moox El Hadj léegi yàlla nattu ko mu ne moom comme moom d'accordul ma nekk délégué de quartier te fal nañ ma ko ba pare yàlla nattu ko El soxla certificat de domicile nangu lu ñu ma ko woon moom ti mu soxla beneen kayit nangu lu ñu ma ko woon léegi man laaj leen ndax man maay délégué bi wala man du ma délégué bi mais boobu yaakaar naa ne nangu nañ ma nekk délégué bi <laughs> merci. comme mun nañ noter ne que ay voisins ngeen yéen ñëpp. exactement. <laughs> monsieur Diallo fu euh, Sénégal toll ci sport boobu di beach soccer actuellement bu ñu ko doon euh, évaluer. waaw ni ma mun a wax ko évaluer xam na Sénégal dem na tout récemment dem na coupe du monde mhm. mais place ñu doon xalaat ñu fa parce que bi ñuy mujjee coupe du monde bale paas demoon nañ lu tolloo si demi-finale mais cette fois si dañu toog si premier tour bi mais premier tour bi nag dafa bari ay jàngat yu bari am yu bari yu nekk si biir yoo xam ne il faut que après loolu nit ñi jéem ko xoolaat pour régler ko waat parce que comme niñ koy waxee rek bu wax jotaay dinañ si waxtaan parce que comme niñ ko waxee maay entraîneur bi mais comme niñ ko sama rapport joxoon naa ko ñi nga xam ne ñoom ñoo ma ñoo ma jiite si kaw donc ñu ngi doon jàng rapport bi pour xool lan lan mais xam naa ne bit ci sa ko képp ku koy pratiquer toll na foo xam ne il te faut beaucoup de matchs amicaux parce que match de amical moo lay mun a may compétition booy dem aussi tamit résultat yi day gën a yomb. ah donc ñu lay euh, féliciter rek parce que déjà dem euh, coupe du monde je pense que c'est pas facile. et ñu lay encourager également euh, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à aller plus haut côté beach soccer. Ah, li ñu gën a mën a pousser ñu dem trop loin mooy d'abord comme ni ñu koy waxee gën a liggéeyaat parce que am na équipe yu bari yoo xam ne tey beach soccer ñu ngi liggéey. Euh, que soit que muy Europe que soit que muy Afrique bi nga xam ne ñoo nekk Afrique bi nga xam ne Sénégal moo fi tegoon tànk mais bu su ko bi dafa commencé soppeeku parce que am na ay équipe yu bari yuy ñëw comme tey jii boo naree dem tey Coupe d'Afrique bi war a am ni boo demee foofu am na équipe bu mel ni Maroc. boo xam ne dañuy jël entraîneur sénégalais comme Ngala Mousila bi fi nekkoon ma ma ma ma nekkoon adjoint tey remplacé ko. ñu jox ko ay mu nekk foofu di liggéey y a aussi tamit Égypte même Mauritanie bi ñu ngi liggéey saaf di ne équipe yu bari ñu ngi liggéey léegi nag li moom li ko mun a gën a yëkkati mooy gën a liggéeyaat. aussi même si gën a liggéeyaat bi ñu xam ne aussi tamit euh, Betty ko boo koy def aussi dafa utee football à onze onze parce que spécifique la te boo koy def dafay soxla ay match amical yu bari bari match amical yooyu mooy mën a may sa jour yi ñu gën a mën a techniquement ñu baax ñu mën a taxaw si terrain di gën a mën a jànkonte di gën a mën a compétir mais boo dul def nag ay match amical yu bari après boo ñëwee si benn euh, période da ngay am problème pour mën a réussir li nga bëgg a def d' accord donc ñu jàpp ne que match yooyu noonu rek moo des donc euh, ñu wax ko accroître mu gën a bëri pour euh, entraînement bi gën a. exactement parce que match amical yi mooy mën a dimbali xale yi parce que match amical si le jour yi di amee expérience si la entraîneur di amee expérience pour que football bi gën a mën a jóg. d' accord euh, monsieur Diallo si mois de Ramadan bi qu' est ce qui change ci entraînement yi da ngeen di entraîner wu wala. non xam nga tey euh, am nay période boo daan préparer tournoi wala di préparer lu mel ni Coupe d'Afrique bu fekkee ne dafa tombeex euh, Coupe d'Afrique bi jege da ngay obligé di entraîner mais da nga doon entraîner avant dog di jot après dog aussi tamit nga entraîner parce que mënoo woon toog mais période bii dafa tombe tey jii équipe nationale yëpp amuñu benn compétition donc lu si bari comme football comme beach soccer boobu noonu dafa tombe période bi jotagul parce que je pense Coupe d'Afrique bi des na fii juróom weer wala fii juróom-benn weer. bon courage à vous bon courage à notre équipe de beach soccer ma bàyyi la ak oustaz nga posé ko sa question moo xam lu bëgg xam ci wàllum diine wala loo bëgg leerlu. waaw oustaz euh, comme ni ma ko maa ngi am mbégte toog fii am mbégte aussi tamit euh, di lay laaj parce que ñu ngi lay d'abord di gërëm si liggéey bi ngay def ni nga koy defee ku la gis tamit si télé bi dina la naw ku jàkkaarloo yow gën la naw. donc question bi ma lay laaj mooy dafa tombé jamono tey mooy lan nga xam si àdduna nit ñi nga xam ne mu nekk sa place liggéeyukaay ak fu mun munti nekk nit ñi nga xam ne chaque jour yow si loo nekk ñu ngi si wax lu bon walla di si def lu bon walla même te sax si liggéey bi nga nekk mun nañ dem ba si sa ñi nga xam ne ñoom ñoo la jiite si kaw ñuy dem di wax wax yoo xam ne yow tey wax yooyu doo ko mun a fekkee mais lépp pour yàq rek. te boo gisee loolu tey moo moo lëmbee àdduna bi tey parce que àdduna bi tey boo xoolee li si ëpp tey dafa dafa commencé soppeeku euh, loo xamal nit nga wax ko loo xamalul nit nga wax ko surtout da ngay créer di fabriquer donc loolu laa bëggoon laaj lan la si lislaam wax alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi nu sunu borom ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu sunu invité bi nga xam ni moom la ñu dalal tey muy sunu soppee di sunu xarit di nit ku baax ñu di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla yàlla gën a barke liggéeyam ci daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam. mu mel ni laaj na laaj bu am solo muy yàqante bi nga xam ni ñi ngi koy def ci sunu biir te ñun ni koy def ñëpp ñu tuddee sunu bopp ay jullit te jullit warul yàqal moroomu jullitam. xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci dundam dafa am lu mu dénkaane woon ne jullit waru koo def moroomu jullitam ñu ne ko yonent bi yan ak la mu ne laa tabaxadu bu leen bañante ñu ne ko lu tax mu ne jullit wër ta bañ moroomu jullitam wala taxaasadu buleen iñaanante bu leen gis nit yàlla teral ko ci li mu nekk ngeen di def ay pexe pour mu torox bu leen gis nit yàlla yëkkati ko ngeen di def ay pexe pour mu daanu bu leen gis nit yàlla teral ko ngeen bëgg yàlla toroxal ko te loolu Serigne Cheikh Tidiane si wax na ko ci benn waxtaanam mu ne jamono ngi ñëw mu jóg jamono nit ñi seen waxtaan yépp mooy diw amoon na ñàkk na diw feebaram ba gën naa yokk diw toroxal nan ko mu ne te loolu ñi koy defante kat mooy ñi nga xam ne ñoo tuddee seen bopp ay jullit kon yonent bi bokk na ci ndénkaaneem jullit wër te yàqal moroomu jullitam te gis nañ léegi senegal li fi am loo nekk am na ñum neexul loo nekk am na ñoo xam ne bu ñu sañoon nga ñàkk ko ñii ngi jub pour yàqal la te mbokk yi nanu xam ni xalima ga yàlla doon dogalee wow na nit ku nekk li yàlla dogal ci yow kenn mënatu koo changé xul lan yusibana illa ma kataballaahu lana huwa naa yàlla nee na bu àddina bi yëpp àndandoo woon pour yàqal la te ma namm ci yow defar sunu borom nee na kenn mënu laa yàqal kon nañu yéenante jàmm te bëggante te bàyyi yàqalante te xamul te xam ne amul benn njëriñ ci sunu diggante yàlla nañu yàlla may dégg gu ànd ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullah Adja Cissé amin oustaz oustaz dafa mel ni nag question bi nii lu muy ñëw bëri de lu waral loolu ah gars yi da xam naa ni <laughs> dañu bokk problème ñoom ñëpp ndax Sénégal li ñu tardeel def ci bokk xeexante li ñu tardeel def ci bokk ñàkk nangu li ñu tardeel def ci bokk nit ku yàlla teral te nanguwoo xeexante bi bari moo waral nga jékki-jékki ubbi sa biro gis ñu tegal la ay nen ci bunt bi te xam nga ay nen bu demee bay toog bañ koy teg ci buntu bureau jàmm taxul yooyu yëpp yi koy indi ci réew mi mooy gis ko yàlla teral rek te nanguwoo ko te yàlla xam na ni ëllëg yowmal xiyaam bu nu dikkee ñun ñëpp buñ ko indilee xol bu sell rek mën ñëw mucc te ku sa xol rafet doo def nit lu bon. fidèles téléspectateurs l'émission touche à sa fin balaa boobu dañuy remercier suñu sponsor yi ku ci mel ni waa groupe Sénico ak seen euh, pâte alimentaire Amira boo leen di tànn ay Amira seen euh, gamme bi mu am spaghetti am macaroni am vermicelle toujours groupe Sénico ak seen margarine Caddy euh, c'est léger c'est raffiné mun ko utiliser à tartiner mun ngeen ko utiliser tamit si seen wàññi ñuy remercier Ndiaye Jesner bëgg ngeen ay tissus yu rafet dem leen foofu si Ndiaye processus en gros et en détail euh, mu ngi nekk Pikine nag euh, tali bu mag marché Zinc numéro bi nekk 78 304 20 04 mu am magasin bu bees bu nekk tamit foofu noonu ci Pikine numéro bi nekk 77 euh, 575 11 03 ñuy remercier waa jus original euh, originalement votre originalement bon son colorant sans conservateur c'est rafraîchissant existé na nag en cinq parfums muy orange mangue euh, ananas pêche ak cocktail distribution exclusive euh, au Sénégal et dans la sous-région par euh, Nukuman Group ñuy remercier suñu sponsor boobu di orange mu leen nag ci ramadan bi ay offre euh, bu ci mel ni ak orange monnaie ndax pour chaque transaction via l'application Maxit tentez de gagner l'un des 100 suukaru d'une valeur de 10 000 francs par jour. Avec l'application Maxit, c'est jusqu'à 1 million qu'Orange offre par tirage au sort tous les jours. Toujours Orange, c'est euh, une boutique Orange Money Bobo. Pour chaque dépense de 50 000 francs, tentez de gagner des sous record. Ak après chaque euh, souscription, vous pouvez gagner un euh, cadeau. promo bi nag mu ngi dem ba ci Nola Fun 3 disponible maintenant à 29 900 ci weeru koor bi 29 900 24 900 pardon seulement am ngeen tamit ay réduction de 50 pour cent si frais d' bi donc euh, ngeen xam ne ne que euh, connexion bi dina gën a yomb ba pare dina gën a gaaw ak euh, fibre bi. jusqu'au 9 avril sur Wido accède gratuitement à un éventail de contenus divertissants entre 18h entre 17h30 et 18h30 pour enrichir l'expérience de ce mois béni de Ramadan. le pass roaming allo et pass voyage orange ñu ngi leen ko yombalal ci umra bi également am na ay réduction yoo xam ne que c'est très considérable pour une communication sans limite ak euh, seen famille ngeen nekk umra di euh, communiquer fii nii ci Sénégal ci ay tarif yu yomb ñuy remercier suñu sponsor boobu di euh, Sénéfoot ak seen lait en poudre Nour et leurs céréales pour bébé Mélolac Euh, suñu invité bi nag suñu sponsor yi moo ko baaxee cadeau yi ngeen gis waa Sénico waa Nour ak euh, waa jus original monsieur Diallo yaa ko moom. jërëjëf. Mm-hmm. maa ngi lay remercier aussi di remercier oustaz di remercier sénégalais yi ñu doon seetaan yëpp. di si profité aussi di sargal euh, président Macky Sall bi nga xam ne moo nekkoon suñu njiit pendant douze ans. def def liggéey bu bu am njëriñ donc ñu ngi koy remercier di ko sargal di profité aussi tamit muy suñ président bu bees bi bi egsi muy Diomaye di ko ñaanal aussi tamit li muy li mu yor nii mu sedd si moom parce que comme moom moo ñu jiital bu seddee si moom rek sedd si ñun ñun sénégalais ñu accompagner ko jàppale ko si liggéey bi di profité nag di baalu àq ñëpp di baalu Sénégal gi yëpp di baalu sama njaboot di baalu sama xarit àq te baal naa ñëpp. <laughs> jërëjëf monsieur Diallo merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation chers téléspectateurs nous nous revoyons demain inchallah sur la chaîne Télé du Futur merci. fii la jot xaalis a yombe Orange Money le calpé le plus sûr le plus rapide et le moins cher pour recevoir de l'argent de l'international gën a noppale gën a wóor gën a Orange Money. Rahman ya Rahman, saidni ya Rahman. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصل حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا diiru weeru koor gi Free andil na leen ay sukkaru koor yu neex jusqu'au 8 avril souscris à un forfait Ilimax Tawfekh ou internet à partir de 500 francs et tente de recevoir un sukkaru koor de 25 000 francs ou de 50 000 francs via Free Money tappel gaaw dièse 155 dièse wala dièse 150 wala boog nga jaar ci sa application My Free ngir jënd sa forfait jot sa pañe ndogu sukkaral sa koor ak Free Free moo leen di ñaanal kooru jàmm. daana meew bu baax mooy jox sama njaboot li gën ci meew nag biir bu neex. taamu l'écran bu nekk mooy tax ma jox sama njaboot sama mbëggeel bés bu nekk. l'écran firndeel mbëggeel bi gën a wóor ngir ndogu bu neex fu mu ñu munti fekk ñun ñépp a bokk li ñu tàmmu te mooy meewu l'écran ramadan mubarak si diiru weeru koor Orange Money daf leen di sagal bés bu ne avec Orange Money faites vos transactions et bénéficiez d'un des 100 soukoru koor d'une valeur de 10 000 francs CFA chaque jour pour en savoir plus rendez-vous sur nos réseaux sociaux kooruk jàmm ak Orange Money يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا لا xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg na mën dara teranga koor ak pastami ak farine farima wala sax ak roli waaye tamit ñu wàjjal korité ak aliment cher NMA mooy li ñu moom. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu TFM. c'est dit. lay ñëpp naan TFM bi seeni loxo jotul seen ginnaaw moo ko tax a jóg Touba Ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons RTFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw koor dara dàqul waxtu bi ma war a bokk ak sama yawurtu yëli tare bi ci guwu meew bu neex bi ub yëli tare moo leen di ñaanal kooru jàmm Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM. chargez gaaw application Yassir Yassir la vie au plus facile. xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg a. namuñ dara baguñ dara. seetu Sénégal TFM lañ bëgg a. waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM. Des le meilleur du thé. teronga koor ak pastami ak farine farima wala sax ak roli waaye tamit ñu wàjjal korité ak aliment cher NMA mooy li ñu moom bagun dara seetu Sénégal TFM lañ bëgga Sucria mooy bégal Sénégal gépp ci seeni ñamu suukar jërë ngeen def seetu Sénégal TFM inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika li man yasha sunu borom ne bokkaale laa dul jéggale mais bakkaar lu mu diis diis diis diis lu mu rëy rëy rëy rëy man yàlla maa koy jéggale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeem suñu borom nee na jullit yi ci sa barke bu nu may tooñ di ma jéggalu man yàlla ma di leen jéggal wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun kon nag fukki fanu njëkkal yaa ngoog bokk Sénégal yal na ñu yàlla jéggal original ay waay féexal ah, na gu original pur jus de fruits orange mmh. pêche yéen ananas nag e mbay lii cocktail bi moom hmm. mango moom da ngay di saqami original ay original moo leen di wéttali si seen ouvre un nouveau bonheur à chaque gorgée di naan di sàqami déet bul bàkkar ñi nag ñun yow rek la ñuy vous prêt à redécouvrir la magie intense d'un produit d'exception une seule goutte pour prendre le contrôle votre cuisine. Des arômes, du goût et des saveurs incomparables. Faites gronder le tonnerre qui sommeille en vous et réveillez-vous en chef cuisinier. Laissez-vous emporter par nos produits variés pour vous transporter dans l'univers culinaire réinventé de Caddy. Agrémentez vos fritures, vos marinades et vos sauces avec nos savoureux produits faits de vrais ingrédients. Idéal pour toutes vos idées culinaires. Faites-nous confiance et maîtrisez votre cuisine. doxal say jeex kaas ci kaw kaas bés bu ne tàmbalee ak cawarte jeexalee ak yokkute nees kafe ci biir weeru koor gu sell gi ñëw leen gaaw xool suñu offre yu spécial yi nga xam ni moom la ñu am ca DSL Dekakila ngeen mën a profité ci suñu promotion spéciale weeru koor ñu wàññi leen 10 pour suñu machine à café yi wala ngeen defar seen thé yu toog ak suñu bouilloire yu rafet yii wala suñu thermos yi suñu mixeur yu mën yi wala suñu air fryer yii ak suñu micro-ondes yu pratique yi ak suñu four électrique am nañu tamit ay cuisinières 4 ba 6 ay cookers minutes ñu leen xool suñu barbecue yi nga xam ni da nga siy def këriñ wala à gaz machine à toaster pour defar panini wala pizza suñu réfrigérateur ak congélateur yi nga xam ni dafa mën a denc fekk leen ñu suñu showroom 77 201 07 12 wala 78 711 87 52 wala 77 750 32 05 wala 77 680 14 75. leen ameublement ku ko xamul dégg nga ko liggéeyam dafa ànd ak jamono xool leen yile meuble de qualité made in Sénégal ñii ñooy Touba ameublement xarañ lool ci meuble am nañu ay salon en tissu velours des salons en cuir authentique ci couleur bu la neex ay salon capitonage ay huit places ak ay salon sur mesure bu leen amati benn jaaxle salon marocain yi ngeen bëggoon mi ngi nii ci dimension bu la neex téléphone 77 555 64 78 pour une maison qui vous ressemble contactez Touba ameublement au 77 430 02 02 vous voulez un style de meuble unique des produits pour sublimer votre intérieur ay chambre à coucher ci ay design yu raar fii la am ci Touba ameublement ñu ngi ci rue 3 angle Blaise Diagne en face stade Iba Mar Diop téléphone 77 431 03 03 Touba ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons mel bu baax daal moo noppale ma ne fii ma ne fële daal laaliya moo ma doy si ndekki waay xoyal ci sa kaas ndekki lu neex lool

mbégte bi yàlla wum a jeex. waaye café <laughs> ak mbégte bàyyi <laughs> café téeméer laa yor bëgg a bokk mais bokk nga ci mbégte bu yàgg te yóbboo ko. 1,5 giga internet xanaa jommi nga. bàyyi café waay lii lépp li moom xéwal la di. mais yow bëgg ba faaw. li kay mooy bëgg ba faaw. jaajëf waay. Eh, eh eh gosse. waaw sama ne. mais 475 la xam nga ko. waaw waay ba faaw. <laughs> Oh. ju nekk am na lu ci biir ak ci jëmm ju nekk am na luy ubbi wërsëgam saabu jant soobee jëmm ju nekk am na lu muy tàmbalee ngir xewal yu saawaan baawaan man Oukayaar ndox mi bàyyeekoo fii ci gox bu naat moom laa taamu ndax xéwal bu am na lu koy sabab bu nekk na lu koy yombal xol bu nekk am na lu koy seddal Kayaar. Besoin d'un taxi? Il est dans l'appli. Tu ne cherches pas. Tu prends ce qui est à toi. Tu ne vas pas une fête, tu es la fête. Tu n'y vas pas simplement, tu y vas avec Yango. Téléchargez l'appli aujourd'hui di peinture muy xollee ko mbaa muy furi xewin peinture bu baax bokk na ci lii sàmm seen bâtiment TQG indi na leen ay peinture colorado yu mucc ayib ànd ak qualité pour yanjal ak sàmm seen ko bii mooy colo sud Colocide def di peinture lavable saa yu la neexee mën nga raxas sa façade te day aar seen bâtiment mi taw mbaa mi naaj du ko tax a soppeeku te itam mën nga ko am ci couleur yu bëri bi nag mooy colo vinyle 900 yéen ñi soxla peinture bu weex tàll te du xala mi ngi nii sakkan na mën a dem ci maçonnerie ci yi wala ci plâtre peinture buy jaay weex colo vinyle 900 moo la mën colosane moom bu ngeen bëggee peinture bu lisse lavable mooy bi gën ko Lausanne bu Colorado dañ ko liggéey muy penco bu mën a dékku taw naaj ak poussière te du soppeeku moom ko Lausanne baax lool ci bâtiment yi jege booru géej moisissure mënul ci moom dara granito doon na peinture pour extérieur wala intérieur u granito mën a décorer sa façade ba mu rafet ci couleur bu ba noppi protéger sa bâtiment ak colo sud colo Granito ak Colossane di nga aar sa bâtiment ko ba noppi sa poche. TQG Kër Damel extension rond-point Parcelles Assainies unité 26 TQG 65 rue Ngalandou Diouf TQG 84 wetu grande mosquée bu Touba. TQG Kër Massar guy gi route de ci wetu Brioche Dorée TQG la qualité suñu doole TQG moo di ñaanal weeru kooru jàmm. ak waqfu di sadaxa jariya mën ngeen cee soppi dunduk ñu bari fu joxe la bu njariñ la dul jeex ndax day wéy di meññ di jariñ askan wi saa su nekk. wakfu di lu ku tedd ki seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle dib sarax bu pay gala ci suñu borom di fay di wéy ginnaaw sax boo dëddu àddina kon def leen Waqf ak application Orange Money bii bu ngeen duggee ci paiement dem marchand laata ngeen di dugal code bi di 34 85 39 teg ca koppar ya ngeen fas yéene def Waqf wala ngeen dem direct seen téléphone ci dièse 144 dièse 5 étoile 34 85 39 dièse wala it ci plateforme bii di 3w point waqf tiré d'ici sénégal point com mën nañ koy dagg ci seen payoor jaare ko ci compte bis bii di SN 079 0101 251 080 400 886 002 39 man ngeen nit tàbbal ay wéccit wala billet xaalis ci boyatu condamné yi haute autorité bu wàq sanc ci supermarché yi ci banque yi ak yeneen place su mbooloo yi xaalis bi nu ciy dajalee dañu koy def ci kees gu mag gi état bu Sénégal taxawal atum 2022 ak léegi ngir ñëpp mën a barkeelu def seen wàqf ak nu seen poos mën a toll ngir ñëpp jot ci tiyaabay wàqf boobeeg wàqf état Sénégal yaatal ba ci ñëpp li ñu ci jublu mooy di financer maanaam gungee ki koppar ay projet wàqf yuy financement yu dagan ca tegu ci yoonu finance islamique xaalis bi la muy jur ñu koy financer ay programme yoo xam ne askan bi seeni loxo jotul seen ginnaaw moo ko tax a jóg CCST groupe SA industriel moo leen indil seen large gamme de produits ak marque bii di Soxna Mati ci diwlin Soxna Mati ceeb Soxna Mati soble ak seen boisson bu neex bii du ju Soxna Mati muy jus bu naturel concentré ak ay fruits ci biir CCST groupe nag yamul foofu dafa nekk en partenariat ak CCST distribution CCST transit CCST immobilier ak CCST automobile ci ay vente ak location auto yu baax mucc ayib ku leen bëgg a fekk leen ñu ca Golf Sud chez El Hadj Fall Pikine chez Cheikhouna Fall Parcelles Assainies chez Khadim Fall wala ci direction générale bi nekk avenue Lamine Gueye immeuble ambassade wala nga woo ñu ci 33 877 10 10 wala 77 716 28 30 wala 77 475 67 55. Nous facilitons les échanges commerciaux, acheminons ce dont le monde a besoin, là où il en a besoin. Imaginez tonnes de noix de cajou, produites, conditionnées et distribuées du Sénégal vers le reste du monde. Parce que lorsque les échanges commerciaux sont fluides, de nouvelles opportunités se présentent. <laughs> DP World, change what's possible. ah albarka neex na bëri na. naxee sax papa soo kontaanee rek kontaan naa. ci yi pareeguma ak yéen de. damay ñëw jëflanteeg yéen yu sell set te neex may ñëw. waaye yow eh, looy doyee dessert nga jox ñu lu diis lii. tubaab jaxate daal la saa kawas. papa. waaw ba ci. tu as bien moom lu muy yëndu laa a xam. yéen lii taare yéen lii taare yéen lii taare yéen moom bi moom laa la beral moom mooy gamme nature bi mooy bi nga xamante ne amul suukar pour ñi bëggul suukar il ak yëri taale rek ku nekk ak sa bos. Hmm. lii am na melokaan kat. on yelita on yelita on yelita on yelita on yelita francs nag c'est pour mon petit poussin dama la cee bëgg a laaxal ma renforcer yéen lii koy renforcer. on Evans Co, le spécialiste des grands événements, décoratrice de renom. Leila Evans and Co la grande diva de Nord Foire kooku mooy borom décoré mariage ba ku ñëw ci mariage ba di seetaan kooku mooy décoré ngénte ba ku ñëw ca ngénte la di seetaan dîner de gala bu ko décoré ba décoré entrée ba loolu yëfam la cocktail bu la ko defalee nga ne kii moo mën décoration amul lu mu amul ci wàllu matériel bu la defalee sa conférence wala sa conférence religieuse nga xam ne Leila Events and Co moo la liggéeyal anniversaire wala concert bu la defalee concert nag dalay defal concert bu mucc ayib ba defal la son et lumière tegal la écran indil la ay chaise VIP indil la chapiteau indil la moquette en gazon indil la ay fumogène muy saxaar ci entre artiste ba indil la ay feu d'artifice réew mi yëpp Leila Events and la ñuy wër ci wàllu décoration production ci wàllu événementiel Leila Evans Co 77 563 34 34 ou le 77 330 42 06 kenn du Leila Evans Co. ravitaillement ndugg bu jàmp wala loo nam jaratul ngeen di déplacé wu ak application Yassir dangay toog fi nga toog commandé lépp li la yitteel si sa supermarché ñu livré la ko ci lu gaaw rax si dolli ñu baaxee leen ay produit yu am solo lool ci njëg yu gën a neexati Yassir dina la livré ci diiru ay simili yu néew bés bu jot diggante huit heures si suba ba minuit looy xaarati téléchargeel gaaw application Yassir kooru ren ji ay xéwal rekk la ak Yassir ci diiru weeru koor gi yépp livraison bi doo leen ci fay dara Yassir la vie en plus facile. Sénégal ñëpp a bëgg ñëpp a fier ndax lu rafetee ni mësta am Sénégal fii la ñuy wax kër Khalifa textile 2KT mu lay jaay en gros bépp xeetu tissu ana tissu ba nga bëgg yaa xam gros yaa xam détail waaye boo yegsee ci suñu place kër Khalifa 2K textile nekk fii ci Parcelles Assainies janoo ak station Total bu joor ci rez-de-chaussée bi maanaam ci suuf di nga fa fekk wax bazin riche fil à fil brodé voile brodé lépp loo xam ni rek da di xeetu tissu boo premier étage ca espace VIP ba di nga fa fekk ay tissu de mariage ay til ay jipir original pirxa original la faya tissu pour homme qualité supérieure yooyu ñoo nekk ca kaw Getzner boo bëgg ca qualité supérieure am na fa deuxième étage ba nag lépp luy rideau décoration pour kër ak bureau ah dama ni kër xalifa textile sagal nga Sénégal Sénégal yëpp nga sigil lii nga def biir Parcelles Assainies en face station Total Dior ñëpp ci fier kër xalifa textile 2KT kenn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 ak bouquet canal plus yii dund koor gu sell ak chaîne yi gën bu leen dara rëcc ci chaîne religieuse yu mel ni Touba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall ak Malikia TV chaîne sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor gi rax ci dolli ñu ngi ci bouquet canal plus yi dem leen léegi gaaw abonné wala rey abonné wu ji ngir dund mbégte seetaan programme yi gën a neex si télé sukkaru koor daal canal plus rek moo ma si doy nga teew ndax man ah maa ngi bég ndax yow li ñu boole moo bari doole ceeb bu neex bi sàngo su ma gëstoo gis la kontaan su ma la xoolee ree ceeb bu sàngo ma ñu yow laa bëgg mandarga yi koy ràññee mooy bopp ceeb yi bee couleur bu bleu bu rose bu beige am na vingt cinq kilos am na cinquante kilos yow mii rek yaa ma jaral dugg ci waañ di toog bu bés bu ne am na parfumé ak no parfumé sama sang bi ci biir kër gi kenn du ko jaawale <laughs> ceebu sangomar yow la waa Bisaab gis nga ataaya li mu ma def dàq ma malgré ni ñu yàggee ndax Sucria. Sukar man ak ataaya waxtaan nañu. te ànd naa ci décision bi mu jël. Sucria bi mu ñëwee ba léegi ñëpp kontaan daf lay jox cafka sukar gu neex rax ci dolli boo jabetee du yéege sa sukar amul benn calorie pour ñuy régime ak di contrôler seen poids. waaw. waaye ak lu Sucria baax baax yow ak yeneen ci yi waroon leen ci ànd surtout yow bisaab ndax da ngaa nakaree suukar mën ngay sànni xeer mais garaawul waaye daal léegi yow yaa tax gaay yëpp di daw ju yu neex yi ndax ragal sukkar gu bëri. mais Sucria est-ce que seet ngeen ko bu baax balaa ngeen may dàq est-ce que moom wóor na. Sucria wóor na kañ mi ngi fi depuis 2017 dafa sell wóor. amul effet secondaire docteur yu bëri ak pharmacien yi dañu koy digle amul benn loraange. kon daal seen décision jël ngeen ko léegi xanaa di ngeen ma defal pot de départ. waaw gisoo gâteau yi ak keek yi ñu commandé pour yow. j'espère que du gâteau bu am sucré rek. ah kay ndax sucré Sophia moo gën ci wér gu yaram. xale yi ñëpp TFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM. jërë ngeen seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen seetu Sénégal TFM lay ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw waaw TFM jërë ngeen seetu Sénégal TFM xale yi ñëpp TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ seetu Sénégal TFM lañ FM lañ bëgg mbokk ñu ngi leen di nuyu ñu tàmbaliwaat euh, guddi euh, gu bees ci télévision Futur Média guddi mam Cheikh lañ leen di proposer tey ci quartier général bi dañu koy tàmbali dès à présent seeni i addiya dañu koy séddale ci numéro de téléphone yi nga xamee ne ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi li ñuy njëkkee nag le temps euh, ngeen di ñu woo di daw di dugg si 88 628 76 76 wala 88 628 65 65 ak 88 628 22 22 wala 88 628 bon 76 76 bii ngeen di gis numéro bu baax la donc téléspectateur bu dugg ñu jox ko addiya Cheikh Ibrahima addiya Cheikh Ibra la ñuy joxe wala euh, suukaru Pâques puisque ñu ngi ci weekendu Pâques donc ñu ngi ndokkeel suñu mbokk chrétien yëpp ak fu ñu mënti nekk ci àddina ñun ñëpp a ngi fi euh, pour gunge leen euh, ba ci kanam ñu profité ci pendant que ngeen di woote jox leen téléservice bi bokk na ci xibaaru jaww ji tey samedi la suba dimanche lan mooy prévision yi c'est parti euh, pour ñu xool li nga xam ne ni mooy carte bi ñuy sukkandiku euh, pour jox leen euh, température yi ci gox yeeg gox-goxaan yi nekk fii ci Sénégal Dakar dina xëy ak minimum buy toll ci dix-huit degré même chose à Saint-Louis dix-huit degré dix-neuf degré boori Diourbel dix-huit fële nga xamante ni moo di Louga dix-neuf degré Thiès 19 Fatick Kaolack 20 degrés Kaffrine 24 degrés Tambacounda 28 26 degrés Matam Kédougou 29 degrés euh, Kolda 26 Sédhiou 24 degrés Ziguinchor 20 degrés bu ñu demee nag ba ci après midi bi météo mu ngi xamal ni thermomètre bi mën naa yéeg daanaka euh, ba ci maximum yu nar a toll ci dafa yéex jàpp. Euh, 42 degrés euh, ci ay dëkk yu mel ni euh, Tambacounda 43 euh, Kédougou Kolda 40 degrés 39 Sédhiou 37 degrés Ziguinchor 37 degrés Fatick Kaolack 36 degrés Diourbel 37 degrés Matam 41 Louga waaw TFM jërë ngeen jëf seetu Sénégal. ok jërëjëf. bu weesoo <laughs> température yi ñu wan leen waxtu mare yi marée haute ak marée basse waxtu marée haute yi la ñu koy njëkkee marée haute yu njëkk yi météo nga ko prévoir bu midi 36 euh, jotee marée haute bi ci topp daañu ko am bu minuit 6 jotee waxtu marée basse yaa ngi nii bu njëkk bi météo nga ko prévoir 6 heures 6 du matin euh, bi ci topp daañu ko am bu 18 heures 43 jotee jant bi du biddanti dina xëy bu ñu xëddee ba noppi euh, boori 7 heures 6 Euh, du matin nar a tëri guddi gi bu 19h une euh, jotee ñu gërëm bu baax euh, service national météo ñoom ñoo ñuy baaxee xibaaru jaww ji ci télévision Futur Média guddi gi ci première partie quartier général ayca na woote yi dugg gaaw na woote yi dal. fan yëpp dëkk bi dafa neex tey nag dafa nar a gën a neexati puisque guddi maam Cheikh lañ leen di jagleel ci télévision Futur Média ci kanam tuuti ñu dalal sunu gan. moom nag bokk na ci borom xam-xam yi gën a mag euh, fii ci euh, Sénégal thème mu tey bi Oustaz Pape dina ko détaillé bu ca kanamee tuuti vie et œuvre de Cheikh Ibrahima Fall sunu gan di euh, Serigne Moustapha Fall Fati kan moom nag Serigne Modou Aminta ci njabootam la bokk ba noppi itam maamam lay waxtaanee xam nga booy waxtaanee sa maam nag dafay neex loolu nag moo tax ñu tànn ko pour quartier général bii tey ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall donc ñu ngi koy xaar ci kanam tuuti bu yegsee ñu tàmbali waxtaan bi. ñu jox leen to de change bi ba ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi 1 dollar ñoo ngi koy weccee 607 virgule 734 francs CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 655 une livre sterling di xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 767 virgule yuan chinois di xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 84 virgule 170 di xaalisu Maroc ñoo ngi koy weccee 60 virgule 261 di xaalisu xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee huit virgule neuf cent cinquante sept franc CFA. ñan ñooy njëkk a dugg ma jox leen seen i suukaru koor wala suukaru pàkk deux cent mille jëm kaw 88 628 200 000 200 000 ñu lamb leen xool fu ngeen toll ci woote yi 88 628 22 22 Oustaz Pape Anne ñu ngi lay nuyu di la ziar ndokkel la. bégati ci sa teewaay ci quartier général bi xam naa ci naafila bis bi la ñuy jàll directement pour gagner du temps waaye laata boobu biñ la ziyaaree ba noppi euh, tey ñu fas yéene àndati ak euh, Sénégal ci guddi gu mag gu ñu jagleel góor gi nga xame ni saa yoon siid Sidi Ibrahim xolu Sénégalais yëpp sedd yaa saas maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziyaara di la ndokkeel bu baax a baax di ñaan yal na yàlla yokk la dëgëral. allahumma nuyu bu baax a baax Mouhamed Ndiaye suñu soppey bopp. Mhm. di ko ziyaara. Euh, di nuyu. El Hadj Pape Thioune maa ngi moom xam ñoo bokk dëkk Thiès. waaw ak yow tamit Thiès nga dëkk ay ay nitu Thiès lañu <laughs> Oustaz. ndax Adja dafa jaxate Thiès la ngi noonu. Adja roq daba waa Thiès la. waaw waa Thiès la ñu koy yaa ngi dëkk jaxaaw mi ngi noonu. xam naa randu leen la jógee. <laughs> randu leen. ngi noonu ñu ngi maa ngi nuyu waa Thiès yëpp nag El Hadj Pape. mais El Hadj Pape di la ndokkeel di nuyu soxna Sofiatou ñaanal leen yal na yàlla yokk la dëgëral. Uh-huh. Uh, nuyu waa Thiès yëpp nag su ma ne boo tuddee cees nag. sa xel dina dem ci El Hadj Mor sopp nabi. wallaahi El Hadj Pape El sopp jàpp na bi nekk Thiès loo xalaat ci mbaax ma nga ca ah, alaaj Moor Gueye sopp na bi dafa nekk Thiès di dundal alxuraan ah, waaye mboolem ñiy tagg yonent bi mboolem ñi bëgg yonent bi moom nee na mooy seen président sa gaañ xam nga loolu dafa doy waar kon da koy xëccoog yow da koy xëccoog problème boobu la am ak moom parce que alaaj Moor nee na ñi ñi bëgg yonent bi yëpp moom mooy numéro un loo lu ma musul nangu te nag problème boobu laa nekkeek moom fi mu toll nii du ma ko nangu mukk <laughs> nu ngi koy ndokkeel ah. ne laaj pap tey nag nu ngi waxtaane góor yàlla Sidi Birahim. Mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima ah, tey nag wullu yu la nuy waxtaanee. Mhm. alaaj pap yàlla ay mbiram. Mhm. dafa yaatu. kenn xamul la kenn xamul lu mu doon. te it sunu borom subhanahu wa taala. kenn ku ci nekk ak lu mu dëxëñ ci yow. la de alaaj pap yenn saa yi nga nga romb ko sol ay sagar. nga ko nga naan kii dof la. fekk doful jinne jàpp ko nga xeeb ko. fekk kooku wullu yu kaamil la. fekk yow bi ngay nelaw moom guddi googu ma ngay fanaani xadaratu ilaahi moo tax kenn kenn kenn kenn jàtt xeeb mais laaj pam mbaa ni na koy romb defe nii nga ko sànni lu ndaw nga koy may desitu ceeb nga koy gis ci mbalit yooyu fekk aljuma kaaba ga la jullee te boog yàlla lay fanaan dama lay wax aljuma kaaba ga la jullee yenn saa yi fajar sax kaaba ga lañ ko jullee ñëwaat toog foofu ne nemm nag guddi gi bi ngay nelaw ña nga fanaani xadaratu ilaahi da ci am ay wullu yoo xam ni loolu kenn xamul lu mu doon mm-hmm. alaaj pap moo tax nit koo gis xormal ko. Ah, waaw koo gis jox ko cër. bañ a xeeb kenn. laa ilaa sëriñ Xëy Touré dani <laughs> dani wullu bu koy doyee dal mhm. ndax boo bu koy xeeb bu koy doyee dal ndax lii mu sànni la aw saar aw saan moom wullu mu ni mboolem wullu yu yi naw naa leen ca yàlla bu wér ñëpp laa naw waaye na ginnaaw ba nag tijaan la mhm. damaa jaayanteeg Cheikhu Tijaan yi waaw léegi nag ñii nga xam ni kenn ku ci ne mhm. tey bu ñu waxtaanee ki ñu wax da war a waxtaanee tey alaaj Pape. Sidi Ibrahim Sidi Ibrahim. man boo nee Sidi Ibrahim rek sama xol. da ngay bëgg Sidi Ibrahim Sidi Ibrahim waaw. <laughs> moom nag moom nag xam nga. Uh-huh. moom nag uh, xam naa sopp naa ko daal moom Sey Ibrahima Fall. waaw waaw ak xam naa ak li ma ko gisoon. Uh-huh. taar ba Sidi uh-huh. Ibrahim. ak ak loyauté ba. waaw. maanaam même même bu dul même bu dul euh, diine ji sax. waaw mais loyauté. mais mais loolu kenn xamul ni mu ni mu àndeek ku tedd ki ni mu àndeek Cheikhul Khadim ni mu àndeek Cheikhul Khadim ni mu def sëriñ bi loolu exemple mais sëriñ bi moo fi dindi di nuyu sëriñ bi di sol dàll la waaw waaw sëriñ toog ca kaw taalibe toog ta moo fi dindi loolu respect la mais sëriñ bi toog ca kaw nga toog ca kaw moom dafa ñëw dindi ko ne bu bu Cheikhul Khadim toogee ci kaw na taalibe yi toog ci suuf indi respect ak bonne manière indi respect xam ni sa kilifa boo jàngee fàkkihatul tulaab ci téere mhm. euh, diggante taali bi naka la war a demee ak sëriñam uh-huh. Seydil Hadj Malick nee na sa taali bi sa sëriñ bu toogee waroo waroo taxaw mais respect dañ non sa sëriñ bu taxawee yow taali bi waroo toog maanaam nga toog nii sëriñ bi taxaw rek après ñëw nuyu la nga ne ko waaw sëriñ bi waaw déer laa yàqu oddu wa shayk waaxifun mhm. na bul toog fekk sëriñ baa ngi jug nee na bu sëriñ bi ñëw nel bërit mhm. jug taxaw ko sargal ko nee na sa sa si sëriñ yow taali bi waroo cee toog mais taalibe dafa war a wekk sëriñam dafa war a xormaal sëriñam. respect jox ko cër alaaj pap cër xam nga xam nga ñaare ñun dañoo foog ni yooyu ci tubaab yee ñu ko jàngal. ay bonne manière ak ay bon conduite ak. fekk Cheikh Ibra jàngale na ko bu yàgg. mais jàngale na ko xam nga l'islam sax alaaj pap li ñu am la kenn xamul. mais ah mais civilisation dëgg alaaj pap boo ko bëggee xam. Ah. diine l'islam la. dëgg la de civilisation dëgg. alaaj pap ci diine l'islam la ndax gisoo sunu borom bi muy wax ak bi daf ne ko saxaaba yaa ngi nii nag dañ laa bëgg nag dañ la sopp lool ndax yonent bi boo bokkee ak moom jotaay doo bëgg jotaay ba jeex léegi nag saxaaba yi bu añ daan jot sax njool màkk war a sieste dañuy toog di ko xool rek wallaay koo xam ne boo sëggi si gi xool ko sëggat si gi xool ko mu jox la beneen couleur mm-hmm. kooko jotaayam doo ci yàlla nag ni xam ngeen lu xew eh. bu ngeen añetee ak moom ba noppi nag ah, dem leen nag dafa war a noppalu te moom da leen ruusa wax bàyyi leen xool <laughs> ngi noonu <laughs> mais mais mais Sidi alaaj Pape Maam si Ibrahima Fall mhm. euh, bu ñu nee baabul muridina mhm. loolu rek garaat la lamp Serigne Fallou Mbacké euh, tuddee ko jumaa ja lamp ba ca kaw ñu ni lamp loolu loolu loolu doy na sëkk garaat kooku affaire la mais doy na sëkk garaat Ibrahima mooy ñang mi ci taaw yu baax yi waaw ñu ni mooy buntu murit maam maam maam Cheikh Ibrahima Fall mhm. loolu alaaj Pape doy na sëkk sëkk sëkk sëkk garaat waaw kon euh, góor yàlla boobu. Euh, la ñu war a waxtaanee tey. maa ngi xam naa tey téléspectateurs yi réew mi ñoo sopp maam Cheikh Ibrahima Fall. wilaay Sénégal pap non Sidi Ibrahima réew mee ko sopp am na ñoo xam ne dañoo nëbbu seen cofeel. ñii wane nañu ko ñii wane wunu ko. ñii dañ cee noppi rek waaye mhm. sopp nañu maam Cheikh Ibrahima Fall. wallaahi Sidi Ibrahima sunu góor googu. tey jii nag la ñu ko war a waxtaanee. ñu war a xam dëgg dëgg. ñu war a xam dëgg dëgg. Cheikh Ibrahima Fall Sidi Ibrahima <laughs> en attendant kon ñu joxe Euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ndax tey guddi maam Cheikh la ci télévision Futur Média ma bëgg na ku woote rek ngeen paas ma ko bu leen téye kenn ndax yenn saa yi téléspectateurs yi jàmbat woote naa jotu ma fere naa ci nangam sangam yaa may fay te man maa fay kenn soxla yi ma nekkee rek daf maa ndoy sëkk léegi nag ku dugg léegi bu ci sa wërsëg nekkee ma jox la deux cent mille ka ca topp deux cent mille ka ca toppaat deux cent mille donc du coup guddi gi yëpp dañuy séddale rek rek. séddale rek donc ñu ngi leen di xaar numéro téléphone yi ma fàttaliwaat leen ko puisque la répétition est pédagogique 88 628 22 22 wala 88 628 20 20 88 676 05 05 wala 88 676 06 06 07 07 donc numéro yi ngeen di gis yëpp bu ngeen ci woote rek euh, di ngeen ñu euh, euh, jot bu ko defee ñu jox leen seeni suukaru koor ñu euh, ndokkeel ñëpp nag ak fu ngeen mën ci nekk ku lim juum merci euh, ci fidélité bi ak nii ngeen taamoo euh, programme yu télévision Futur Média mais rawatina quartier général première émission télé fii ci Sénégal amul werante ma première émission télé fii ci Sénégal maanaam émission yi ci télé bi sax QG yi seen premier waxatuma la ak émission yi ci yeneen télé yi donc bu dee premier la faaw rek ñun lu ñu def xeeb moo xam ci contenu moo xam ci invité moo xam ci thème moo xam ci teraanga yi ñuy séddale donc du coup ku woote léegi di nga am enveloppe bu duun boo xam ni euh, dañu la koy baaxee nga mën cee bég mën ci dimbali ko yow ak sa njaboot. mën nañ ci teg itam euh, pour sunu mbokk chrétiens ni dem ba tey gis ngeen ci Pâques bi ñu ne ku dugg jox nañ la sa euh, suukaru Pâques donc boo amee téléspectateur ngeen paas ma ko pendant que Oustaz Pape Hann di ñu baaxee naa naafile bis bi yaa Oustaz dugg nañ nag ci. fukki fan yu mujj yi. di fukki fan yu am solo. yu am solo laaj Pape. waaw euh, ñu ngi euh, non tey la am ñaata. tey la ñu am euh, man fàtte na am nañu vingt jours am nañu am dix neuf am nañu am vingt. waaw waaw man dix huit la am. lan. ndax bu njëkk bi ñu doon werante fekk ma fi. te man Mbaye Diallo rek lay xaar moo may jox ndigal. te jour boobu non non moom ñu njëkka a la fa woor. jour boobu umul. woorul woo naa ko mu ne mu umu waaw le lendemain. mais xanaa lendemain um na. waaw um na le lendemain. léegi yow dafa umoo. dafa tombé woon nag may tukki. maa ngi woon ci yoon. waaw bu boobaa nag da ci tukki. maa ngi woon diggante New ak Dakar. waaye da koy fay. ah dama ko war a fay. ah da koy fay <laughs> loo yaakaar. man pour man. déedéet am naa sama ñaari fan rek. da nga koy fay. bu koor gi jeex nga koy fay. par force. am na jigéen ñuy amee bor nag dañuy bàyyi ba koor gi bëgg ñëwaat. ah ñuy doog a fay. ñu naan léegi ah oustaz ma ne ko dang bor la. léegi comme que koor gi ñëw na ma ne ko bu jeexee it danga nga koy fay bor la bu ne ci sa ndigg. te te te dégg naa fay bor bi ci saa si moo gën. mais nga fay ko laaj pap am na ñoo xam ne xam nu ñuy def bu ñu korité ba ci suba rek dañuy dañuy yéene fay rek mhm. mel ni luy gungewaale rek fay mu jeex tàkk alaaj pap maanaam bor da nga koy yée da nga koy gaawee mhm. parce que xamoo kañ la xaaral ma xaar weer bëna li ñëw est ce que mhm. weer boobu dina la fekk ngay dem yóbbaale bor boobu yooyu wóorul moo koor gi bu jeexee rek jigéen ñi amee bor ak góor ñu tukki woon wala feeboroon amee bor wér bu boobaa nga fay ah. waaw alaaj pap atte fay nag mais xam nga problème bi waxtuma la ak bor borom. xam nga problème mooy bu la wuu bu la leeroon ni déwén dina la fi fekk. dëgg la nga ni kon fii ak 2 mois 6 mois mais xamoo kañ la. kenn xamul kañ la. yàlla am na ko def bilan dara dalu ko mu jékki dee gisoo ko yow. ba pare li ci gën a mooy ñun dañoo foog ni dee ça n'arrive qu'aux autres. ñun ñëpp dañoo foog ni ñeneen. mais déggoo li waykat ba wax nee na bari na ku feebar bari na ku ku feebar. ah ko wa kam min saxiixin mhm. ah maata min gayri illatin maanaam bari na ku wér péng dara dalu ko mhm. mu jékki-jékki rek dee ay waay waaye bari na ko feebar du ñu koy tiim mu dund dund ku yàgg a yàgg moo gën a gudd fan waaw mi ngi noonu moo tax mag ñi naan feebar bokkul ak dara bokkul ak dee dara moo tax mbir mi yàlla hmm. li nga digalante ak moom nga am ko ak moom ñu toggalee la waxambaane nga mat sëkk hmm. weeru koor jot nga amee ci ngant mbaa nga feebar bu hmm. koor gi jotee bul bul programmé bul programme fii ak deux mois xamoo ndax dina la fekkam déet bu jeexee gaawal fay gaaw gaawal nga fay mais am na ñoo xam ne du ñu fay bari na ñoo xam ni boru daaw ba fayuñu ko. ba léegi. fayuñu ko. mais yooyu yooyu yàlla daf la koy laaj. mais ba dañ la koy laaj. boru daaw yeeg yu jékki. mais boru julli alaaj pap yonent bi wax téere yi wax nañu ni. Hmm. dafa dem al isra wal mi'raj jibril wan ko fa ko euh, zeng boo xam ni malaaka yaa ngi koy tabax xoolal ña ngay dugal zeng bi ba mu xonk coy ñu wëlbatiwaat ko ba mu xonk coy xoolal. ci biir ta ci biir safara de. zeng baa nga xonk cuy ñu koy wëlbati rek mu ne ko lii lu mu doon Jibril ne ko mooy ñi la bëgg war a dem àjjana te amee ay boru julli seen ci zeng bii la ñuy taxaw fay seen boru julli ah bon maanaam même ñi war a dem àjjana te am boru julli dañuy fay ay te bu mu yàgg taxaw ci seng bu mu yàgg ba sa xel dem ci bu mu yàgg ba nga xalaat ni da ngay sol dàll boo koy fay solo yëree weñ amul le tànku neen ngay def boo dekkee ni nga juddoo ngay taxawee ce zeng ba ngay taxaw fay say bur julli te kenn xalaatul ni di nga sol daal ndax bi ngay dem yóbbaale woo daal mi ngi noonu percal rek percal nga yóbbaale xoola Alexandre le Grand bi muy dee dañu ay mbokkam su ma deewee na ngeen langal samay loxo na ngeen woo ñu dàq ja ñu dàq docteur yi gën a mag ñu jàpp sama jaag lenn ci sama alal weesaar leen ko ci mbedd mi <laughs> moom moom moom zul xar na ni mooy Alexandre le Grand ñu ni ko pourquoi quatre docteurs yi gën a mag di jàpp sa jaag mënu ñu xam ni dee bu ñëwee docteur mënu ci dara wallaay xaalis mënu ci dara lu tax ñuy langal sa loxo mu ni ngeen langal sama loxo ñëpp gis ko ba nu xam ni indiwuma fi dara maa ngi nii di dem yóbbuwuma dara alal ji ñuy wesaar di fa jaarale nag ñu mu ni ngi ñu xam ni alal ji tax nit di jaay ngoram fii lañ koy bàyyi duñ ko yóbbaale déedéet loo yóbba xam nga loo yóbbaale ah. lu lay fekk mooy yu baax yi nga jiital sa biir bàmmeel mhm. almawtu yëti baxtatan wal xabru sunduqul amal loolu mooy richesse mi ngi noonu ah, loolu mooy richesse loolu mooy richesse alaaj pap ah, sa bàmmeel sa keesu jëf rek mhm. moo la fay fekk ci sa biir bàmmeel kon alaaj pap mhm. euh, loolu dafa jara bàyyi xel ñi amee boru koor na nanu fay ñi amee boru julli mais alaaj pap est xam nga boo amee boru julli yu baree baree bari noo koy fayee te xamoo ñaata la tey man pap an wóor na ma ni vingt ans yi ci ginnaaw julliwu ma julli gu baax wax nga wax nga lu am solo waaw man jamono yi ma nekkee ci baal bi waaw des fois damay xalaat sama bor yooyu mais kaay ma wax na ngay ci baal bi nag léegi léegi nit nitu diine laa nag ngi julli man xam naa ne yaa ngi julli léegi nag nitu laa nag dama waaw man xam naa yaa ngi julli wallaahi man mais am nay temps xam naa ne yaa ngi wérd am nay temps daawu ma julli daawu ma wérd waaw xale rek mi ngi noonu mooy ndaw léegi nag tolloon nga ci ndokk mag mba waxambaane mhm. togg nañu la jëf mhm. léegi alaaj pap ni ngay fayee sa boru julli yi weesu mooy soo jullee suba mhm. nga julli beneen suba ah bon soo julee tisbaar julli beneen tisbaar. musuma xam loolu. soo julee tàkku tàkkusaan nga julli beneen tàkku tàkkusaan. Oustaz Modou Fall xamul dara. soo ñu musuma xam musuma wax lii. su daf la koy nëbbu. xamul xamul et amul xam-xam. de non xam na ko da la koy nëbbu. Ah. am na ñu mu lay nëbbu de. day bañ ma texe. day bañ ko wax kay. kii moo iñaan <laughs> kon daf moo iñaanee àjjana. daa daa bëgg nga nga zeng ba nga fay ca bor ya. oh. zeng ba la bëgg nga taxaw jërëjëf yaa Oustaz xam naa lu ma xamutoon. xoolal dafa bëgg nga fay ca bor ba <laughs> ca zeng bu tàng ba mais laaj Pape boo jullee gée nga julli ñaari gée. Mm. léegi nag loolu boo ko defee xoolal ba keroog sax xel di dajal. waaw nga ni man kat bor yi ma waroon a amee. Mhm. yaakaar naa ni mat na nga bàyyi. ok mais laaj pap julli dañu koy fay. yàlla méttiwul de. yàlla nee na fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaata. yàlla wa tabaau shahawaati fa sawfa yalxawna xayya. wallaahi yàlla nee na jàkk rasulullah ne ko Mamadou mu ne ko maam mu ne ko waaw mu ne ko waxal ak sa gaa yi. Hmm. waxal ak ñoom li ma leen defal xamuñu ko. te ñoom kat fa xalafa wuutul ngeen min baadihim ci ginnaaw ñu baax ñi xalfun kuutaayu lu bon. addaaw ngeen sànq asalaatu julli. ñun dañoo fuuy mais lépp la ñu yombalal. yàlla wàññil nañu julli. jox na jox nañu bénéfice du doute. nee na bu ngeen ma tooñee ma ngeen baalu ma baal leen. waaw ay boru julli yoo xam ni xamoo ñaata la. mu ne la mën nga julli waxtu bu nekk ñaar ñaar di ko fay par ndànk mettez moratoire yàlla ni wa tabaxu ngeen topp sa xëwaati bànneex yi lépp li ko waral mooy bànneex yi rek ngeen topp daf ñuy moratoire di mais xam nga lu ci yàlla teg <laughs> bi bi mu ne <laughs> wuutu ngeen ñu baax ñi ginnaaw ñu baax ñu lu bon ngeen topp bànneex yi xam nga lu lu ñuy tegal mhm. fa saw fa yàlla xaw na luy loolu boo jàngee grammaire arab ca futur bi la mhm. saw fa xarfu taswif la mhm. mooy xël siif ngeen a dajeek lan yàlla mu ne xëy yan safara yi xëy yi xam nga luy safara yi xëy alaaj pap déedéet oustaz safara la soo xam ne yeneen mbokki safaraam dañ koy muslu kon ne safara boobu metti na waaw ndax xetam gu bon ak tàngaayam yàlla tere waaw kon alaaj pap xam nga lu fay yóbbu nit a mm-hmm. mooy ñi yéexi julleeg ñi am ay boru julleeg yooyu kon alaaj pap julli mm-hmm. dafa baax koo xam ne jullit nga mm-hmm. te yore ay bor na ko fay ñi yore ay boru koor ci koor gi bu koor gi jeexee nañu fay seeni boru koor te xam ne alaaj pap yàlla maam Cheikh Ibrahima Fall Sidi Biraay moo daan wax ni yàlla fawul foluwul foluwul moom sunu borom subhanahu wa taala ci yàlla waaw <laughs> mais am na ku baax la moom yàlla mais yërmandeem ëpp na mindee fi compliqué wul rahmaani jëkk raxiimam ji waa xoolal moom nag moo tax mag ñi nitu yàlla yi buñ bu ñu ñaan mhm. ëllëg bu nu yàlla y atte yàlla nu atte ci yërmandeem ndax yërmande yàlla ëpp na mi def wallaay ëpp na mi def waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbaaxam ak yërmandeem dafa jéggi mhm. yërmandeem dafa jéggi moom yonent bi mais yàllaa ko gën a baax yàlla mhm. yenn saa yàlla ne ko ah moom da ngay baax rek di nga xam ne maa la gën a baax maa la gën a baax macha allah jërëjëf yaa oustaz joxe guloon bi sax mais ñu may xamal ni euh, téléphone yi mu ngi mu ngi explosé ah ma ne ala Pape Samb na ko yónnee kon yónneel naafile yi ñu jël 06 ku dugg ñu euh, teral la jox la susukaru koor di ndokkeel nag sama sponsor bopp euh, euh, Pape Mor Ba borom ABN technologie ñu ngi koy ndokkeel bu baax ak personnel ABN technologie yëpp kenn amul seen fay ñaan ak ñun sànq ba tey di taaxeerlu quartier général bi nga xamante ni spécial guddi maam Cheikh la ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm di ndokkeel bu baax a baax a baax soxna Momi Kebe ak suma jur boobu la di Serigne Ablaye Tage yàlla na yàlla dëgëral leen di ziar kuy nit ku baax rek ndax faaw nga baax pour bëgguñu ñu kullu kuy nit ku baax rek ku ànd ak ñun ci euh, télévision Futur Média Adjaratou Kiné Ndiaye mu suma xarit Omar Jigo ca Gàmbi ñu ngi leen di ziar ñoom tamit Debbo Diop Debbo kenn demul nga des ñu ngi lay ñu ngi lay ndokkeel euh, di la ziar bu baax waaye nag euh, tey guddi gi sama xel dafay dem ci Pala Samb xam nga Pala Samb ku ne xamoon na digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall d'habitude guddi yu mel nii daf ko daan préparer à point ci kanam naa leen won euh, naa leen won photo bi image bi moom monsieur le maire Pala Samb ren nag fekkee wut guddi maam Cheikh waaye xel yëpp euh, mu ngi ci moom ñu euh, ndokkeel ku mel ni Awa Kumba nga xam ni suma rakk jooju moo ko jege woon lool waaye njabootam moom Pala Samb ñu ngi leen di xalaat guddi maam Cheikh bi nag ñu ngi ci xalaat suñu soppe yooyu yëpp ak fu ñu mënti nekk fàttewuñu leen ndax tey Euh, defe na xel yëpp ci Sidi Birahim rekk la nekk donc ñu ngi leen di xaar ci téléphone yi passe ma gaaw ma joxe ay suukaru koor wala addiya Cheikh Ibra waa dina dina mel ni majjal mais majjal woo xamante ni lañuy li ñuy teg ci këll gi day duun deux cent mille kuñ ko may nga jël et félicité ajot Ndeye Sophie Gueye Ndeye Sophie Gueye ca zone ba ballon moom nag euh, euh, turandoowam bi Euh, lim ci def barki démb bu ñëpp ci kontaan donc ñu ngi koy ziar bu baax euh, ajot ndey su fi Guèye yaayu Awa Kumba voilà mooy moo mooy yaayam xam nga euh, ndey sufi borom ngénte bu neex bi falaa falaa falaa ndogoo laax démb toj na son be ballon Mamadou Ndiaye mënoon ngeen ànd ak man jëlaale ci teranga yi mais ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñu leen di ziar bu baax ah awa wala yaay kumba suma rak ndeysaan yàlla baax na yàlla waxul kenn dara mon mi Mor Huchard bu Cheikh Béthio ñu ngi lay ziar bu baax am na ñoo xamante ni mënoon nañ fee bañ a tase mami rek doyoon na abaa rek doyoon na mais ñu booleel ma mami ak aba man xam naa am na nu muy demee <laughs> xool leen xool leen ndeysaan ñaar ñu seen xel dem mami li ngeen ngay live abaa ngi traité kaaw jaaykatu diw yi <laughs> tey abaa no stress mu ngi ci plateau bi Mami Diop Linguère bi moom it mu ngi ci euh, plateau bi Matar Dumbe Samba Yib Diop Serigne Kokki sa maam leer Gébaawaan ñokk ba Makka Ablaye soxna ñaan ak Aminta soxna ñaan ak Modou yow lii fu ma la musee wax rek faj nga ko ci saa si temps yi da ngaa mel ni ku banque <laughs> xaaral ma ma di jënd ci téléspectateurs yi ba nuyoog Mamadou Ndiok Mamadou Ndiaye ak Pape Thioune doog a doog a ñëw ci yéen allo allo allo. man Anta. kooku. Anta Anta. Anta na def. ban Anta la Anta ba bu tuutaan wala Anta ba yaayu yaayu yaayu dani. ban Anta la. Anta bu Mbuur. ah Anta bu Mbuur kon du Anta sama doom Anta na def. maa ngi fi. yaa ngi wootee fan. Mbuur. naka waa Mbuur. ñu ngi fi. mbaa Mbuur a ngay neex rek. waa. nu ngeen def ak koor bi. mu ngi nii rek. yow dafa mel ni koor gi da laa jàpp wala da sonn. da sonn. da ngaa soor xanaa ma la mayee xaalis coono coono bi dina jeex. waaw. quartier général may na la suukaru koor bu toll ci deux cent mille. Anta. waaw. yaa ko moom dégg nga. waaw. ndeysaan Anta dafa yaru. Anta dafa yaru merci Anta yónnee leen ma ko deux cent mille te ngeen paas ma beneen euh, téléspectateur allo allo allo allo ma defar sama fépp lañ ma branché ay fil mon ami toog mu Serigne Fallou <laughs> alo ku dugg ma jox ko deux cent mille addiya Cheikh Ibra ma mi yegg si leen yegg si leen Diop yegg si leen yaayu Soda Mbakke yegg sil caat yegg sil yegg sil yegg sil yegg xaritu jigéen ñi nekk ci kaso bi ci kaso yi plutôt man chaque jour ñu laaj ma Mamy Diop kañ lay defaat affaire bi xanaa du ko def ren ma ne ko Mamy dafa banque <laughs> Mamy ren daa banque mais da koy def de dafay am de. waaw woon kay dëgg la te. <laughs> eh léegi da ngay muñ rek yàlla waxul kenn dara allo. 88 628 88 628 20 20. wala 88 628 22 22 je rappelle que woote ci numéro téléphone yi di affiché wu ci euh, suufu écran bi quartier général bi nag euh, tey ñu fàttaliwaat leen ni guddi maam Cheikh lañ leen di jagleel le temps geen di woote pour ñu leen di jox addiya Cheikh ibre ñu may leen quelques minutes 88 676 05 05 Kuti Fall surtout Cheikh Ibra la surtout Elimanel Fall la ñu ngi koy ziar bu baax. jigéenu Manel Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ayca na woote yi gaaw musubatana mit seng gi ci law dem ba tutaan jàkk sama mag man kese ñu ngi lay bégee bu baax yow itam Caba Diagne madame le maire la moom it mu ngi ànd ak ñun Faben Diop borom Luxe Avenue xam naa ni fa mu nekk kontaan na euh, ndax ki ñuy waxtaanee sa sëriñ la sëriñ maam Dame Diagne euh, moom léppam la allo allo allo te ngeen na gaaw Céline Céline ma petite Céline maa ngi lay bëggee bu baax Céline te boo nekkul woon sama doom Céline je t'embrasse très fort ayca 88 628 88 628 20 20 bëgguma lu yéex de bëgguma lu yéex de bëgg naa daal woote yi ngeen accéléré ko parce que bu ca kanamee tuuti bu ñu tàmbalee waxtaan wi du ngeen ko tal donc ce qui veut dire que là c'est le moment où jamais ngeen woote donte ci biir émission bi itam damay joxe ay suukaru koor wala ay suukaru Pâques Oustaz Pape Anne ñu baaxee téléspectateurs yi naafila bis bi defe naa Pape Samba yónnee na ko bu ko defee ñi naafilagul mën ci sukkandiku yaa Oustaz. mi ngi noonu El Hadj Pape. ñi naafileegul mën a mën a mën ci sukkandiku ndax euh, naafila moom El Hadj Pape ndollent la mooy ndollent. ndollent waaw ndollent waaw. muy xeetu bénéfice yoo xam ni kenn kenn kenn xamul lu mu doon. Hmm. kon El Hadj tey jii nga xam ni mooy fukki fan ak juróom-ñeent ci koor gi ñu njëkk woor ñu mujjee woor ñu njëkk a woor nag am na ñaar fukk am na ñaar fukk El Hadj hmm. ah, mooy fukki rakkaa la di juróomi sëlmal waaw. ñu ni rakkaa bu ne jàng euh, fatiha jàng fatiha nga jàng ñetti ina aataynaakal kawsara ina anzalnaahu waaw inanzal na ñetti inanzal na fileeti xadri. ñu ngi ci période am nag waaw mi ngi noonu. beneen euh, beneen beneen boo boo daal di sëlmal. Mhm. beneen bi nga jàngat fatiha. Mhm. Euh, jàng xul wallaahu ahad. Mhm. nga jàng ko ñetti yoon. waaw benn rak maanaam rakaa bu ne. Euh, di nga jàng faatixa ñetti inanzal naahu. def ñetti xul wallaahu ahad. walaaj paap mu nekk fukki rakaa. waaye nekk juróomi sëlmal. juróomi sëlmal boo ko déggee mooy da ngay def ñaar. sëlmal defaat ñaar sëlmal ñaar sëlmal. ñaar sëlmal ñaar sëlmal muy fukk ah par deux. waaw saa yoo defee ñaar rek mën nga sëlmal. nga sëlmal ok nga muy juróomi sëlmal. nga am fukki rakka. Mhm. waaw la nag moom alaaj pap euh, jaamu yàlla la. Mhm. waaw jaamu yàlla la bénéfice la. Mhm. bu yàlla yi defal jaam bi. yonent bi alayhi salaatu la moom daraan fanaane naafila. xam nga kuy fanaane naafila. bu nit taxawee naan leen naafila gi amul njëriñ wala la kenn du ko joxe loolu ki xam gaa yi ko xamul li xew la. yonent bi moo gën ci lu yàlla bind. daraan la di julli ba tànk ya néew léegi après yow nga ni naafila yi nuy joxe waruñoo joxe ay naafila eh. te nitu yàlla yi ràbb seeni naafila bopp ne la guddi gi defal lii maanaam kay ci bokk xam xam mam mam Serigne Cheikh laa dégg mu wax ni maam Abdou Hamid Kane mhm. xam nga ñaata ñaata rakka la naafila ah maam Abdou Hamid Kane ñaata ñaata mu xadd mu sijjal xaaj mal ba ca Kaolack di wulliyu ñaar weeru koor ñaari rakka lay naafila man mii sax xam nga lu muy waxa mhm. yàlla xaw ma xaw ma jëf ju bëri jëf jëf ju yàlla nangu laa xam mhm. dégg nga wax bi. jëf ju yàlla nangu. jëf ju yàlla nangu xoolal Seydil Hadji Malick moom kaamil bi la daan naafila ñaari rakka ñaari rakka lay naafila kaamil bi yëpp. mais El Hadj Pape yonent bi daan fanaanee naafila moom moom rasulullah yi. ba bët set ba Seydatuna Aïcha naan ko sa tànk yaa ngi niiw yi mënuloo taxaw parce que journée bi kër ga amul lekk ndékkiwul nga mën a dégg. Mhm. añ amu fa. reer amu fa kon kooku lekkul. lekkul kay moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam day jël morso. teg ci ay xeer. jël morso ba takk ko ci ndigg li ngir mu mën a taxaw. pour mën a taxaw. pour mën a taxaw ngir jaamu yàlla. xam nga lu ko Sayyidatuna Aïcha wax daf ni ko mais xanaa du bërki démb la la yàlla ni bàkkaar yi nga yi fi nekk ak yi weesook yi bëgg a ñëw baal naa la topp ma la dara bu doon man la damay def lu ma saf xam nga lu ko yonent bi tontu ah, daf ni ko afala akuna abdan shakura ah, ah. Aïcha ndax nekkuma jàmm buy sant yàlla di delloo borom bi subhanahu wa taala njukkal moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla jox lépp mhm. li ko yàlla déey lépp ak li yàlla wax ak moom mu jël noppam sës ko fa ñuy dogalee mhm. teewul moom rasulullah yi mhm. muy nelaw guddi day fanaane naafila ba bët set ba tànk yi niw yi uh-huh. wa akadat zuhduhu fiiha daruratuhu inna darurata laa taaddu ala al ishami alaj paap lor du jalgati ku ñu ñoŋal te sunu waaji la ñu ñoŋal moom yonent bi alayhi salaatu borom barrière or ba borom barrière or ba <laughs> dafa sakkan te du du xew nag ah. <laughs> soo koy soo koy tudd sax waaw nit ñi dañuy sentir ni ngay ni ngay ni ngay bégee waaw dama ko bëgg waaw dama ko bëgg te ñàkk koo bëgg sax wóor dama ko sopp dama ko sopp waaw moom moom la la ko wéykatu arab boo xoon da koy waxa waxa waxa waxa di ko way di ko tagg ba xamatul lu mu koy wax mun ko yàlla xam na ni bëgg naa la <laughs> uh-huh. dégg nga wax wallahu yaalamu mm-hmm. annani ahwaaka ah. ni ma mel ci yow daal ah. du ma ko seedeloo kenn mm-hmm. yàlla xam na ni sopp naa la yow rasulullah moom bindal nga ko taalif waaw ah nee naa ko anaxtu rikaaba shawqi mhm. fii zilli ahmada mhm. mahattati ahlillaahi man lii bi ahmada imaamu jamii al anbiyaai wa kulluhum talaa xawhu fi l israai safan musawwada fa akrim bi man qad azama law xadrahu mhm. fa ayu imaamin mithlu ahmada muxtada kafaani bi kaw nii maa di xanaw mu rawi jan sajaa yaaw fi l ashaari faxran mu xallada xamul tax ma ne mu rawi mooy Euh, yuruntu bi. Mhm. tagg gi ma koy tagg. Mhm. booy publicité pub ñiy publicité ñaar la ñuy fay. bëri na de ay millions la ñuy fay. cinquante millions par waaw léegi man dama koy ma ni ma ni ko. Euh, kafaani bi kaw nii maa di xan doy na ma sëkk ci sama nekk at ma lay tagg. Mhm. waaye di la publicé ma ni mu raw yi ma lay publicité rek. Oh. fu ma taxaw rek euh, du ma wax wax waxuma kenn waxtaanu ma kenn yow rasulullaay donc. uyul soppeem bi. waaw <laughs> eh, waay waay est-ce que soppay sëñ na moom it maa ngi nii. jàpp na de sama sikkare mu jox ma sama wàll. Euh, man de yonent bi rek laa gëm non non li nga jox ma te ku bëgg yonent bi ma bëgg la. <laughs> te Alaaji Buuba Nduur dafa bëgg yonent bi. dafa bëgg yonent bi à un point boo xamante man ni mu bëggee yonent bi gisaguma ku ko bëggee yonent bi moom Buuba Nduur. est-ce que bu ne am naa ko. mais directeur bu bëggee nii Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musuma ko gis. waay buuba jàllal bi ma juddoo ba tey. ah Alaaj Njaay jiite na ma. waaw Bougane jiite na ma. waaw keneen ak keneen jiite na ma. waaye ku mel ni moom mais ku mel ni moom gisuma ko ci réew mi. yaa bëgg yonent bi. si rek gi Alaaj Njaay yaa bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. maa ngi jooy sax. ay bii directeur du ma la weer. billaay directeur. jërëjëf mais Soxna Mati Dieng <laughs> Pape. Pape Balka dimbali mi rek. lii day day lakk lii day lakk sama loxo bàyyi ma delloo la rek Mati Dieng Mati quartier ma nga New York directeur la ay mbooloo toog ngay déeyaate moom oustaz lii du ko laal lii su koy lekk muy lakk lii day lakk samay loxo ah, du xam nga baa mu ñëw jox la ah may boo pare non Pape ma leen gënal dama la ko rusoo na wax Bouba Ndour yaa ma gënal ñëpp dagg leen dugal. ay directeur du ma weer. baal ko rek yaa oustaz dina mel ni sama yóbbante ba ak yow rek oustaz mu seytaane bi ma lekk xaalis ba saa yu xëyee ne ma oustaz Papa woon na la wala woowagul la. bu demee si papa am ne ko dégg nga baay wala dégg nga baay jox ko sa yóbbante bi. naa ma sa waay woowu la wane ko non non mais sa waay démb ñu ne woon midi pilis ma àll sa. sa kat dama koy fàtte. saa ma ko fàttee rek moo la koy fàttali. mu du fàttali dafa doy waar. <laughs> yàlla na jàmm yàgg. couleur bi la ñu bëgg yéen ñëpp ngeen di ko dund ambiance bi waxtaan bi kaf bi forêt bi euh, dara jarul euh, ngeen di yàq onde positive yi donc mm-hmm. saison positive la dañu koy euh, jàllale di ko dugal ci seen i kër e loolu gis nañu yéen a ngi koy dund bu téléspectateurs yi bëree ci ligne bi ngeen passe ma leen rapidement ma doog a nuyoog Adjot Mami Diop Linguère doog a nuyoog Pape Thioune Mamadou Ndiaye mu ngi fi moo ñuy toppal réseau yi xanaa profité ci nag balaa xat gërëm bu baax kat yi xam nga d'habitude bi général bi tam tàmbalee ba tey lu ngeen gis ma sol fii comme costume africain euh, faa moo koy defar donc ñu ngi gërëm euh, waa Keifa yëpp waaye kat itam dama yàgg ak moom lu ngeen seen ci euh, yére wolof grand boubou bazin kati création moo def bii tey et puis du tey rek 2016 ba tey saa yu ñuy waxtaanee Cheikh Ibra laxasaay bi ci moom lay jógee donc kati Jeri Ngoné ñu ngi lay gërëm bu baax profité leen ngeen woote pour am ci collection Korité parce que nag dafay teel a tëj yéen ñi bëgg ci laxasaay yi mën ngeen woote ci numéro de téléphone bi nga xamee ni mu ngi affiché wu noonu ci euh, suufu écran bi mën naa leen ko jox Kati euh, Création 77 631 52 52 sur rendez-vous bu ngeen ko deful du ngeen teel a am euh, ci laxasaay yi xam nga ni nii <laughs> dafa murite waaw Serigne Touba Cheikh Ibra. waaw ah, rafet Cheikh Ibra voilà moom a koy defal chaque année donc Kati création ñu ngi koy gërëm bu baax a baax jéeri ngoone gërëm tamit yaayam ak borom këram ak njabootam yëpp elle adorable moom ci dafa baax xam nga mhm. yàlla yaay ju noonu la mel barki dem bi may jëli mesure yi fa laa fekk yaayam amul taalibe Kati dafa baax de soo dama dem Thiam New Jersey soo dama dem Thiam sa xarit sa soppe bu Jersey bu Jersey waaw moom baax yónnee na nee na dina dina ci teg mbaxana mbaxana <laughs> ah. bilaay bëri naa ay mbaxana nee na Pape il faut mu nee na bëgg nañ nga sol foo solee mbaxana koppati ñu jóg mbaxana bi nañu waaw fii dañuy jaay mbaxana noonu nee nañu Masaalikul Jinaan gii soo da nee na grand boubou yi ngay def fan yi waaw bëgg na nag benn bis rek nga teg mbaxana waaw ne ko na ma yónnee njëgu bi waaw dina ko yónnee fii Masaalikul Jinaan dañuy jaay mbaxana mi ngi lay déglu Mati Cartier Mati Mati Dieng Ajaratu Mati Dieng ma nga ma la woon daf maa bàyyi du la bàyyi sama rakk la woon elle est adorable <laughs> moom mu ngi mu ngi mu ngi lu foofu ca ca ca Amérique jàmbaar la yaa ngi koy gis ci réseau yeeg tout ça Agathe Mati jeng ñu ngi koy ndokkeel di pour di ko ziar bu baax mu ngi dox di suux rek dafa sonn <laughs> sa waaye dafa sonn <laughs> Oustaz Modou kay toog da ngaa abal leen ko jege naay bu mu wéeroo <laughs> pour pour coono bi jox leen ma téléspectateur yi gaaw alo dafa sonn mais kii ci sañ sa la dëkk yow nag Oustaz Modou Fall bëggoo bëggoo Mamy Diop ah mais yow kii ci sañ sa la dëkk. yaa ngi doog gis sañseem. Modou lambal sa ma lalal naan. nga ko daal. mosuma koo sol. man xale yi ci ginnaaw nee nañ booy wax nga jëlaale micro bi ay ayca passaat leen ma téléspectateur yi ñu enchaîné ko Apulaay s'il te plaît comme ça ñu mën a gagner du temps euh, parce que guddi gi euh, guddi gu mag la di guddi maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. guddi maam Cheikh nag moom kenn du ko kenn du ko kafe guddi la goo xam ni moom faaw rek. ngeen ànd ak concentration heureusement ba tey la samedi donc demain dimanche kenn du liggéey donc du coup mën nañu fanaan ak yéen ba keroog ñuy xëdd ci télévision Futur Média réseau yi itam Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu en temps réel mën ngeen dund euh, Cheikh Ibrahima Fall Facebook Instagram X TikTok ba ci YouTube bi lépp rek ci euh, équipe euh, digitale bi li muy liggéey pour yéen internautes yi Mamadou Ndiaye. effectivement maa ngi lay fay El Hadj grâce à télé ci poche yi téléphone portable yi fi mu ne nii na ba boo amul possibilité sax xool sa télévision mën nga ñëw xool ci. ci réseaux sociaux yi que ça soit mu nekk ci euh, Facebook live yi ñu ngi YouTube actuellement chaîne YouTube bu télévision Futur Média ñu ngi X ak grâce sunu hashtag bii di QGTFM 2024 wala qg seen réaction yi tey ci guddi gu màgg yi comme ni ko El Hadj ci euh, guddi gu maam Cheikh Ibrahima Fall bi nga xamante ni lool internet yu ko doon xaar di ko doon réclamer ci euh, inédit yi nga xam ne dafa bokk ci quartier général mm. tey jii lañ leen ko fas yéene dégtal incha a baax comme ni mën nañu wax ni modèle la pour Sénégal waaye pour Afrique yi yëpp élage lamp baabal muridin mhm. ah laalala yéen daal ba ca kanam di ngeen di ngeen tey ngeen tey ngeen di dégg lu ngeen mësul dégg ci télé maanaam ñun ren danoo danoo def casting bu doy waar ci waxtaankat yi maanaam ñi dàq waxtaan Sénégal ñooñu la ñu la ñu jël rek teg leen ci ci ruq am na si ñoo xamante ni yenn saa yi ñu woo leen ne leen ñaatale leen TFM di fay ñu doublé ko pour ngeen ñëw ci ñun mais ñoom dañuy lànk carré duñ leen jox dara nag fii a jariñoo <laughs> gis naa ci waxtaankat boo xamante ni borom tele bi da ko woo ko ñaata lañ lay fay mu leen la ko pour nga ñëw sama tele mm-hmm. waaye nag wax dëgg yàlla li Lamine Samba daan wax mburu mi fii lay xoyom xoyome <laughs> moom xanaa xoyom xoyome tur ci moom gëj naa la Lamine Samba de bàyyi na ma de. ne lamb jee tëj rek lamb jee tëj. ah lamb jee tëj moo tax. Ah, te kat maag moo bokk ndey ak bàyyi muy sama mag. ngëri la mais daf maa bàyyi carrément. lamb jee tëj fa yi ah loolu moo tax. man dama foog ni télé bi amatul mburu day jaay xar ah day jaay xar. <laughs> yi moo yi da ciy profité yaraale xar yi <laughs> bu lamb ji tëjee bu wala <laughs> kële gis nga castingu tay bi itam war nañ ko xoolaat. war nañ waroon nañ ko xoolaat kii warul woon bokk ci émission wu tay bi moom abaa mi waru ci woon bokk. Soda yàlla na fi yàlla na gudd fan Soda ci nga ko prestige prestige na gudd fan bu dul woon nag moom uy kële tamit bàyyi xool kële tamit waaw man dama damay rêvé wala ay ay lan laay def ci ginnaaw kon kay dugg xaar ba ci kanam ngeen dugg seendoo waa pap dama bugg ngeen dugg seeg sikkar mais pap waaw dalli abaa yi ja nga yaakaar ne jaawale ko dalli mami nduru ah, <laughs> ngay dalli abaa yi est-ce que jaawale wu ko dàllu mami yi. Pape Samba ndax mën nga ñëwoon dàllu abaay abaa bu nga taxaw ci digg bi ñu xool dàll yi. Pape Samba dimbali ñu ci. sonal ngeen nag sama rakk ji nag. wilaay sonal nañ la nag. dàll yi am na yaakaar ni dàlli mami la de. <laughs> réeroo am na ci de. waaw réeroo am na de dàll yi bu dul dàllu mami caam di dama jaaxal torop. Pape gis nga dàll yi. <laughs> ay itam dàll yi daf mami caame eh? waaye nag kaay ma wax la lanceur de tendance la de. lu leer laa wax bàyyi nga ni lu mu sol bu ñu yeewoo ñëpp sol ko dàll yi xaw may li ma mi ci am laam dàllu Fat Sarr de ndax temps yi am na xale bu jigéen bu muy seeti moom bu tudd Fat Sarr waaw maa la wax lii de moom à tout moment mën na def mën mën naa def ni jomaay takk ñaar moom abaa moom moom moom temps yi jomaay rek lay topp <laughs> ayca passé ma téléspectateurs yi gaaw ma jox leen seeni suukaru koor doog a nuyoo Oustaz Modou Fall Pape Thioune tamit euh, mu ngi fi euh, Bijou mu ngi fi euh, Aba Nosxes mu ngi fi tey dinañu waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi voilà donc passé ma téléspectateur allo allo allo allo. allo kilifa gi. kooku. man la baam bi. allo. allo kilifa gi. kilifa gaa ngi nii kooku. man la Bambi. yow la Bandi. Bambi. ah. Bambi mu maam Bamba. Bambi wax nga dëgg Bambi am naa sama rakk ju tudd Bambi Bambi càmmi jigéenu Tafa Sow doomu ajaajee astu saw ca France wax nga dëgg Bambi moom la ñu tuddee maire Bambi Lawbe Bambi na nga def. maa ngi fi rek monsieur Bonheur di la sant di la gërëm. bilaay Bonheur a ngi nii di leen bégal rek maay Alaaji Bonheur. ah borom baax nga. <laughs> loolu la yàlla dogal ci man barki Cheikh Ibrahima. sa kanam a ngi belli. yee ak yeneen sax sama yeneen a ngi belli fi mu ne maay seex belli. waaye jàmm rek ngay am borom baax la. jërëjëf jërëjëf Bambi yaa ngi wootee fan. maa ngi wootee Tëngéej. fan ci Tëngéej nga dëkkee Bambi. Sanc ba. Sanc ba. waaw. alors Bambi quartier général may na la suukaru koor bu toll ci deux cent mille. ah jërëjëf jërëjëf. voilà dañ koy def addiye maam Cheikh Ibrahima Fall. ah waaw addiye bu mat sax. voilà addiye bi daal yaa ko moom. ah yàlla na xéewal gi barkeel. jërëjëf jërëjëf Bambi. yow borom baax ki topp ci Bambi bi mu coupé ki ci toppaat bi mu coupé parce que 88 628 200 000 200 000 loolu laay joxe yónneel leen ma Bambi euh, enveloppe bu toll ci 200 euh, mille ki ne Fall yaa ma gënal ah laa xaaral ma noppi sax mais maa ngi lay nuyu ki ne Fall ñun ñaar normalement euh, Ndéla Kuti Fall waruñoo xamal dara voilà waaye nag tey seen maam la ñuy waxtaanee Cheikh Ibrahima Fall xam naa ni yéen a ngi nuyu di ndokkeel bu baax paa bi ak mère bi. Euh, ñu ngi béggee suma jigéen yooyu sama rakk euh, Ndéla Kuti Fall ak Kiné Hama Soumaré Bour Ngalam nuyul ñu euh, Khady Ndiaye taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall elle est devant sa télé comme beaucoup de taalibe di ànd ak ñun tey ci guddi gi ci télévision Futur Média ñu jël ki topp ci bam bi gaaw 88 628 22 22 ku dugg am 200000 yow Saas ñu ngi lay nuyu si nañu ci sa teewaay ci quartier général tey ñu fas yéene waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf alaaji Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar deux cent mille waaw maa ngi lay ndokkeel bu baax ci mm. weeru sell wi ñu nekk di nuyu oustaz Pape Hann bu baax di ko ziyaara moom itam di nuyu ñi ma bokkal plateau bi ñëpp sama soppe bu baax bi nga xam ni Abdoul Barki démb rek maa ngi seetaan waxtaan wu rafet wi mu def ci Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum mm-hmm. di nuyu bu baax kan Pape Thioune Pape Thioune waaw mbaa da nga bëgg a jëlante ak moom ku fi ñëw nga xaritoo ak moom ñi nga fi def bàyyi yaa awa ànd ak Adja Cécile man daal jaaxal nga ma léegi nag xeet nga journaliste yëpp Pape Thioune daa bees moom nga bëgg a tool mais amul problème <laughs> dama gis mu def témoignage boo xam ni uh-huh. ci Serigne Moustapha bu Serigne Cheikh Tidiane si Al sa Serigne te Pape xam nga ni man kooku rek laa fan mhm. waaw sëñ Moustapha bu sëñ Cheikh Tidiane si almaktum mhm. xam nga ni man moom rek laa fa mhm. mu def ci témoignage bu am solo ma bég ci lool di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam nuyu sama xarit ajaa Mami Linguère sama xarit Adja sonal ngeen ko Seyda yaa Seyda sama genn wàll sama doomu ndey kolkërisi <laughs> mami Linguère di nuyu bu baax Mamadou Ndiaye mhm. moom itam di ko ziyaara bu baax mhm. di nuyu bisu mi nga xam ni tey nee naay daa njaxas nee na yaay faal la te njaxas bi kat da ëpp <laughs> del sol sa mesure aba jaawale daal yi ñëw mais nag daal kii jeu bii tey li nga ko wax ñaaw na torop nag dafa ñaaw torop wax nga ko loo xam ne bés bu fayoo te xam nga Abba tontoom du forox c'est le roi des réseaux sociaux. ci kàttanu yàlla du ma tontu Pape. c'est le roi de la bande FM kii moo bokk yëmbal jaxase nga nu ba tàyyi mënoo ci ñun dara. dama lay expliquer ñaari affaire wax ju ñaaw ji nga ko waxal <laughs> wallaay barki borom Touba bés bu la Abba tontoo de. di nga dellu Italie ca njaayum ca ca marchand ambulant ba lu leer laa la wax dem delluwaat njaay montre njaay ma moom du ma ko nangu mukk maa ko gis Italie njaay ma ca boori géej ga maa ko fekk Fontenelle hii du ma ko nangu mukk maa ko fekkee Firenze maa ko fekk Lugo or maay ab jaaykat la woon ci géej gi Pape Pape nettali naa la Pape Hann bi muy liggéey menuisier. déedéet nekkoon na menuisier. xamoon nga ni menuisier la. musuma xam loolu. mais El Hadj Pape. pour man Pape Hann mooy cappaacoli cappaacoli dafa xëy rek nekk ca. non damaa mbapat nag. nekkoon nga menuisier. non jaar naa ci. man sa mën football dégg naa ko. waaw dama mënoon football. waaw sa mën football moom. dégg sunu entraîneur bi ma gëj a gis. waaw dafa defee woon damaa football dafa foogoon club bu mag jël na. waaw ay PSG ak Marseille. mais bien joué Hann yàgg naa ko dégg. bien joué Hann. bien mais sama papa yal na yàlla yokk ko yërëm boobu maa ngi jàng mu ni ma nit day am métier man ko ma dagg sama jàng bi mun ma wutal métier après nga continuer ba ëllëg bu jamono soppi koo fekk yow am nga sa métier quand même waaye yàgguma ci ma jóge fa nag ca laa dem daara ja ah léegi bi nga demee daara ji sa entraîneur dafa foogoon ni dama dama def pour moom dama football yi ban ban équipe moo gën a mag Bundesliga wala ban la wax Paris Saint-Germain Arsenal léegi bi ñu gisante waatee ni ma ni ma pap ma laaj fan laa ne ma ne ko ah. daara ja mun ma quoi non non non am na parents yoo xam ne da ngay waaru ko vraiment ah parce que alaaj pap man dama mënoon football ba pare dama am technique. oh ah alaaj pap sama dribblé. wan allahu akbar sa tët tët ba pare waane woon fekk nag yuruntu bi moo ma soxla yooyu yëpp wax ji. <laughs> mais mu nekkee menuisier. mais <laughs> eh, Pape loo ci xamul sa waay daaj condamné rek lu mën. mënul daaj fa tey. bu la daajalee condamné rek nga joxe loxo. condamné <laughs> Thiès yëpp Pape ànd ko daaj. ab daajkatu kondaane la boo xam ne. <laughs> Eh, bang laa daan ba nga ëpp ci li ma jaay 200. te eh, xam nga xam naa bu kondaane a <laughs> man su ma yëgoon liggéey si tey <laughs> ndax ma a teg nga la. ab daajkatu kondaane la boo xam ne moom nee na bang la gën a mën a defal kondaane Cees yëpp mais preuve baa ngi ni indi indi bal bi ko mu tël. bien joué Anne dama laa bëgg a paas bal bi dañoo bëgg nag xam dëggi dëggi talent bi ci yow. ak marakis yi du garaaw ah. waaw day garaaw te wóorul. ah nombre ak noo ko centre noo ko yëkkatee ma téye ko. wow wow wow wow non non non léegi xam nga lan la. waaw euh, euh, dama ne woon sax du ma ci ñëw. waaw mooy match yi gars yi def fii. waaw incha allah dinaa ñëw. ci prochain match yi. non dinaa ñëw. <laughs> non wala ma wala ma paas ko Aba. Aba paas la. Aba jox ma kon arbitre laa jàng arbitre Fall yow tamit sa caay ji kamit lan la. Aba <laughs> bul toj verre yi dafa ndànk. dafa ndànk rek. fi dafa am. <laughs> il gère tout. il gère tout. il gère tout. may leen ma man tamit man it mënu ma dara. c'est que loo sol nii wax rek laa mën. Pape mais a tuus tuusal bul def noonu tuus. lu nu ñu tuusee. non non non nii baaxul tuus. na nii baax na. tuus mooy lan xam nga tuus mooy bopp bal bi génnee nga jël war a tuus. ah mooy nii wala nii. Ah, ah, non ma defee nii. non non nii ma baax am abaa. sarax ma nag bu ko koo ci kanamam voilà gérer situation bi waaw. gérer bi yow gérer situation bi rek Mame Ndiaye Savon nu mu mujjee. a sa dàll yi xoolal mbaaru bëtt bal bi. yi ci nañu. Abba gérer gérer situation. amuru man mi Cobra Mourou xool daal wala gérer affaire bi ah. prip prip da leen woo. ma lii de topp kaa nga gën a mën ka baax. gérer ma lii mais yow ma ni cybercriminalité leen woo ah dem na ok. lu ñu def. de garaaw amul problème. nga sànni. Ah? dégg naa Macky Sall daa wóoloon Viviane daa wóol Viviane tey ma jox la mais gérer affaire bi de chevalier lañ ko def moog ñoom Youssou Ndour ak Kiné Lam ak Kumba Gawlo ak mbay Dieye am na ñun de amuñu ak li ñuy def ci réew mi ñëpp. yëg nga mais gérer situation bi. Pape sànni lii. dama lay ñaan benn affaire dama lay ñaan benn affaire bul ko dóor ci kanamu Pape An mais bi nga demee bi nga demee studio Faramaren ba gis photo Youssou Ndour mais dégg naa non dama lay laaj. waa léegi Youssou yaa leen yaa di jaxase dégg na am liggéey télé Youssou di ànd ak Wally Seck am kaay. waaw kay yow tamit waay waay waay jàpp ci ñëwoon rek. mais dafa métti nag waaj. waaw ok am waaj. waaj dafa métti nu mu waa kay kay kay waaw kaay ma jox la kaay ma jox la yow tamit am waa am am am. mujj na sonn sax waaj a waa am waa am am. mami Thiam day wujjee takk suuf bi daa ah, takk takk takk suuf takk suuf ah takk suuf. parce que changé na kanam gi de. abaa verre bi sa kanam. verre dégg naa loolu karagoy la jaar. mani verre bi day jame de. waaw ok maa ngi sànni léegi nii ok je passe à Aba Aba passe à Oustaz Pape Anne. am problème bien joué Anne. oh oh bien joué Anne. <laughs> mais Pape euh, saa boo gisee ni mu ubbee tànk yi xam ne nawetaan yi sax toju yow ma képp bal bi nga xam ne yow muut na sa problème da ngay soxla yenn saa mais mais bien joué Anne Oustaz Pape Anne mii nag uh-huh. témoignage daje nañu daje naag ñaari ñaari nit ñoo xamante ni du sax Sénégal feneen. ñu ne ñu oustaz Pape Hann grand joueur la woon. lan. lille wallaahi oustaz Pape Hann ak Amadou Mbaye Garmi. ku mën ñu mënoon ay footballeur yu mag la ñu woon. ay talent la ñu wax. talent Garmi barki alxuraan. est que très bien. yow Mour yëguloo man yëg naa loolu. <laughs> man moom loolu moom yëg naa ko moom. bien joué am mën a mën a football. waaye équipe bi dégg naa na ci talent. coach bu sant Bodian lañ koy waaj a jox de <laughs> coach Bodian. ban si. équipe bu bees bi. équipe ban si. Ah, bu national bi bu Sénégal bi. non si naa leen moo ko yor. waaw mais il y aura des ay changement dina am ci dëkk bi de <laughs> changement yu bëri sax télé yi di nga dégg ay yu sant Sané <laughs> oustaz Malang Sané télévision nationale di nga fa am Malang Sané. parce que buuba nag buuba maa muudu fan yim ñuy def. Mhm. dafa mel ni dafay loolu la moo ne ci xelam. changé changement fi mu nii xool moom yee ko neex récréation bi ñu jël nii ci émission bi en plein direct di récréation <laughs> à tout moment mën nañoo jox demande d'explication mais on va revenir aux choses sérieuses tey guddi maam Cheikh lañ leen di jagleel ci télévision Futur Média Pape Thioune ñu ngi lay nuyu euh, di la ziar bég ci sa teewaay tey ci quartier général bi. jërëjëf euh, Pape maa ngi lay nuyu aussi di am mbégte bokk ak yow bi. du nuyu ñi nga xam ni euh, ñoom la bokkal euh, plateau bi euh, Oustaz Modou Fall maa ngi lay nuyu bu baax a baax sama xarit sama soppe bëgg nañ lool ah, Oustaz Pape Anne soxna mami ah, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax suñu soppe bisou aussi di ko nuyu di nuyu Abba ak Modou Pape Cheikh ah. bu ko defee di nuyu ki nga xam ne nag mooy sëriñ Ma Ibra Fall. Mhm. waaw moom di euh, euh, mu sëriñ Cheikh Fall Mbawoor. Mhm. nga xam ni sët la ci baay di sët ci ndey. Mhm. nekk jàmbaar ci kër maamam gi di taxaw fii ci Sénégal ak ci bitim réew. bu ko defee di nuyu nag Cheikh bu baax bi euh, sëriñ Babacar Sonko nga xam ma nga Thiès. moom itam di liggéey liggéey boo am solo foofu itam chaque année mu amal fa guddi maam Cheikh Fall gu yaatu. maa ngi koy nuyu baax a baax itam di nuyu Roqe comme ni ma koy defee. ak Momar. di nuyu bu baax na képp koo xam ne rek mi ngi ñuy topp euh, sëñ Pape mhm. ak fu mu mën nekk ci àdduna bi Abou Ndiaye ak gaa yëpp maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp mhm. waaw bàyyiwuma bàyyiwuma kenn mhm. jërëjëf mu ngoog Pape kontaan nañu ñu ngi lay nuyu yow itam di la ziar béggati ci sa teewaay ci quartier général tey sama am la ñuy waxtaane wala El Hadj Baye am mbégte bu baax a baax teewaat fii dama leen di wax que ne heure bu ñu génnee rek dañuy am mbégte ndaxte dañuy xam ne li ñuy waxtaanee rëy na lool tey euh, comme ni ko oustaz Pape Anne di waxee rek Sidi Ibrahim tey moom la ñuy waxtaanee waaye Pape Amady naa mbégte bu baax toog ak yow sama rakk ji. yaa ngi rafet lool sax. Euh, bu ma lay bu ma bu may waaj ba di la gis si. waaw sa xol day sedd. sama xol day neex. damay damay belli. billaahi waaw kay waaye Soda Mbacké am na lu rëy lu mu ñu. boole aw moom benn affaire comme moom nee na léegi tiktoker la. Euh, bu rëy rëy rëy. <laughs> influenceuse. <laughs> caat du ko ci bàyyi. mais daa xew nag. waaye caat du ko ci bàyyi. <laughs> du ko ci ba mukk caat na noonu lay amee mbégte daal di ziar sunu oustaz yi euh, Anne vraiment bien joué. maa ngi lay bëggee bu baax oustaz bien joué Anne <laughs> bien joué Anne kenn du yow ci miim réew waaye nag di di di bëggee sama doomu nday sama kol crési di je oustaz di je oustaz maa ngi lay ziyaar bu baax a baax a baax di nuyu alaaji Pak Cun di ko wax ne ko dalal ak jàmm mm. exil ak jàmm yàlla na ñëw bi sedd guy te lépp barkeel eh, ñi ngi lay dégloo ak xel bu baax te gis nañu fi nga taxawee mm-hmm. yàlla na barkeel macha allah ajaratu Bijou Ndiaye gis nga nañ ko tey moom sañ sa bi taar kàlla yaay faale na waaye noonu lay nuyoo moom Mamadou Ndiaye Bale di ko ziyaar bu baax Aba Caaye ji baax na lool tarkal ñu ngi lay ziar wax na ma bàyyi li ma abaa wax bu ñu ma nettali leen. <laughs> dafa garaaw <laughs> yi ma koy wax tey moom damay woo borom daaru directement wax <laughs> wax ko ko non directement. dama koy kalaamee ak sëriñam dama koy kalaamee ak sëriñam tey. noonu la ñuy amee mbégte bàyyi teewaat ci ci bés bi wax dëgg yàlla. Mhm. ndaxte ki ñuy waxtaanee dañ dafa toll noonu. Mhm. li nga ne ma sa maam la ñuy waxtaanee tey nag bàyyi xam nga ki tax nga tax bay tax taxal bu tax yi taxawee taxawal ne ko yaa tax. Mhm. tey bàyyi damaa delloo njukkal sëriñ Mbàkke soxna lu ak waa wilaaya tey Mouhamed Mbàkke rek laa delloo njukkal ak waa Daaru Xuddos gama dëkk ndax ki war a waxtaanee waxtaan wi mu ngi tudd euh, Serigne Moustapha faatikan mhm. ñu duppee ko Serigne Modou Moustapha faatikan mi nga xamante ne nii mhm. euh, soxna Fatikan mi waajuram mhm. ak soxna Assukan dañoo jël ki yóbbu kër Cheikh Mamadou Moustapha Fall jël ki yóbbu kër Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke sama maam kon nag loolu dafay nekk mbégte lool ci man ba pare moom laal li lalo la laal li lalo la euh, waaw Cheikh Ibra ci yaay Cheikh Ibra ci baay bete bete biir waaye itam Euh, Moustapha Fati kan mi ñu ko tuddee. Mhm. moom itam Serigne Modou Moustapha Fall la ko jur. mu delluwaat soxna Astou mi ko jur moom itam. Mhm. soxna Fati kan mi ko jur ak soxna Astou Kane ñu jox kii Serigne Modou Moustapha Mbacké jox kii Serigne Modou Moustapha Fall. kon moom Cheikh Ibra képp la Cheikh Ibra ko fenn. Ah. kon moom danañ Cheikh kontaan comme ni ñu koy waxee. ñoo ko déggandoo am mbégte waaye man nag sama buntu ci kër mhm. ko ci wàccu waayam bu baax muy soxna Njaxat. moom Cheikh Abdoulaye Laxat mi nga xamante ne ma nga ca pencum Baye Fall ya maa ngi ko ciy jox wàccu waayam ak njaxat bi ma ci am muy soxna Astou Mbacké Mbàkkeem Cheikh Mamadou Mourtada moom Cheikh Abdoulaye la tey moom mbégte la waaye soxna Astou mhm. xam nga ne ngi waajal laylatul gi kër bàjjan may ñu ngi ziyaar ñëpp macha allah mu ngoog jërëjëf euh, euh, ajatu mami ñu ngi lay gërëm bu baax suukaru koor yeeg addiya maam Cheikh yi dañuy continuer di ko joxe laataa ñu tàmbali waxtaan bi 88 628 76 76 ku dugg léegi am 200 000 mën naa ko yokk 250 000 mën naa ko yokk 300 000 fan yi réew me neex te loolu nag TFM da koo wone moo tax ku dugg ñu jox la addiya bu duun boo xam ni boo ko jotee soxol dina sedd ñu ngi lay nuyu euh, bisu Ndiaye. maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma fekk ci plateau bi yëpp oustaz Pape Anne oustaz Modou Fall Aba sama oteso ndoo tey ay jamput lañu laal maak moom. dañoo oteso ah. ñoo niroo gisoo sunu poos fii ñoo niroo ay baylaat lañu def sama sama put a gën a jame rek. ah sa puta ga. waaw mais sinon <laughs> tey ñëw. suba doo ñëw incha allah. suba moom bu soobee yàlla doon wate su ci bés bi bés du tuut borom lay tollal te ay yaay yaay laay doon ba guddi gi jeex. Pape Cheikh euh, nuyu mami euh, Pape ak euh, Mamadou Ndiaye ak yow mi ma fi fekk du dëgg. Mhm. ah ñu toog rek jéem a xaar waxtaan bi ndax kuy murit xam nga ni bu dul woon mam Cheikh Ibrahima Fall maam Bamba peut-être xam giñ ko xam duñ ko ko xamee nii. Mhm. donc buñ koy waxtaanee suñu xol day sedd balaa dara di commencer ma ciy nuyu sam papa sama yaay ndax ñoo ma dugal ci. giiru murit yoonu murit bi Émile mi nga xamante ne sama frère la ñu koy woowee Talibe Lamp. Mhm. ak euh, sëñ Abo suñu sëriñ man ak Mamadou Ndiaye. waaw se le c'est le marabout des jeunes sañ sa de TFM des jeunes de TFM sëñ Abo mooy suñu sëriñ. sëñ Abo moom sëriñ Cheikh Salim. moom sëriñ Cheikh Salim. voilà ñu ngi koy jaar suñu sëriñ la suñu xarit la. Mm. Ben merci. Mais sañse nga. Ah ben c'est mes habitudes. Mais tu es beau. Ben, c'est c'est mes njaxas noir blanc ah, à l'intérieur là. Ah non, tu, tu abuses. <laughs> tu abuses. jërëjëf soxna Khady ñu ngi lay gërëm bu baax ay ca jox leen ma téléspectateur yi ku dugg ma jox ko 200000 wala 300000 am na nu muy demee sax 500000 lay joxe Abba ñu lay nuyu tey xam naa bu doon sa sago émission bi sax borom daaru la ñuy waxtaane mais Cheikh Ibra la ñuy waxtaane wallaay maam nag euh, man ñëpp xam nañ ni maam borom daaru rek laa yaakaar waaye Cheikh Ibra laa bëgg sama biir xol loolu àdduna yëpp xam nañ ko man <laughs> Cheikh Ibra sama biir xol la ne mm-hmm. même bu dee borom daaru laa yaakaar loolu àdduna yëpp xam nañ ko mais kii euh, na nit ñi di waxal seen moroomi nit ñi lu baax li ñu def mm-hmm. fee la ñu taxaw may la li bàyyi sol lan la nga ne ma lii mu sol Kayfa moo ko ñëw may la noir blanc bi ci biir laa wax. bu eh, xam ni tey guddi Cheikh Ibra duñ ci werante duñ ci werante bàyyi naa la ak yow waaye mais heureusement ba Kayfa ñëwu ko. kati création ko ñëw. et pourtant nag moom moo ni ma Kayfa woo ko ñëw. maa ko wax te bàyyi am na kati am na Kayfa. mais yow xam nga ni bu ma kati ñëwalul. soo de suñ ko précise moom may ñëwal. genre yu mel nii. maa ko ni ah. ndax kii da koy def moom. mi ñu werante ci ci sama dëgër fi. Ah, li temps bi xat-xat yëpp man ak moom werante nañ fa bay waaj a songu. nga d'habitude ñi dër nii la la ñuy nettali. di nuyu nga xam ne ñu ngi mais léegi yow li ñu wax fee yëpp bu ko dagg. yàlla baax na du <laughs> ko wax kenn day nettali de di yeggali yow tey di nuyu pourtant bi ngeen di nuyoo dama leen bàyyi ngeen nuyu di nuyu ah, <laughs> di nuyu téléspectateurs yi seetaan ñëpp bàyyi nag di bég tey mm-hmm. eh, ci teew gi nga xam ni moom laa teew fii nu war a waxtaane koo xam ne sama biir xol la sax dama koo bëgg te nag moom foog naa ni eh, bu ma aaloo rek li nekk samay poos moom duma ma ko yóbbaale bu may ñibbi nag comme man vraiment fonk gi nga ma fonk te lekkoo dara bàyyi ma. waaw ah. dama bëgg boo aaloo looy joxe rek. Ah. jox ma ko ma lay joxe. ci kaw yow boo aaloo ñeent fukk yi ngay maye nga may ma ci. adama <laughs> dof. dofoo jënd jàpp la <laughs> ayca laa bëgg a baal ma baal appel bi. coupé na coupé na. waaw indi kii waatal na nekk na woote. non non non. yow téléphone nga yor. man techno laa kii ñaata yoon moom la ma kiiwoo ah waaw kii de mu ngi nii rek. waaye gis nga directeur yi bu ñu mëntatul fay employé. yëg nga ni may na ma xaalis sànq. bul leen leb <laughs> ma ni dama koy <laughs> ma ni directeur yi bu ñu mënatul fay employé. Eh? bul leen leb. Ah, daf la daf la amel boo sarakul lam yalwaan. daf la amel Bouba Ndour bu fekkee dinaa la abal fukki junni may ab nii. <laughs> yàlla naa torox man may na ma fukk may na ma fukk léegi mu ngoog jërëjëf Aba ma euh, ma profité ci Oustaz Modou Fall Oustaz Pape Anne Euh, encourager équipe yi fi nekk euh, muy Mami muy Abba muy ñaatam ba euh, j'en profite pour wane affiche su ñaatam bi ñoom chaque année dañuy def social voilà Abba ci la nekk bopp ba tey mhm. te ñu publicité peut-être man maa waane wala man maa ci am xol bu sedd ba di ko wane ci télé bi mais ñoom ñëpp mbaax gi ñuy def ci weeru koor gi c'est bon ñu koy wax sénégalais yi ndax ñun ñi ñëpp ku ci def erreur réew mi waxtaan nañu. te mhm. suñu suñu yu baax du ma dégg. kenn bind ko wala mhm. kenn partagé ko. waaw ah. barki démb laay wax suma benn xarit ne ko yéen bu ñu ma waxalee lu bon ngeen transféré ma ko waaye yu baax yi du ngeen ko wax kenn. Mhm. te yu baax yi dafa jar ñaatam ba mu ngi ci quatorzième édition. abaa boobu ba tey chaque année maanaam man munuma li ñu mën. fanaan ci télé bi xëy dugg ci dëkk bi ñu def ay teraanga ñu def ay ndimbal ay saaku saakuy ceeb. xaalis boobu xajoon na ci ñoom mais ñu ngi koy dimbalee jaamu yàlla yi. nañu wax yu baax yi ñu nekkee ci réew mi parce que c'est des jeunes yoo xamante ni mënoon nañoo dem defi leneen. Mhm. mais c'est des références pour génération bi muy Abba muy ñaatam mhm. muy man muy ñu mhm. nekk télévision Futurs Médias Bijou Bijou Ndiaye dafa dem ba Sénégal yëpp yaayu xale yi la ñu koy woowee ndax ni muy defee ay collect utiliser turam pour dem ñaan jox ko ay nit yooyu dafa jar di waxtaanee ah wallaahi laaj Pape moo gën bu ñu defee ay erreur ku ne duñu wax waaw te léegi dañ dañuy laayval boo defee erreur bu ndaw ndeysaan ñu jël sa jël seen temps live la. xool dégg nga donc yii waa TFM di def yu jara waxtaane na. Mhm. Euh, jara waxtaane la Oustaz Modou Fall li muy xale yëpp. Mhm. fexe na ba dégg borom daara ji. Mhm. barki Serigne Touba. dëgg la ñii itam ci mbaax yooyu la nekk. muy muy lu exceptionnel. tey président dafa recevoir ñëpp tappal leen ay chevaliers. mais les jeunes qui travaillent ci télévision Futur Média nga xam ni dañuy liggéey pour société bi. nous méritons. Euh, xeetu distinction yii nii. mais mais El Hadj Pape xam nga sunu borom subhaanahu wa mm. nit fooree doomu aadama foor. yàlla ni na ngeen dimbalante ci mbaax. Mm-hmm. dégg nga yàlla. Mm-hmm. wa taawanu alal birri wa taqwa. Mm-hmm. waaye wala taawanu alal ismi wal udwaan. na ngeen dimbalante ci mbaax. waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar ak bon xam nga première li gën a garaaw. mooy nga nga taxaw di wax nit lu ñaaw. wala ngay jëf lu nit. jëf nit lu ñaaw. te booy def lu baax wala ngay xaawi sutura doomu aadama. booy def lu baax dañuy mel ni ñu ko gisul. amiin mais lépp la ñuy gis. lépp la ñuy gis. am naa ci ay xarit yoo xamante ni yàkkamti wuñu lu dul ñu waxal ma lu ñaaw rek ba ñu transféré. ñu yónnee la ko. mais yu baax kenn du la ko yónnee. du la ko yónnee. amul kenn koo xam ni woo nga xale yii muy Aba muy Mami. pour ne ko félicitation kontaan nañu xoolal non stress ak ay ndogom. Pape li gën a mhm. tey boo boo gisee nit ku am benn affaire. Mhm. maanaam mu taxawal entreprise bu baax wala moo am dara. Mhm. su ko dugalee Facebook. da nga gis ni ñu amee da nga gis ñu amee de. mais gis nga bu ko ñàkkee. quatre-vingt-dix mille commentaires nga ciy gis. Ah. ñu naan ko massa massa massa. Ah. malheureusement moo tax sama mission mooy wax lu baax rek. di di ko di ko di leen tànqal ak mbaax gi. saa Oustaz loolu nag mooy mbaax moo tax moo tax yàlla ni na ngeen dimbalante ci mbaax. mooy ñi am. nañu dimbali ñi amul. ñi ñi feebar. ñi wér nañu leen taxawu. billaahi ngeen dimbalante ci mbaax mais bu leen dimbalante ci bàkkaar. Mhm. def at taawun taawun mooy dimbalante. Mhm. ñu ni at taawun euh, la euh, at tadaamun mooy tampon. lawnun min at-taawuni mooy euh, melo la ci dimbalante mais laaj pap am na ñu ne ci prison bii amu ke amuñu ku leen yónnee añ am na ñoo xam ne seen i mbokk yëguñ xamuñu ni ña nga fa prison ngi dem seen i mbokk amuñu doole abaa barki démb dafa rañsele ay saaku ceeb ak bidon diwlin comme ni ñu koy defee màkk rangele ko nii nii nii nii nii mi ngi noonu ku ne di jël ku ne di jël mooy ñi am nañu dimbali ñi amul am na koo xam ne sax amul mais xol bee rëy mm-hmm. ba day woo ay mbokkam ñi nga xam ne am nañu mm-hmm. jox loo am jox ma yow ñi dañoo dañ ko koy majjal ñu dajale ba mu bari dem yóbbu dimbali ñi nga xam ni amuñu alaaj pap loolu mooy solidarité loolu moo tax yàlla ni wa taawanu alal birri wa taqwa mhm. na ngeen dimbalante ci mbaax mhm. te dimbalante ci ragal yàlla mhm. waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar wala taawanu al ismi wal udwaan mooy nañu dajaloo xool euh, diw mi naka lañ ko naka lañ ko mën a suruxalee nañu dajale waxtaane diw mi naka lañ ko mën a dugalee ci kàmb gi kii mii naka lañ ko mën a yàqee ba mu yàqu yàqu kii mii nañu ko waxal loo xam ne dootul génn ci mbedd mi wala taawunu alal ismi wala udwaan bu leen dimbalante ci bàkkaar ak noone gis nga laaj pap gis nga noon boo toogee vingt ans gisoo ko defal traitation ci moom parce que xol ba dafa am lu ciy des dégg nga wax bi mhm. yenn saa yi euh, sina lu nee na mu ñëw toog la di la muñ ak a reetaan mhm. fekk waxal bu xëyata la hëbu dañ lay ñooru xol baa ngay tàkk ci sa kaw mhm, mais bu la yàlla dimbalee nag nga am xol bu laab am xol bu sell jéppi rek am xol boo xam ni li nga yéene sa bopp maay góor gi ci ruq bi léegi waaw moom nga yéene sa morom alaaj pap mm-hmm. loolu nag bu la ko yàlla defee xam nga mm-hmm. ku bon ku ne xam ne yow boo bonee xam nga ne di nga xam ne damaa bon mm-hmm. soo soxaree di nga xam ne dangaa soxar léegi nag foofa bul bul bul bul xas doomu aadama. Mhm. yow yëgal ni sa xol bi moo feebar. Mhm. te xol bu feebar nag daa koy fajal sa bopp. xol dañ koy examiner comme ni ngay examiner sa jëmmu. alxalbu yumtaxanu kama yumtaxanul jasadu. Mhm. wa bitaali fa innahu yasqutu aw yanjaxu. soo examiner sa xol yaay xool ne man ku baax laa wala ku bon laa. kon nag mbaax bu ne ñëwee ci yow. ba ngay def solidarité. di dimbali doomu aadama yi. nii nga def mooy siiwal ko wax ko. ku ko xamul woon toppandoo leen. loolu mooy mbaax. baax yal na yàlla yokk leen dëgëral allahumma amin allahumma amin moom loolu ci moom la commencé de mhm. ñun ñu bari bu ñu koy def dañ ciy roy ci moom te yeggaguñu fi mu yeggoon ci mbaax parce que mhm. moom ci hôpital yi moo ñu ci njëkk a dem fuuf ba pare mhm. boole ci li mu defoon ñun yeggaguñ fa même bu dee ñu ngi koy bëgg fekk koo xam ni dafa nekk ci kër ba kër gi daanu wala fekk ku amul kër nga tabaxal ko kër di ko may bu la yàlla faye loolu ñun xam naa ne suñuy jëf moom sa ginnaaw jëf la parce bàyyi boo ko gisee maanaam da am envie toog ak moom ñun ñëpp ay animateur lañ mhm. mais day suñu mag di suñu kilifa man moom laa wooye directeur animateur yi parce que dafay bëgg di boole ñëpp di leen teg bëgg di partager bu ko neexoon ku mu fii doo fi yaatu mais yal na la yàlla fayal li ngay jëf ci kaw ak li ngay jëf ci suuf amiin donc je rappelle que quatorzième édition don de Pâques de ci ci korité bi ak euh, ndogu yi euh, ñaatam ba euh, dina ko amal ca xombol ren nag di quatorzième édition bi Euh, ku ci bëgg a jàpp wala bëgg ci accompagner ñaatam euh, ba euh, mën nga ko contacter ci 77 540 je ne sais pas si j'ai le son numéro de téléphone. numéro. numéro waaw bi nga xamante ni voilà le numéro est sur l'affiche je je pense. je vérifie je l'ai pas mais ñaatam dina ma ko yónnee voilà pour pour moo gën a wóor mais quatorzième édition bi daal day yóbbu ay ndogu di ko dimbalee waa xombol ku ci mën a jàpp rek euh, bu ma amee numéro bi dinaa ko dinaa ko joxe mami yow it comme chaque année yaa ngi jëm ci prison wu jigéen ñi camp pénal bu liberté 6 ren nag li ma ci neex mooy euh, da nga da nga da nga daan conférence ak ñoom mais ren da nga ne jooy du am déedéet depuis daaw dama leen a ñaan ne leen léegi bu jooy am ah, bu jooy amati ñëpp bëgg bu parce que euh, Baye li ngay jooy ci sa xol la nekk di ci metti mhm. waaye lu Oustaz Pape wax sànq ku kenn dul yërëm boo yeewoo suba da ngay wax sa bopp anday saan te li leen di dal dal na leen ba noppi donc bu ñu wëlbatiku waatee nanguwaat société bi tëjaat leen mooy ko bu ma génnee nu ñu may xoolee lu may wax waa koñ ba jaru ko ndaxte am na ñu fa nekk ñoo xam ne tooñu ñu dañ leen a tooñ ba yóbbu leen fa am ñoo xam ne ci seen destin la bokk ñu bëgg ñu bañ dañu fay dem góor moomul kaso waxuma laa jigéen ndax njaboot gi mu bàyyi ginnaawam donc nag comme li nga wax euh, maag ñaatam tey laay soog a xam ne sax ñoo maase la ay at euh, ci 14 ans yi mhm. euh, waaye lépp dañu koy xeeb ndax li abaa wax mooy dëgg mhm. nga boo àndeek nit ku baax boo amul njëgu parfum da ngay dem xool ki am parfum nga daroog moom ndax su yàggee nga am ci xet gu neex ga mhm. kon ñun ñëpp li ngay def nii ñi ngi koy gis ñi ngi koy yëg mhm. fii koo fi jël lu mu gën a ndaw rek mi ngi def lu baax mi ngi mhm. ciy dox mi ngi ciy wax damay wax ne li ñuy dimbali ci buntu télé bii ëpp na téeméeri junni yoon ke li ñuy yóbbu feneen <laughs> dañuy war a war a war ba léeg-léeg na nga naan la ñu aayee ci ñun nag waaw dañuy am na ci ko baax dañ koy wax am na ci koo xam ne ndeysaan dafa ñëw ci buntu télé bi mm-hmm. fekk ma ma am rendez-vous boo xam ne bu jamp la mm-hmm. waroon caa dem ma ne ko danga may baal ba ëllëg ndax yëguma woon ne yaa ngi fi te damaa am rendez-vous mm-hmm. waaye ba mu yëggee këram bi mu yónnee audio bi ma dégloo ojo bi dama ne xàccat di jooy ma ne ma ne xëy naa fii la toll yàlla baax na ndax loolu yëpp suñu borom man ko teg kon dañu koy nangu bàyyi nag ren ren jooy du am de ren jooy du am waaw ren jooy ren ren jooy du am déedéet jooy du am waaw yow nag xam nga yaay parrain bi à vie à vie voilà fekk maa ngi mën di mhm. na ñu may laaj itam numéro bu ñuy joxe pour ku ci bëgg a jàpp waaw ku ci a jàpp mën nañu jaar ci 369 15 15 dañ leen ko yombalal mhm. am nañ ci beneen numéro boo xamante ne moom tamit euh, indil nañ leen ko dinañ ko jox Baye Cheikh pour ñu di ko joxe mhm. waaye ku ci bëgg a jàpp waxuñu nag woote fanaan kaay jàppale ma wax fa dëgg yàllam Sénégal itam dafa neexut a waxee ndax abaa mënta laaj pour yóbbul ñam war a yóbbul ñu toog di ko xaar yow nga wëlbatikuwaat yor sa tànk yor sa loxo yor sa téléphone iPhone un million bëgg maa woo wala nga di ma yónnee message ne ma naa ñëw dimbali la mhm. te waroon a dimbali ji mhm. ginaar xàmmeewul ngaay ak marché ti leen fee dañ koo nguufaan fii dañ koy wutal prix nañu yërëm ñi nga xamante ne ñoo toog te ne sa kër de da koy suqi <laughs> <laughs> koy suqi saaf sàq mi seeñu ko abaa ngi nii biso ngi nii da ngay woote joxe benn numéro. Eh. Eh. pour que ñu def ci ndimbal nga mën a yóbbu. Eh. mais numéro boobu da dem ba dootu amalati njariñ. ci ñi waroon a dimbalee. Ah, ah. parce que ñi nga xam ne ñoo ci waroon jàpp ñoom ñooy retourner di la woo. pour ñoom nga jàppale leen. jaru ko mes chers dimbale leen ñu ngir yàlla. Ah, parce que ñi toog fee ñoom ñoo ko gën a soxla. ndax ñi ngi ci quatre murs taxamuñu kañ lañ fay génn. donc ku ci bëgg a jàpp na ci jàpp parce que ba fii ñu toll nii. ñi ngi ci laam-laamee ndax xam ngeen ne réew mi dafa toll woon jamono bu doy waar ñu mhm. nekkoon ci élection ñu stand by waaye ñëwaat nañu mais fi mu ne koo woo Baye Cheikh mu ne la damaa jàpp koo woo mun la damaa ne ci régler la mhm. fi mu ne nii abaa ngi nii di ree waaye xam naa ne jommi na da nga daan may nit dédicace mu defal la promesse de envoi man de bi ma séedee saaku mm. <laughs> su ma yógoon dem jël ci rek yóbbu sama kër déedéet dama am pouponnière ci waaye moom itam est ce que laaju ko borom sama ñetti doom yi ay lekk kat la ñu yoo xamante ni <laughs> ay saaku ceeb yu bëri. est-ce que demul ci benn benn kuy jaay en gros moo filmé affaire yi dafa doy waar xale bu góor bi. <laughs> donc ñu ngi leen di xaar bàyyi nañ ñëw jàpp ci ndax bi mooy quatorzième édition bi te am nañu yéene nag yóbbul leen lu am solo macha allah jërëjëf Adjat Mami Diop donc événement boobu noonu nañu ko préparé ci wàllu social la sinon bu ñaatam bi itam mook mami ñoo maase quatorzième édition bi ci la ñu toll euh, mami joxe na numéro mais numéro bi may bëgg joxe mooy képp koo xam ne bëgg na accompagner ñaatam euh, ba nga euh, jàpp ci ci 77 374 50 14 77 374 50 14 Oustaz Mout Fall balaa damay ñëw ci nañu nañu continuer ak sukkaru koor yeeg addiye yi laataa ñuy dalal suñu sang tey danoo woolu sët bi pour mu waxtaane maam ji te yàgg naa dégg ci yéen boroom xam-xam yi ngeen ni adamu dasaasa saa yu ma ko waxee nit ñi dañ may ree mais loolu bëgg naa ngeen ñëw ci tuuti pour ñu gën a amaat confiance ci ki ñu tànn tey ngir mu waxtaane maamam yaaw saas jërëjëf alaaji Pape ni nga ko waxee noonu la amee adamu dasaasa mhm. deret dafay rogalaat wallaahi am na koo xam ni fi ko yàlla boole du umpale maamam mhm. yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li nu koy xam-xam-xam alaaji Paap ñi bokkoon ak moom te def ay témoignage ci moom mhm. sedd yooyu ñoo gën a wér mhm. ndax ku mel ni seydatu sayyidatuna Aïcha daan na nettali loo xam ne yonent bi moo ko ko wax mu dégg ci nopp boppam ku mel ni Aboubacrine Siddiq daan na nettali loo xam ni yonent bi moo ko ko waxal boppam mu déggal ko boppam. kon alaaji Pape tey bu nu jëlee koo xam ni sët la. ni ko kaay waxtaane sa maam. Ah, dañuy jàpp ni lépp lu muy wax ci maamam rek lu wér la. rawatina nag ñuy waxtaane koo xam ni wax naa ni daf lay jàngal njàmbaar. daf lay jàngal fit. daf lay jàngal itam wóolu ki la yàlla booleel. ndax alaaji Pape keroog ba Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wootee mm-hmm. bi mu gestoo moom yonent bi dafa gis Abu Bakrin mm-hmm. mu ko ba Abu Bakrin wéetul mm-hmm. yàlla ni walladi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaquun keroog bi Cheikhul Khadim wootee alaaji Pape liggéeyam bii ci lislaam bii maam Cheikh Ibrahima Fall mi muy mii ñuy waxtaane tey alaaji Pape bokk na ci ñi jàngale kanay Cheikhul Khadim bokk na itam ci ñi jàngale nan la ñuy soppee Serigne Touba. Mhm. nan la ñu koy toppee wane Pastef. Mhm. wane njàmbaar. Mhm. ba tey ki yaafusoon bu jàngee jaar-jaaru maam Cheikh Ibrahima Fall. xam ni daal kilifa wala nitu yàlla alaaji Pap bu nu ko jàngalee war na noo xam nan lañ koy toppee. wallaahi moo tax am naa yaakaar tey ci ni guddik tey. képp koo xam ne bëgg ngaa xam dëgg dëgg kan mooy maam Cheikh Ibrahima Fall da nga ko xam ci guddik tay gi alaaji Pap. macha allah jërëjëf yaa Oustaz te bu bëggoon ñu waxtaanee Seydatuna Hadija pour doser oustaz Pape Anne mais peut-être temps bi moo ñu ko dul may. mais demain demain waaw ci première partie bi incha allah faaw ñu waxtaane ko ba noppi dañoo woolu sunu sunu sunu sunu sunu beneen soppe euh, di euh, Modou Aïda moom moo ñu euh, naral si karal ak ñi mu àndal ci quartier généralu tay bi damaa nuyoogul ak Sophie moo tax ma buggoon ñu fekk ko ci ruqam boobu comme moo yore lépp luy xëdd bi ci quartier général bi bu ko defee bu Sophie nuyoowee rek. ku dugg ma jox ko addiya tombeek sang bi yegg si ci plateau bi ñu mën a nag tàmbali waxtaan bi émission bi pour euh, ñi ko xamul ñi fi ne ñoo ko gën a bëgg maa ngi gis Ibrahima Cissé moom it mu ngi jaabante rek ndax euh, cofeelam ci waxuma Cheikhul Khadim waaye cofeelam ci Cheikh Ibra nga xam ni moom euh, surtout Cheikh Ibra bu juddu léegi mën na koo mbëkk wala mën na koo sukkal loolu ay xeetu cër la yoo xamante ni respect bu ñu Cheikh Ibra jàngal ci ay cër yu ñu war di joxe ci yar donc loolu defe naa modèle de société weesuwul ngay waxtaanee Cheikh Ibra pour surtout ndaw ñi nga xam ne léegi réew mi dafa xaw a jaxasoo. léegi mhm. ma la. li waral loolu boo amee ngëm bul xàmmee bu mag baag bu ndaw ba ah, jaan bu la màttee duñ ne ndax bu mag bee ko matt wala bu ndaw bi lu gi rek a ciy topp jaan jaan rek la tudd <laughs> Pape Jean moom itam tey bég na lool euh, Sophie ñu ngi lay nuyu grawul Sophie Diallo dégguma la de Sophie Cheikh Ndiaye maa ngi nii Baye see seenu ma la maa ngi nii yaa ngi muy seen. waaw ah, tey moom Yaay Fall nga woote. mu ngi noonu Yaay Fall la ñu woote tey Baye Cheikh. fii weex fii ñuul. mu ngi noonu Baye Cheikh waaye guddi gi jar na ko guddi ah, Cheikh Ibra gi di ziar ñëpp Baye Cheikh. di nuyu rek ñi nekk ci plateau bi yëpp di nuyu mbokk yi xarit di ñuy seetaan comme ni ñu koy defee nag saa su ne indi leen benn plat boo xamante ne di ngeen ko mën a reprendre seen biir kër euh, tey nag dañuy def lu woyof rek Baye loo xam dinañu mën a servir pour xëdd euh, cake nature nag lañ leen proposé tey Baye Cheikh dinañu soxla farine orange euh, feuille de menthe am nañu nen ak euh, soowu yëlitaare bi ak euh, meew lay euh, laliyaa bi ñuy accompagner fii suñu biir waañ laata loolu nag Baye Cheikh dinañ jaajëfal suñu partenaires yi nga xamante ne dañuy accompagner ñoom it muy riz sangomar riz sangomar nag boo ko waxee rek sa xel dafay dem ci ceeb bi gën am na sac bu bu cinq kilos ak bu vingt cinq kilos Baye Cheikh am na riz brisé am na nag riz long mooy bu di jibi Baye Cheikh bu ñu jógee foofu ànd ak waa savon soxna Mati euh, savon antibactérien bu mucc ayib la Baye Cheikh waa groupe soxna Mati nag ñooñu ko fi andil ñoom na dañuy yëngu ci agroalimentaire di yëngu nag ci li nga xamante ne mooy euh, distribution wa euh, pomme de terre loo soxla ci pomme de terre ak canette soxna Mati bi nga xam ne jamono ji Baye mu ngi ci marché bi ñoom nag dañu koy def fépp boo wootee ci seen numéro foo mënti nekk rek Baye dañu lay livrer ba sa kër sucria suukar bi gën moom it dafay dem ci suñuy plat sucré day dem ci ndékki laax fonde càkkri dafay nag boo bëggee nag diminuer sa taux de sucre sucria bi bàyyi sax ngay jël euh, réservé wuñ ko rek uniquement pour diabétique yi ñëpp mën nañ ko jëfandikoo ñu ànd aussi ak la vache qui rit ñu àndil ñu fromage ñoom bu mucc ayib euh, fromage bi bàyyi sax am na extra crémeux am na euh, l'original gu emelta bi ak li nga xamante ne mooy fromage rouge ñu ànd ak Sénico sunu moomeel ñu ànd ñoom it diwlin bu mucc ayib ak warga bi nga xam ne mooy warga Flesia diwlin bi nag mooy huile kadi 100 pour cent euh, huile de tournesol la mu nekk benn huile bu raffiné am na bu 5 litres am na bu 1 litre boutique boo dem rek bâche di nga ko fa mën a fekk ñu ànd ak aussi ak groupe Yelitaare ñoom it ñu àndil ñu rek soo bu mucc ayib am na euh, vanille bi am na non sucré bi pour ñu bëggul sucre am na yaourt bi am na gold fruit ak banane Cheikh waa groupe Yedita ñoom it ñu leen di jaajëfal ànd rek ak waa. NMA Sanders NMA Sanders moom it mooy li moom boo ko waxee sa dem ci pat yi gën pat pastami am na macaroni pasta mi spaghetti pasta mi mu xam sa pasta mi ak euh, meew bi euh, ak farine bi nga xam ne mooy euh, farine farima moom nag booy defar beignet petit four lépp loo soxla daal ba Cheikh ci lu jëm ci pain wala ay petit four farine farima bi moo ci gën ku si aussi ñu andil ñu rek meew laliya bi gën neex ci ndekki gën ci wayal lañu ko duppee moom it am na pack bu 400 grammes individuel bi ak les concentrés non sucrés bi ñu ànd aussi ak waa Dekakila Dekakila nag moom su ma ciy wax sama xel dafay dal ndax électroménager yi gën ñoom ñoo koy andil am na frigo am na micro-ondes deux euh, deux en bi am na tamit mixeur bi nga xam ne démb moom laa utiliser pour defar sama milkshake machine à café euh, ak li nga xam ne mooy cuisinière sii fa lépp daal loo soxla bàyyi seet ci électroménager boo demee Dekakila da nga koy am ànd ak waa ginaar yu mucc ayib sédiment nag ñoom ñooy def ginaar yi gën mooy poulet teral bay Cheikh ànd ak waa Helcom Pizza ñoom it ñu àndil ñu rek beñe Nutella yi gën ak plateau euh, salé yi nga xam dañ koy def ñu ngi ñu ngi HLM cité douane ak fële ca Maris boo ci seen numéro téléphone fépp foo mënti nekk ak heure boo wootee ba Jeex dinañ la mën a livrer waa soo Soza Resto kenn demul ñu des ñu àndil ñu ay épices yu mucc ayib am na tandoori euh, curcuma am na nag euh, ay en poudre ak li nga xam ne mooy persil en poudre ñoom waa soo Soza Resto ñoo ñu àndil sauce 8 ak euh, Baye Cheikh euh, arôme bi nga xam ne mooy arôme épicé bi ak soja bi nga xam ne day euh, relever suñuy guubu ceeb di ko jox couleur ci kanam rek bu ñu dellu siwaatee ñu daal defal li nga xamante ne mooy suñu plat du jour tey bi Baye Cheikh. ñu gërëm bu baax Damas. Mm-hmm. boulangerie pâtisserie ñoom it ñoo ñuy livrer chaque soir ndogu. ci mm-hmm. quartier général bi. seen sukkaru koor yi ñu continuer di ko séddale ci numéro téléphone yi. dañu koy affiché ci suuf écran bi 88 628. 20 20 ak yeneen numéro yi 88 676 06 06 07 07 05 05 voilà numéro téléphone yooyu yëpp bu ngeen ci wootee euh, di ngeen jot seeni addiya ñu profito ci pendant ngeen di daw di dugg si euh, dalal nag euh, sunu gan Serigne Moustapha Fall Fatick Kane tey moo ñu defal honneur doon ganu quartier général. pour waxtaane maamam Cheikh Ibrahima Fall donc tey di guddi maam Cheikh ci euh, télévision Futur Média Oustaz Pape Hann maa ngi wax sànq ni Cheikh Ibra la ci ndey Cheikh Ibra ci baay sunu gan gi tey kon nag Sidi Mouhamadou mhm. wax nga lu am solo léegi mhm. Oustaz Modou firil ko mhm. mooy deret dafay rogalaat waaye alaaj Pape euh, boo xamee boo bokkee ci askan. Mhm. war nga góor góorgóorlu ba xam sa taxawaayal maam. ba mhm. ëllëg buñ la ca laajee nga mën ca àddu. Mhm. Seyd Mouhamadul Moustapha Fall nag. xam-xam bi dafa rafet. Euh, tey nag daañu xam Sidi Birahim. wallaahi <laughs> tey nag euh, alaaj Pape. Euh, kàddu gi fiy jib. du lu nuy werante waaw jërëjëf tey réew mépp a ngi xaar <laughs> daañu xam dëggi dëggi Cheikh Ibra waaw waaw lu tax choix bi lu tax ñu tànn sëtam mais waaw mais mooy li nga wax laaj pap mooy li nga wax léegi waaw xam nga kenn ku ci ne di nga gëstu mhm. ci sa sëriñ mhm. waaye njabootam nag mhm. moo cay xam loo xamul ndax ay waajuram uh-huh. daañu ko déey ci maamam loo xam ni ku dul ñoom duñu ko xam sëriñ Modou Aminta Fall waaw sëriñ Moustapha Fall loolu sëriñ Moustapha Fall Cheikh Ibra ci waajuram bu góor ci waaw soxna Ndey Fall waajuram bu jigéen waaw sëriñ ab Ablaye Fall Ndar waaw sëriñ Ablaye Fall Ablaye Fall Ndar ah. Cheikh Ibra Cheikh Ibra bété bété la bété bété bismillah Fall macha allah Fall yaaram tey daal <laughs> maami Modou Fall la waxtaane mais est-ce que xam nga ni uh-huh. moom mii uh-huh. càllale ba ci Cheikh Ibra kon surtout Cheikh Ibra la surtout Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall pire la naka jekk bi ma gisee photo bi ak nii ma gisee kanamu Modou bi <laughs> Ibra faale na dama lay waxola maamam la si Ibrahima maamam. direct waaw. léegi la naan ma càllala moom du may kenn kenn ku ko waxal moom moom lépp mën na ko waxal boppam. parce que gëmoo man a a weddi léegi la ñu mais sagal bi ñu lay sagal ci sa kanamu cousin aussi. mais mais da ngeen a gëmul ni maam Cheikh Ibrahima Fall sama maam la. da ngeen a mën a weddi barki Cheikh Ibrahima gëm nañ moo tax tey dama woote sunu dëkk ñu yónnee ma sama maam yi ki ma jur ki ko jur ki ko jur ba ci maam Cheikh Rafal. ah fii naa ko génnee léegi. ci kanam nga koy génne ci kanam may ayca kon ñu tàmbali. <laughs> mbokk mu ngoog. Baye Fall yëpp a ngi xaar xaar. xaar plutôt. moo tax ma bëggoon euh, balaa ñuy tàmbali ñu léemu jotaay bi defe naa noonu noonu mën na nekk yaw saas joxe euh, jox micro bi euh, Serigne Modou Aïda ak ñi mu àndal mu léemul ñu jotaay bi ñu doog a sang bi doog tàmbali waxtaan bi ayca barki Cheikh Ibra bismillaahi rahmaani rahiim barke maam Cheikh Ibrahima Fall laa ilaaha illallaah fa laa la ilaha إله إله إلا الله فعل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله فعل لا إله إلا الله na faal baabu muriidi na faal illallah la ilaha illallah faal la ilaha illallah am seydayo sera fal yaa nu ginde fal la Cheikh Ibra Fall suru maam seydayo sera fal yaa nu ginde fal la ilaha illallah الله لا إله إلا الله لا jërëjëf Cheikh Modou Aïda bëgg nañu ci noonu nga ñu ubbilee jotaay bi tey ci quartier général bu exceptionnel bii ñu leen di waaj a proposé ci télévision Futur Média ndok ba guddi gi tey tombe ak samedi nga xam ne ëllëg kenn du def dara dimanche lay tombeel yaboo ngeen concentré wu rek ku ci mën jël big ak feuille wala dugg ci notu portable yi di bind ndax li ñuy fas yéene waxtaanee dinañ fi wax yu ngeen mësta dégg ci euh, góor yàlla bi nga xamante ni moo di maam Cheikh Ibrahima Fall addiya yi ñuy joxe nag du ma jóg ci di leen ko fàttali numéro téléphone yaa ngi nii ci suuf ay addiya maam Cheikh lay doon maa ngi seen suñu sang sama sangu bopp sëriñ Modou Gissé ñu koy ziar bu baax di ndokkeel njabootu Chérif Abdourahmane Fall la ku ne xamoon na digganteem ak maam Cheikh Ibrahima Fall ba ci guddi maam Cheikh lim ci yàgg a def ñu bëri daf leen inspiré sax euh, at bu jot ñu koy organiser xam naa ci biir waxtaan bi euh, dinañ ci ibbi parenthèse waaye Fall ñu ngi bég lool ci nii nga ñu nangu lee doon gan gi tey ngir waxtaane sa maam sëñ Moustapha ñu bàyyi la nga nuyoog suñu xarit ci nga xam ne ñoo ñuy seetaan moo xam ci télé yi wala ci portable yeeg ordinateur yi ndax tey daanaka àddina yëpp ñoo fas yéene taaxeerlu ngir déglu li nga ñu nar jox jukkil ñu ko ci sa maam maam Cheikh Ibrahima Fall. ñu ñu ngi lay nuyu Fall Yaram. maa ngi lay fay bu bu bu bëree bëri Pape Cheikh di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. aleykum salaam. di wax salaamun alaa wa amana billahi wa bil yawmil axir wa man ittasafa bi sifaatihi min attaabihin ila yawmi ddiin di wax jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ tuuba jaaraama Cheikh Ibra Fall ñu ngi nuyu mbokki TFM yi ñu fekk si tey mm-hmm. waaye bala maa wax benn baat ñu may ma tuuti ma wax koo xam ne nekku fi mm-hmm. uh, dama ne woon xabla kulli shay'in ismaxoo lii an aqula shay'an xalilan min aqina alkabir allasi xat sabaxa ila daalil xaq mun su xesri na xaaman cheikh ibrahima fall ibnu cheikh mouhamadou fadilu fall ak soxna nday fall musu ibrahima fall ndar jalastu huna lin niyaabati xanhu bu fekkoon tey dafay day dund fi ma toog nii moo fi toog mu laa fi wutu muy sama mag Cheikh Ibra Fall ñu bokk ñaari waajur mu jóge fii diirub ñaar fukki at dama leen koy wax ngeen déggoo waaye moom laay waxal te buñ demee ci biir waxtaan wi danañ xam ni toog fi wax ak moom mën naa ne Pape Cheikh maa ngi lay nuyu lu bari di nuyu sama ñaari ustaas yi ma dendal waaye di jiital ci nuyoo bi nag sëriñ Mouhamadul Mountakha dañ koy ñaanal nuyuwuñ ko sax dañ koy ñaanal sunu boroom dolli ko fee bàyyi kattanal ko wéral ko ba li mu yéene ci liggéeyub sëriñ tubaay mu def ci lu kawe njortam nit ki noonu dañ koy ñaanalee xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Mbenda ñu tuddee ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Ibra mm-hmm. ñu ngi koy moom nuyu te ko siyaare bu baax di ko ñaanal boroom dool dolli ko fee bàyyi te kàttanal ko ba lim yéene mu def ci lu kawe njortam mm-hmm. ndax waaju baax yéeneem du àgg ni waaju bon sax mm-hmm. waaye mën ngaa def lu kawe sa njort ñu ngi ko koy ñaanal dama fee ñëw nag ci turu waa Jazboul Mouride jasbul murid mooy daairatu maam Cheikh Ibrahima Fall sëti sëtaati maam Cheikh Ibrahima Fall mm-hmm. may kenn ci ñoom sëñ Modou Fall moom sëñ Amdi Yaasin doon président daaira bi mu ñëw di kenn ci ñoom nga xam ni am nañ ndigalul sëñ am di munu bend ci jóge Touba ñëw fii waaye di nuyu suñu suñu sëriñ bopp ñun nga xam ni ci moom lañu yeeslu di sëriñ Fallou Fall moom sëñ Modou Binta man kër Cheikh Ibra Fall laa bokk waaye bunt bi ma jaar ba dugg kër Cheikh Ibra mooy kër Cheikh Modou Binta kon ka fa nekk gannaaw ba fi sëriñ Modou Binta jógee mu nekk fa jëmmi sëriñ Modou Binta koy xoole ñu ngi koy siyaare di ko ñaanal suñu borom doolu ko fee bàyyi moom it ki ma njëkk a wax nag di sama mag boobu borom kër gi xam na ko bu baax di Youssou nduur su ko déggee li may wax dana ko xam bu baax xam na Cheikh Ibra Fall ñu koy wax sañ Cheikh Fall di siyaar nag sama mbokki bopp yi ma àndal di ay taalibe di ay xarit nga xam ni bi ñu déggee ni damay ñëw fii ku ci ne riir nga ni damay dem mbir mi badar lañ ko jàppee sax daa mel ni xare lañ ko jàppee ku ne riir nga ni damay dem ñii di samay rak ñii di samay mbokki taalibe ñii di samay xarit di ay am di jàmm su ma ci tuddee sëñ Cheikh Fall Baye góor mi ak sëñ maam Cheikh sëñ Cheikh Fall bàyyi ko doom sëñ Fallou Fatikan la sëñ Fallou Fatikan rakk sëñ Mawlo Binta la sëñ Moussa Fall ko jur. Hmm. sëñ maam Cheikh mais doomu sëñ la sëñ bi ngeen dalalee fii sëñ Daga Diop moom moo duggoon ci ligne bi. Hmm. sëñ maam Cheikh mais moom it doomam la ñoo bokk maam moom ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. niki noonu ñu ngi nuyu mbokki taalibe yi ma àndal yëpp nag jërul may tudd waaye su ma tuddee chef de service bële. hôpital Cheikh Cheikhul Khadim bu Touba di Serigne Mbacke Faye rek yóbbaale na ñëpp. Mm-hmm. Modou gisee ñoom suñu mënoo yore ñëpp ñu ngi leen di siyaar. Mm-hmm. bis bi ëppale ci kenn damaa toog fii rek. Mm-hmm. waaye xëy na yéen ma ci ëppale. sëñ Ibrahima Cissé mi nga xam ni dama koo natt <coughs> man ci àll ba laa nekk. yor a alxuraan bi ma waxee guddi yi dama koo nattu ni ko dama ñëw fekk ci àll ba. c'est ça dafa taal oto ñëw fekk ma foofa. te du Touba du njaareem ci àll ba la. fa la ma fekk foofa àll xonq cooyu la. ba mu ñëwee laa xam ni kii li muy wax jaral na ko. wallaay na ko. ndax zur man tuhibbu wa in shatat bika daar wa xaala min dunihi sahlun aw xaar ki nga bëgg di ko visiter di ko siyaare. Mm-hmm. donte sa diggante ak këram këram wala fam ne ak fa ne. ak joor la ak kekk la goo xam ni soo fay dox say tànk day dagg ndax laa yam naxan naka buxdun xan siyaaratihi inal ba li may yahwaahu sawaar loolu moo tax mu déplacé wu ñëw te li ñu nekk di ko bëgg waxtaane tey mooy ak bëgg yoonu murit fu fi waaye yem sëg bëgg la fa yemale mm-hmm. te yoonu murit mooy yàlla rek kon suñu mbokk yi soxna mami sëñ cuun e, sëñ Pape cuun say jëw rafet na trop waaw ndax bi ma yëgee bi ñu yëgee ni maa ngi fi jëm si say mbokk Cees di samay mbokk woo nañ ma wax lu rafet ci yow yàlla bu la bu la cet sonal amin amin amin ñu ngi a gisee ci dëju sërif Abdourahmane Fall la ngay ko am volere mhm. Fap Modou tamit ñu ngi koy siyaar bu baax yàgg nañ leena a kon daal loolu mooy ak sama ñaari gaay yi mhm. Aba ak Mohamed Aba tur yu dëgg-dëgg lu mu doon ah, Ababacar Aba de ci arab mooy bañ na waaw bañkat la mhm. aballahu illaa kawnahu sayyidan bihim waxat da waxal ku faara wala lu <laughs> loolu la jumaa ji waxoon kon ñu ngi leen di siyaar daal lu mën a xew ci bis bi nga xam ne mooy bisu Cheikh Ibra Fall mhm. ndax fii rek la tay la wallaay tay weer wi ñu nekk di weeru koor lu ci lu ci laal yëmut ak lu ci laalu mhm. bi ci alxuraan wàccee alxuraan daa far gën téere yi mhm. guddi gi ci wàcc lee taxadar daa far gën a guddi yëpp alxuraan it weeru koor bi ci alxuraan wàccee daa far gën weer yëpp moom dama ne woon sax élection yi sax mooy élection yi gën ci élection yi ndax ci weeru koor la amee ndax saayir balaa mën a balaa mën a taxaw faaw day am baatin mhm. kon loolu mooy tamxit bi ma doon def ngir ñu mën a jàll ci waxtaan bi jërëjëf Fall kon jaaw saas ñu tàmbali ñu tàmbali bëgg nañoo xam comme ni nga koy waxee. dëgg dëgg Sidi Birahim. loolu mënul ñàkk. ah Seydou Mouhamadou Moustapha am nañu mbégte euh, ubbi bi moom ubbi la boo xam ni mooy tegtale ni tey boroom xam-xam dëgg lañu ñu invité laaj Modou mooy tegtale ni euh, li ñu jot a dégg ak ni ñu déggee nii mooy ku ku am xaal dëgg ci ki ci maamam bi mu war a waxtaanee waaw tey bisu bi bisu tey bii daa laaj paap euh, bisu xaal la bisu xaal la ndax ki nuy waxtaanee euh, ki koy waxtaane day am xaal ci moom ba noppi waaye ñi koy recevoir nag ñoom ay boromi xaal lañu wallaahi xam nga boo Faal xam ngeen ni seen xaal jege na leen lool wallaahi ah? waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall hmm. ñi ko bëgg seeni xaal jege na leen hmm. nga kon euh, sëriñ bi ñu dugg ci waxtaan wi rek. tey jii daal bëgg nañu xam maam Cheikh ibraahima Fall. xam nañu ni taalibe Cheikhul la. xam nañu ni mooy baabul muridiin waaye bëgg nañu xam askanam yitam askan wi mu bokk. ba ku bokk ak moom mën caa tiitaru. bëgg nañ ca bëgg nañ ko xam. askanu maam Cheikh Ibrahima Fall. bëgg nañoo xam it nag fi mu jaar. ak daje géem daje gi mu dajeeg sëriñ bi hmm. ak daje ga kan la kañ la ak ñamu fekk ca daje ba hmm. ak bi mu dajeeg sëriñ ba ca daje ga lu xew hmm. waaw loolu daal euh, xam naa ci kanam tuuti sëriñ moo dana ñëw ci bi yeneen question waa plateau bi it ñoom itam ñëw ci yeneen question waaye lu njëkkali daal ñu xam askanu moom sa Ibrahima Fall jërëjëf Oustaz Pape ñu lay delloo ziyaarewaat bu baax Cheikh Ibrahima nag see boobu ma ne la askanam mm-hmm. mooy mooy Sénégal mm-hmm. ndax ñu bari dañoo jàpp ni bari na ci ñoo xam ne sax bu ñuy way da ngay dégg ci wàllu dammeel ak nangam lay njëkk a wax waaye ci misaal rek ma ma jël menn maam ci wàllu côté faaleen gi mm-hmm. muy dameel ma seen dameel ma seen dameel ma seen dafa am ñaari doom kenn ki biraan njebe lañ koy wax kenn ku ñu koy wax yoro gis nga yoro ak biraan seen diggante ak ak Ahmadou Fall roqee mu jur Cheikh Ibra mat na ñaar téeméeri at hmm? waaw ñoom ñaar ñooñu nag biraan dafa dem wuti alxuraan hmm. jàngi yoro dem wuti nguur bi ñu demee ba ñibbisi ku ne li nga wut am nga ko kii am na alxuraan am mhm. xam-xam mhm. kii am na nguur am na ak nguur mhm. bi amee nag euh, biraan mi indi alxuraan dafa sanc ab dëkk ci kajoor foofa am na garab gu fa nekkoon gu ñuy wax sànqaay moo tax ñu naan biraan njabi sànqaay hmm. biraan njëbi sànqaay. garab ga mooy sànqaay. waaw garab googu biraan bind na fa fanweeri kaamil nga xam ne Cheikh Ibrahima moom bul jàpp ni train bi ko fa wàcce rek moom mu jóge Mali ñëw. déedéet jógul fenn dégg ni am na ko woote tax mu jóge fenn mu jóge ci àll ñëw déedéet fii la juddoo te moog Sëriñ Tuubaa sax far bokk maam. Hmm? waaw. biraan moomu nag bi mu nekkee foofu ba ba ba bind fa fanweeri kaamil yàlla dafa dogal bi mu demee di wuti soxna. Mm-hmm. dafa dem njare mm-hmm. jël fa ku ñu wax Saar Njaay mm-hmm. am ca Faal Saar Njaay bi mu jël soxna dafa demaat kër nijaayam jël fa Roqee jaay Roqee Njaay moom moo jur Ahmadou Roqee Fall Ahmadou Roqee bi mu wut soxna nag dellu kër nijaayam jël jël fa Seynabu Njaay am ci Cheikh Ibra maam Saliou am na ku ñu wax soxna Yaasin Fall ñu bari ne nañ amuñ rakk ab jigéen waaye ci njari njariñ yi boo demee ne nañ am na fa koo xam ni yaa soxna Yaasin Fall du waaye 15 ans la dund doog nelaw Mm. bokkut ak soxna Asi Diop mi nga xam ne moo moom la amee ca Belal Diop. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu moom ci wàllug faaleen gi. Mm-hmm. ñi tagg Seex Ibra ci ay maam dëgg la. am na ku ne ko damel ci ay maam. waaw war ngaa amee jaam. nga jaay ko jox daam. sag fal dafay des. est-ce ci ay maam damel ci ay maam. war ngaa amee jaam. Mhm. nga jaay ko jox daam sakpal dafay des bu dee ci wàllu faaleel gi moom mooy loolu maanaam nguur gi la jaay jëndee ko taalibe waaw nguur gi la jaay ko taalibe mhm. te loolu bu ñu jógee ci biir dana war naa mën a gën a leer mhm, ndax Seex Ibra tëddutoon di nelaw ba xëy ba xëy gént boromam loolu amul nabbaxtukum maxan xalaa din badaa lii xam la an araari dan mu abada loolu borom jumaa ji wax yéen ñëpp yeewu jar ci xool leen ndam lu rëy li am laata ma koy am li ma daj coono. Mhm. sunu borom nag saa yu la nattoo. yu la defal ngëneel wa isaa aradallaahu nasra fadilatin fadilatin tuwiyat xalaa lisaani xasut yàlla saa yu la bëggee wisaare ngëneelam ci yow wala ci ci nit ki. da lay nattoo làmmiñu ñu añaan mhm. loolu moo dal Serigne moo dal ñu baax ñëpp. Mhm. te man arraxa waliyan fakk annama ahyaahu nit ku baax saa yoo ko taarixale rek mel na ni delloosiwaat nga ko. Mhm. donte demuñ. kon ci wàllu ñi sant faal. damay tàmbale foofu rek mu gàtt. bu dee ci wàllu ñi sant njaay nag ci njare ndax njare juróom-ñaari njare la. waaye ki ñuy wax euh, soxna Seneba Gay mhm. ak soxna Aram Gay ak soxna Caane Gay seen baay mooy moo tudd Masamba seen ndey tudd soxna Wari Ngom hmm. yaa ngi may dégg soxna Mame hmm. Seneba mhm. moo jur ku ñuy wax Ali ba Ali jur ku ñu wax mbërgu mbërgu moomu jur ku ñu wax njuga njuga moomu jur ku ñu wax ba Sénéba Ali ba nag moo jur yàlla loo walla déet. moo jur yàlla loo ca kër Amadou yàlla. waaw mu jur aminta. mu jur saa xewar mu jur soxna Aminta mangoog <laughs> soxna Aminta loo jur kan Cheikh Mouhamadul Serigne Modou Moustapha ak Serigne Baara mi daan bind ci jaww ji mangoog <laughs> bu dee mbërgu moom mbërgu moo jur daam buri sàmba mu jur soxna saliloo mu jur soxna antakan mu jur maamoor anta mu jur seexul ñu ñëw ci njuga njuga seene ba moo moo jur maxtaar njuga mu jur masamba soxna jaañ mu jur medun medun moomu nag moo jur sëñ daam abdourahman mu jur soxna aminta ba tey mu jur soxna mariam ak sëriñ mbàkke Njaay sene ba moo jur aram loo mu jur Fatim Diop mu jur maam faa Wade Wele mu jur Binta sene ba moo jur Kura Touré mu jur Fatim Dieng mu jur Ngere Njaay mu jur Maram Xàcc mu jur Lawbe Touré mu jur Absa Absa Lawbe mu jur Faati Ise mu jur maam Cerno aram gay moo jur kumba jaañ mu jur maam njaay mu jur soxna bàll mu jur soxna sëyna bu njaay bu ñu demee ci sekkiiti xuraysin amaram njulli maam amari ndaak day dugg sëñ mut bu sa jeng ñoom ñëppay dugg ci gàttal su ko defee Oustaz Modou Fall mi tamit duggaale. waaw léegi nag. da ngay xam ne kon su ma waxee su ma tuddee Serigne Touba. Mhm. ku ñu tudd ci askan ba tudd Serigne Touba rek jërëtul nga ndax jullit la wala borom xam-xam la. jërëtu ko. Mhm. Cheikh Ibrahima nag fii ma la wax ne fi la juddoo. Mhm. ci njare wàqee ñu ne ci weetu dëkk bu tudd Touré Ataman Fall. Mhm. nee na maam Ataman Fall mu fa dëkkoon ba tubaab bu lëkk lakkee dëkk ba ci la jibi njare njabi mhm. waaw mu ni te yaay waajuram bu di Ahmadu Roqee Fall bi mu am juróom-ñaari at la nelaw mhm. bi mu am juróom-ñaari bi bi am juróom-ñaari at ak maam Saliou la waajuram bu góor woow nelaw di Ahmadu Roqee Fall nijaayam yar ko di njaay Fatma jàngal ko alxuraan ba mu mokkal ba bind kaamil mu dem nag sàkku ji xam-xam dafa laxas ni ma ngi daan def ba mu demee nee nañ dem nañ kër mutu fa mbombe ñooñu ñoom ba tey ba tey ay bokk ay ay ay bokk lañ rek ñoom ñooñu damaa mënut a wax nag moo tax léeg-léeg may xaw a di càng <laughs> fii oustaz Pape. fii mm. mooy fi Cheikh Ibrahima Fall bokk. macha askan wi. réew mépp mm-hmm. wëllu yu yëpp mm-hmm. ay mbokkam lañu. Mm-hmm. foo dugg rek mbokk moom Cheikh Ibrahima Fall la. mais wàllu woy juróom bu jigéen. waaw nu mu tuddati. soxna Seynabou Ndiaye soxna tudd ko ko. waaw soxna Seynabou Ndiaye mooy li ma la wax mooy. mooy mooy càllale mooy jógee càllal ak soxna Seynaba Gaye gi. macha allah waaw bu dee ci wàllu faal ga mooy dameel masen dama la bëgg a xamal ne dameel yi rek ak diggante biñ biñ bàyyee biñ bàyyee wàlluk dameel gi ak ak diine ji rek ak diggante Ahmadu Roqe Fall mën na ñaat téeméeri at kon sëñ Maam buur la sëriñ la waaw moo tax wa moo tax sëñ Amadou Bass ne ko dameel ci ay maam war ngaa ami jaam dameel ci ay maam war ngaa ami jaam waaw waaye nga jaay ko nag jox daam daam mooy Ahmadul Xadim waaw kon sakpal dafay des sakpal dafay des Sidi Birahim bu fekkee ni. Mhm. da nga jàll ci benn question man man naa ki bu fekkee leeru ñu gën koo leeral. leer na leer na déedéet li kay li kay. li kay Seydou mhm. alaaj Pape. yaakaar naa fi mu toll nii xam nañu askanu moom si Ibrahima Fall. waa waa Pire yi bokk na moom dara. an kay moom kay damaa damaa mun damaa munta damaa munta wax ni. waaw damaa wax ni ñenn la fi ko wax. maam Xaali Amar Fall. damaa mënta wax ne ñenn lañ fa ñenn la fi bokkulul kenn wenn askan dama ko mënta wax. waaw waaye moom ñëpp la bokkal mooy Sénégal. waaw Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima mooy Sénégal. waaw mooy Sénégal bu ne ñëpp la bokkal ngir ci kenn kooku la ndax dañoo waaye Cheikh Ibrahima mooy Sénégal waaw mooy Sénégal. El Hadj jërëjëf yaakaar naa Oustaz Pape Hann ni nga ko waxee rek comme waxtaan wi dañ koy def point par point point bu njëkk bi moom kenn du wax ni leerul muy askanu maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ci deret nga gis ni li ma gën a prêter attention ci waxtaan wi mooy kër goo dugg fekk fu maam Cheikh Ibra mhm. waaw ci senegal gépp nag. Mhm. lim na ko ba tudd sëriñ Baara. te ku tudd Serigne Baara tudd Cheikhul Khadim. nga gis ni kon maam Cheikh Ibrahima Fall yaatu na foo dugg ci këru diine yeeg lislaam bi rek fekk ko fa. man nag sama question. dama dégg ci benn mag mu ni maam Cheikh Ibrahima Fall bi muy dajeeg seexul Khadim booba kàngam la woon ci xam-xam maanaam lu nitu yàlla di jàng rek pour xam ko booba maam Cheikh Ibrahima Fall jàng na ko mais li tax mu denc njàngam teg ko fële gis Cheikhul Khadim mu jommal ko lan la ko Serigne Touba wan ba tax maam Cheikh Ibrahima Fall teg lépp topp Cheikhul Khadim hmm. cofeel googu digganteem ak Cheikhul Khadim lu waral loolu Sëñ Tuubaa wënu ko dara ndax kee wan dara da nga jàkkaarloog moom musaafahatan ni may wax ak nii laata Cheikh Ibra di ñëw ci Sëriñ Tuubaa Mamour Anta Sali xaama sasin la la wàccu liggéey muy 1880 ñii ne 81 sëñ bi ci biir nekk wajuram laa yuqiimu wala yaquumu taxawul taxawalul dara bal huwa taw mu abihi kal mayit kal mayiti bayna ya day xaasili yi sëñ bi dafa ne ci diggante loxoy ñaari waajuram ni ki ab néew rek koy sang moom du ni wala nii nga may walbati jëme waaye bi mu demee nag ba waajuram nelaw sëñ bi yor daara ji at ak juróom benn weer irwaa na di moo ko nettali sanatan wa ziyaada sëñ bi moo xëy taxaw ci digg daaraam daal di woote dong yépp ñëw mu ne sax man kaana saxibanaa li taallumi fal yansur li nafsihi wal yëwi li jinsihi fal yëthëb xaysu shaa képp ku àndoon ak man mm-hmm. sa bopp dellu ci saw askan wala nga dem fa la soob bis ni ki tey waman araada maa araad naa fal yasir bi sayri naa <laughs> ku bëgg li ma bëgg waaw doppal toppal ci sama doxin da ko wax rek waxut li bëgg lan la de mhm. su man fatala daaxi lan la wax da ko wax fatu fa aw xaxa kalaamuhu al ashaabu fil muqimil muqaxat mhm. wax ji dugg leen ci toogloo leen ak demloo leen fattarabu itiraban shadidan bayna man yan sarifu wa ma yabqa maahu mu yemale la waaw mhm. am na ñoo xam ni dañoo dañoo bi sëñ bi waxee loolu am na ñoo xam ne dañoo dem ku dem nag daara day amu maas ku jaay jaay ci daara xam nga ni xam nga ni am na ñoo xam ni day day mel yàlla leen boole dañuy xaritoo ci daara ji ku ne nag booy dem da nga yóbbaale sa xarit koy am na koo xam ne buy toog di toogaale ba xaritam mm-hmm. waaye sëñ bi waxul dara dana ci yàlla ñëpp di ko diglu mm-hmm. fekk booba Seex Ibra moom ma nga njare di xaw a dee ndax daana def bi mu jàngee xam-xam ba am ko di jaamu ko te yàlla bu mag mag ci diggante ak boromam daana def su taxawee guddi dinaa fi su ne allahu akbar mboolem wàlliwu nekk Sénégal suñu borom dana jël wilaayatoom sëmp ko ci kanamam. Mhm. kooku amoon na dara. Mhm. Mhm. moo tax ma la tëddul di nelaw ba xëy doon lim doon. te te te boobu gisante gisanteegul ak sëriñ. déedéet bi mu demee ba ba ba ba boromam feeñu ko. ak nu mu ko a feeñee loolu. alxuraan xam ngeen ni ku jàng alxuraan xam ngeen ni loolu du jafe-jafe. Mm-hmm. alif laam raa. Mm-hmm. tilka ayatul kitaabil hakim. Mm-hmm. waaw ak kaana xajaban an afaynaa ah, ilaa rajulin minhum. dëgg la de. anan serit naasa wa basiril lazina amanu anna lahum xadama waaye xaalal kaafiruun. inna haazaa <laughs> la sirrun mubiin wallaahi. dëgg feeñee rek. faaw am ñu ci àndul. kopp bi boo ko doon jaayee dërëm dana am ñoo xam ne dañuy dafa seer. am ñoo ko amul. dërëm waaw dëgg la alxuraan ji ñuy jàng. wa izaa tutlaa alayhim aayaatuna bayyinaatin mhm. qaala llaziina laa yarjuuna liqaa'anaa i'tu bi qur'aanin xayrin haazaa aw baddilahu mhm. qul maa yakuunu an ubaddila tilqaa'a nafsii mhm. saa yoo jàngee ab saa yoo la indi beneen soppil alxuraan ji dafa diis. waaw indil bu gën a oyof. yonent bi ñu leen <laughs> xul maa yekkoon ana xool min tilqaay nafsi. dëgg la de. man in attabi'u illaa maa yuuhaa ilayya innii axaafu in asaytu azaaban aziim mm-hmm. yàlla ne ko xul law saa allahu maa talawtu alaykum wala adrakum bihi. faqad labistu fiikum doon xale bu ndaw mënumaa bind mënumaa jàng xaw ma dara su ma dikkee de wax léegi war ngeen xam ne xanaa am na fu ma ko jëlee. xew <laughs> war nañu xam ne am na lu xew. Hmm? est-ce que. waaye wa in yakaadu wa in yakaadu lazina kafaru la yasluqunaka bi absaarihim lammaa sami'u zikra wa yaquluuna innahu la majnuun wa maa huwa dafa dof illa zikrul alamin moo tax sëñ Tuubaa ne xaaloo safihun li sarfi xanhuma basari mhm. xam nga ba waxee dañu ko da ngaa dof kon dof mënut a ñàkk mhm. waaye Seex Ibra bi mu àggee ci boromam boromam da koo joxoñ ne ko demal ci Ahmadu mu indi ci man warut ci kenn nag. kon euh, maam Cheikh maam Cheikh Ibrahima Fall Sidi hmm. bi muy ñëw ci sëriñ bi nekk na waliyu kaamil nekk na waliyu ba àgg ca boromam. te jàng na fànn xam-xam yëpp. waaw sunu borom ni ko li may waxtu wu ne li may def ci kenn laa koy def dem ca demal la ci man te boobu gis. mosu koo gis waaye wër ba ak la ca xew. wër ba waaw wër ba. Hmm. kon yàlla moo ko orienté ci Cheikhul Khadim. moo ko orienté ci Cheikhul Khadim te boo ko ci orienté bu àggsee. waaw ah. Cheikh Ibrahima lan def ba àgg ci yàlla. kon loolu xanaa da koy bàyyi moom. jël leneen dëgg la de. boo àggee Màkka ni ni jàkkaarloo Kaaba ga. Mhm. ndax foofu am na penku. déedéet nuñ koy def. ñëpp Kaaba gi rek. Kaaba gi rek. te pourtant avant Kaaba gi di wàcc. avant xeble gi di wàcc foofa. sa yaqulu sufahaa'u sa ci fi mu ne mu daal lay dugg. dëgg waaw. te daf koy dëgëral. Mhm. as-sufahaa'u mina n-naasi maa wallaahum an qiblatihim llatii kaanuu alayhaa mhm. yàlla ne leen ni ko qul lillaahu al-mashriqu wal-maghribu yahdii man yashaa'u ilaa siraatin mustaqiim mhm. Hmm? Hmm? Mhm. waaye su masaana julli ba noppi moom sallallaahu alayhi wa sallam ci yahud yi di ko xas amul xibla day def nii asamaan di ñaan xad naraa taxalluba wajhika fi samaa'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardaahaa kon fa walli wajhaka shatral masjidil haraam wa haysumaa kuntum kon bi mu xësee jàkkaarloog kaaba gi jëratul nga wut penku dañ koy wut di julli moo tax Cheikh Ibra bi jàkkaarloog Serigne Touba mu def leneen lu kenn mos a gis est que licence bi ngeen am fii waa TFM mhm. est-ce que yi ngeen seen seen décoration yi ci la bokk déedéet mu ngi ci licence ba déedéet déedéet yàlla ni muy defee lu bari da koy sànni fii ci àdduna mu xaw a nuroo moom mhm. moo tax bu la ko joxee yow nag yaay xool ku la wasal bu rek la wax moo wax ni ngeen boole yii déedéet. nañ boole ceeb ak jën waxu ko. déedéet waxu ko de kulu wasrabu rek la wax. waaw nañ boole yàpp ak ceeb waxu ko. déedéet kulu rek la wax. lekk leen naan leen. waaw bu joxee un milliard ngay tabax kër loolu wutal plan. déedéet yàqul sa bopp déedéet. Cheikh nag loolu la ko yàlla wax moo tax mu ñëw wut plan boppam. Allahu ñëw bëgg a ci boromam mhm. ci. joxoñ bu ko boromam joxoñ ndax suñu borom lim daa joxoñi nit ci nit bëriwut jàngoo ci joxoñ nit ci nit déedéet déedéet wa is xaala ibrahima li abihi azara atattaxisu asnaaman naalihatan inni araaka wa qawmaka fii dalaalin mubiin wa kazaalika nurii ibrahima malakuuta samaawaati wal ardi liyakuuna minal muqiniin falammaa janna alayhi laylu raa kawkaban xaala haazaa rabbii falammaa la in lam yahdinii rabbii la akuunanna minal qawmi daalliin noonu la demee ci ay bidiw lañ ko gindi naa Moussa ci luñ ko gindi ci aw sawar lañ ko gindi. Mm-hmm. inni anasu naaran. la'allii aatikum. bi xabari minha. Mm-hmm. aw jazwatin mina naari la'allakum tastaluun. waaw léegi nag mën nga ko topp ku ci ne fam la gindee Cheikh Rafal nag ci nit mi yàlla gën a bëgg la ko gindee sallallahu alayhi wa sallam laata wax yu gi wàcc ci moom bon tur la yoroon di jaam yàlla. Mm-hmm. xanaa doone ma doon julli. déedéet xanaa doon ma doon tudd yàlla. déedéet wàcce gut ci moom de. dafa bàyyi këram ba fi nit ñi dem ba ca xaaru xeraa. Mhm. moo fay wéetal boromam. Mhm. xam nga suñu borom deesu ko gis. Mhm. waaye suñu borom dana gis ab gis moom suñu borom doo taxaw ci mbedd mi jattu naan anamu déedéet doo ko gis kenn du ko gisee noonu waaye jox na nit ñi ay gisukaay yoo xam man mën nañoo gis borom. laa tudrikuhul absaaru la wax. wa huwa gis du ko jot. wa huwa yudrikul absaar. Mhm. wa mhm. <laughs> borom mooy jot ab gis. mooy jot ab gis. waaw waaye. gis du ko jot déedéet. Mhm. boo taalee sa sa télé bi ray mu tàkk nit ki yaa ko fekk si wala moo la fekk si. Hmm? mat a bàyyi xel mi ngi noonu. nit ñi nag yëg-yëg yi ñu yéen Cheikh Rafal di jàngal ba léegi nii mokkalaguñ ko. Mhm. yëg-yëg bi. waaw yëg-yëg boobu ba léegi nii nit ñi xamaguñ boobu yëg-yëg mooy lan. sunu borom ni xad jaakum basairu min rabbikum ma jox naa leen ay gis ay gisukaay. fa man absara fa li nafsihi wa man xamiya fa alayha wa ma ana alaykum bi xafis sama yoon néew ci man ndax jox naa leen ay gisukaay loolu moo taxoon yonent bi dem xaaru xelaa di teelu boromam seen naa jibril fa cëpp fekk ko fa. Mhm. sa borom def na la ab yonant jàngal na ko am ja jàngal na ko nuyu jàppee jiitu ko fa ñaar raaka ni ko sa borom def na la ab yonant mhm. mu génn doje yépp di ko nuyu mu commencé di lox dem fekk soxnaam Khadija sayyidatina Khadija alayhi salaam mhm. mu wax ko bi mu ko waxee mu yóbbu ko ca labbe ba mu ne ko naamuus mi daa seet si Moussa daa moo moo seet moo ñëw moo dikkal sa ndax ñoom naamu suñu laa Seydina Jibril moo mm-hmm. dikkal sa sa sa sa borom kër bi yàlla def na ko ab yonent mu tëdd di lox naan zammiloo nii zammiloo nii ak dafiroo nii dafiroo nii mm-hmm. suñu borom tëral bor boo déggee bu ni mm-hmm. mu du ma yónati du ma yónati benn yonent ginnaaw yonent bi loolu ñàkk ñu mu yónni taxul mu wax ko de dafa xam ne dañu nit ñi dañoo dëgër bopp <laughs> ndax cent vingt-quatre mille lañ ji ah, mu tànn ci ñaari trois cent waaw tànnaat ca. 25 tànnaat ca 5 ginaat ca kenn te gëmuñ. allahu akbar. <laughs> gëmuñ. Mhm. kon loolu mooy jafe-jafe bi mu xool nag mu san mu am nag lu defoon bu yàgg. do mhm. doon ko jéem a essayé waaye jàllul muy naa ko leb denc ko fii muy demal ca marajal ni nga xam ne yaltaxiyaani ñoom baynahuma barzaxun laa yabxiyaani fa wajada xabdan min xibaadina wa aataynaahu rahmatan min indina wa xallamnaahu min ladunaa xilman muy Seydina Xudar ak Moussa alayhi salaatu wasalaam Seydina Xudar ak Moussa ñetti question la ko laaj ñu tàggale ko ndeke waaw ñetti question mooy man la yàlla bu la joxee milliard nga bëgg a tabax kër sa plan yaa ko sa moo tax Moussa bi mu tëddee ne ma ëpp xam-xam ci àdduna ndax ma fi xam-xam suñu borom mm. dane ko déedéet mu ne ko ëpp xam-xam fu mu ne mu ne ko demal ca marajal baax rey ni fi géej ji boo demee da nga ko fekk xam-xam mm-hmm. muy xudar mm-hmm. jox ko mandarga yi ba mu ñëwee ba agsi dafa dafa ñëw rek picc mi sof ci géej gi naaw xudar laata muy wax xudar ne ko yow picc mi gis ne li mu sof ci géej gi naaw sama xam-xam ak sa xam-xam ak xam-xamu yàlla mi mel ni picc mi sof ci géej gi naaw te waxagul dara mu ne ko xëlët tabihu ko xala an tuxallima ni maa xalim tarus daa ndax duma la topp nga xamal ma ci li xam mu ne ko wa kayfa tasbiru xala maalam tuxin bi xubra naka ngay nga nga nga mu bëgg mënoo cee am da ngaa yàkkamti da ngaa yàkkamti xudar moo ko xiital Moussa moo ko yoon te yow naka ngay mën a muñu xam ne xamoo ko sax mm-hmm. ñu ne acca nañ dem fantalaxa ñetti fantalaxa la. Mhm. fantalaxa. xataa isaa rakiba. fi safinati xaraqala fa lañ fa lañ fa lañ commencé. tàmbalee rek xam nga xisa la ca xew lépp. yéen mhm. may guddal ndax fa mu mën ci Cheikh Ibrahima Sidi Ibrahima. <laughs> Mhm. ñetti question yam ko laaj. <laughs> Euh. fa lañ daal di yem. suñu borom ni lii ruwee daal jël dossier boobu rofaat ko ci trois est-ce ah. da ko war a waxaat ci turaalam ba mujjug jamono nag xam ne am na koo war a ko li jaam ñi muy sëriñ Touba mii te am na keneen koo war a ànd ak moom ndax yàlla mas naa yoon yónni kenn te boolewu ko kenn koo xam ne da koy accompagner. ci saayir ak ci baatin mm-hmm. amul moo tax na Cheikh Ibrahima mi ci borom suñu borom joxoñ ko joxoñ ko Serigne Touba mu dëppaat te lu yomb gëm la nag. Mm-hmm. ndax Serigne Touba loolu da koo dal. ndax suñ tubaab moom li mu wax ci baatin ñun suñ bët teguwu ci woon Cheikh mhm. Ibrahima mu ñëw doog ko pratiqué moom mhm. ndax suñ tubaab dane dala ni allaahu xalallaahi yàlla moo ma tegtal moo ma tegtal yàlla fekk dafa njëkk wax ne dala ni allaahu xalaa muhammadin waxaadani muhammadin li samadi mhm. waaw bi mu naan ko demal ci yonte mu indi man demal ci diw mu indi la ci man kay ki la ko mhm. demal ci diw mu indi la ci man loolu dalil bu gën a leer daa am fenn déedéet amul te boobu yonte na génn na ba am junni at ak ñaar téeméer ak fanweer mhm. mu ne ko demal ci diw mu indi la ci man fu mu jaar fan la jaar ba ñëw ci moom te Cheikh Ibrahima bi mu naan ko demal ci kii mu indi la ci man boobu ñu bokk bokk Sénégal bokk kii ne Kajoor kii ne kii kii kii ndax du ñoom ñaar sax ñu bokk benn raison buñ euh, ne benn gox buñ ne. ndax sëñ bi Mbàkke Kajoor la nag Cheikh mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ne ci Njàmbur kon sorewuñ. déggul nit da kenn ku woote koo xam ne da yóbbu nit ñi dégg ko de ndax Cheikh laata muy gis Serigne Touba dalaat maam rakam. Mm-hmm. nga xam ne Sidi na Seydina Ibrahima la ko daa woowee. nga xam ni waaw Seydina Ibrahima la daa la daa woowee Xalilullah moom la ko daa woo moom la maam Saliou moomu def na defal na Cheikh Ibrahima ak listixaar ndax njëkk loolu ñoom dañoo doonoon dara dégg naa mas nañoo ànd dem ci tool ci tool yi xàbbu seen nijaay moo fa daa bay foofu ci ci ci ci ci ci njabi ne. Mm-hmm. bañ àggee yoroon am ndox. def ko ci ab sio di liggéey ba yàgg ñoom ay xale lañ booba mhm. baaxuñ ba ñëw këpp ndox ma nijaayam daan man de xale yi rek laa yërëm ndax ndox mi tuur na te kër ga sori na nee na Cheikh moo ne cas ndox boobu wëndeel ko ci bopp bi teg ko mu fees dell ak ndox bu mu mhm. ndax mi ngi ci téere bi téere bi moom kenn moomu ko ku xoole bañ tëj la ci te mënoo tubbi tëj sa bopp ab yaafus nga mhm. muy alxuraan karim ñun kenn duñu tëj ci alxuraan ndax xam nga ni baat yu ñàkk baat yi al yi nga xam ne ay araf la mm-hmm. ñu dajale ko muy ay yi nga xam ay xuróof la ñu dajale ko kalimaat mm-hmm. laa bëgg a wax ñu yéegal niveau bi nag oustaz Modou <laughs> niveau kay yéeg na sëñ ankay day a yéeg laa ilaaha illallaah ci <laughs> sëñ xam-xam bii ñuy waxtaanee nga xam ne dañ naan alxuraan xaala mm-hmm. xaalallah ak xaala rasulullah ndax yonante bi bi muy dem ba na fi benn téere boo xam ne mooy jàngale naxu déedéet boobu ko fi de bàyyiwu ko fi de pourtant alxuraan lépp naxu la ba fees waaye gars yi seenu njàmbaar a tax ñu génne ko mu dëppug li am mhm. kon mën naa génne leen bokk teg loolu waaw yaa ko xamul sax xama ci àggul dëgg la li tax ma koy wax mhm. jamonoy Seydina Aliyu karrama la wajhahu bi yonent bi demee ba ñoom ñëpp dem ba Seydina Aliou ñëw la dégg kuy jàng alxuraan di ko yàq a allaaha bari'un minal musrikiina wa rasuulu hoo mu ni moom wa rasuula hoo yonent Seydina Aliou xëm woo abul aswad ad-du'ali ni ko lii nañ ci sàkk pexe on hu saakat naxwa mu dem daal di tëgg naxwu def fexal ismu xaraf léegi nag ci biir naxwu dafa am loo xam dañ koy wax ihraab lañ koy wax. ihraab boobu soo xoolee bañ la ba ba dañ mooy xool mu mujjug baat yi lañ masque ga fay nekk loolu mooy ihraab. mooy suñ la waxee ni la fii dafa rafaa soo xoolee basque loo nga fay fekk muy loo mën a gis. xalaamaatul ihraab al asliya laa bëgg a wax. Mhm. Mhm. wa xalaamaatul ihraab al farhiya. Mhm. bu dee al asliya boobu bu ñu leen fii dafa rafaa. boo nee jaa al mudarrisu. da ngay xool la. marfuux dañ koo rafaa. lan mooy mandargam rafaa bi ne lonk gii. lonk gi. damm la ko feeñ ca mujj waaw. nga jóge fële daal ni sallamtu xalal mudarris. Hmm? Mm-hmm. sallamtu al mu dar risa kon ngay wax mm-hmm. sallamtu ndax am nga faaxel ndax mooy tujji mm-hmm. waaw nee nga sa nee nga su fii nee nga fii sa nga ñëw fii daa ne maralatu wala nga ne sallam wala nga ne sallamtu xala mu dar risi wax nga fee ni sa wax nga fii ni su wax nga fii ni si si yooyu yaa koy gis ah, ala day jël fii dafa nasab loolu mooy maanaam nasab mi nga ni fataa fataa day fekk muy al asliya waaye bu dee al farxiya mhm. boo nee jaa haulaay léegi haulaay nu def jaa fi'lu mat la mhm. waaw haulaay faa'il marfuux la mhm. waaye suuf lañ ko def lu tax mamnuux min a sarf la mamnuux min a sarf naam du soppiku waaw jaa haulaay doo wax haulaa de ko waxee wax nga <laughs> waaw boo nee raaytu daan ni hawlaa yi ngay wax doo wax hawlaa ba tey de. raaytu fii ak faayil ah. boo nee sallamtu tamit ngay wax. ba tey. Mhm. te pourtant ni mu dari su def la def. dëgg am yeneen yoo xam ne nag dañ koy dañ koy binaa. Mhm. bu ñu mooy li ma la wax léegi bu ñu la waxee mooy fii dafa rafaa nga dem fii ko masque lonk loolu xut la. Mhm. te pourtant dafa rafaa. kooku mooy Cheikh Ibra te lu ñu binaal ci lu rafaa dafay rafaa. waaw. kooku mooy Cheikh Ibra Cheikh Ibra dañu koy binaal kenn du ko Cheikh Ibra kenn du ko <laughs> kenn du ko kenn du koy binaa. dañu koy binaa. man yuhram al-i'raab bi nutqi. irtabal waaw te mën naa gën a mën naa gën a xóot loolu am na lu ñuy wax ihraab at taqdiri yi. waaye léegi jaa nag. Hmm. Ah, ak raaytu Moustapha. Hmm. ak maratu. bil Moustapha maratu bi. bi te dooni ni Moustapha. déedéet maratu bi. waaw te xam-xam bii ma la wax. Hmm. salaa salaam bàyyi ko fi gannaaw la ñëw. te kenn mënu ko weddi. déedéet jamono yonent bi da amul woon moom. kon loolu leer nañ yaa nga yaa nga ca kaw nag yaa nga dugg ci niveau boo xam ni <laughs> euh, bii nag moom euh, universitaire yi xam nañ li ma wax ma nga dugg ci niveau boo xam ni moom ca kaw a kaw a kaw la ca kaw a kaw xam-xam lay lay jàngale waaw waaw léegi nag loolu sëñ daara yëpp bëgg nañu <laughs> léegi loolu nag faw ñu faw ñu xam loolu mooy lan mhm. boo dikkee ñooy la kii li la waroon def ci diine fekk nga defu ko xool la muy la muy def mooy lan ndax boo nee fii sa kër gi avion romb rek naaw da ngay waaru ci naaw gi li muy naaw mhm. waaye dem la aéroport xool xel wu mu daw mhm. ko desee wu muy daw boo demee aéroport bu naawee da xam ki kii naaw rek ko defee mun a def leneen dëgg la de bu naawul lay daanu mbaa mu def leneen billaay dëgg la kooku mooy Cheikh Ibra ci li Birahim àgg ci boroomam sori ci boroomam ci weeru koor wii la gàddaaye woon 17 ci ci ci weeru barax la la départ ay këram. bàyyi ay bokkam. laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah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 مصطفى لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل فعل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعل Cheikh Ibrahima Faal yaa nu ginda sooru maam Seynabu Njaay Cheikh Faal góor ya bula sooru maam Seynabu Njaay Cheikh Rafal góor yóbbu laa laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah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 laa ilaaha illallah muhammadu rasulullahi laa ilaaha illallah jaaraama Cheikh Ibrahima Fall laa ilaaha illallah laa ilaaha illallaa i faal na ñëpp defu nu màggal Cheikh Ibra Faal abu rijaalu laay faal boo guddee jaam ñi fande laa ilaaha illallaa laa ilaaha illallaa laa ilaaha illallaa laa ilaaha illallaa laa ilaaha illallaa laa ilaaha illallaa laa ilaaha illallaa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 illallah Mustafa faal boo guddee jaam ñi fande am ni moo doo Mustafa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 إلا الله مصطفى لا إله إلا الله لا daal faal ngay ngaaw am di faal Seex Moustapha Fall boo guddee jaam ñi fa jërëjëf Seex Modou Aida doy na waar kay lii ma mi naan niveau bi kawe na torop waaw waaw te ci introduction rek la nekk. dañuy introduire nii rek. ndax daanaka dëgg dëgg waxtaan wi xuusaguñ ci. sëñ Galas Kaltoom nee na bëgg bi ah sëñ Galas mm-hmm. Kaltoom. mu sëñ Baara mu sëñ Fallou. waaw nee na bëgg na. macha allah waaw nee na bëgg na ci Seydi Mouhamadou Moustapha. macha allah tey daal lii lañu leen bëgg a mm-hmm. ci guddi maam Cheikh bi ci télévision Futur Média xam nañ ni yéen ñëpp bëgg ngeen waaye nag dañoo. introduire rek te tàmbalee guñu développé guñu bu baax. Mm-hmm. am na ay réaction yoo xamante ni mu ngi jóge fu ne. sëriñ ma Mamor mu euh, sëriñ Abibu mu sëñ Mandumbe balay sa ñu ngi lay ziar bu baax moom itam mu ngi ànd ak ñun ci guddi gi soxna Bali kenn du moom mm-hmm. moom it euh, dafay fanaan ak ñun di ñu ñaanal yaayu taalibe yi ci itam di rafetlu jotaay bi mooy yaayu taalibe yi yaayu ndongo yi yaayu ndongo yi waaw soxna Bali yi nee na mu ngi bëgg ñu <laughs> koy nuyu soxna nu ngi koy nuyu eh mu sëriñ Ablaye Tage waaw mu sëriñ Ablaye Tage Saliou waaw mi ngi noonu moom kenn du moom tey daal oustaz ñëpp kontaan nañu. mais mais lañ Pape Baye Fall yëpp nag. waaw waaw soxna soxna maam Jaara Fall. waaw euh, doomi Serigne Abdoulaye sëñ sëñ Abdou sëñ Modou Ablaye Fall Ndar. soxna Jaara euh, di soxna si Seexuna transitaire. macha allah moom itam mi ngi toog di déglu. boole kook ak i jooy ci maam Sidi Ibrahima. Mhm. waaw soxna maam Mariam mu euh, sëñ Abdou Lahat moom itam. mi ngi toog di déglu. Mhm. Cheikh Anta Samb sa xarit. Cheikh Anta mi ngi lay nuyu. sama tey. mbooleem Baay Faal yi mbooleem murit yi. Ah, bëgg nañu. wallaahi ma ne ko kuy jullit rek. Ah. bëgg nga Sidi Birahim. wallaahi te te te te sëñ Moustapha ah. xam-xam piir la nu tuuti rek. te tàmbalee guñu. Mhm. kon comme tàmbalee guñu. Mhm. ñu dugal publicité yi dellu si waat. dellu si waat bala ngay dugal publicité sama waa dañ maa yónnee léegi ñoom itam. ñoom soxna Mbacke. Eh, wala ñeneen ñi déedéet bii nag soxna Ami Mbacke la moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde ma soxna Ndeye Mbacke waaye ñoom ñooy mbokki Soda. waaw ñooy mbokki soxna Soda ak soxna Ndeye Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma Daaru Xuddoos daal tey boo duggee kenn nelawul soxna maam Fatma Mbacke moom Serigne Saliou ambassadeur mi nga xam ne dama bokk ak moom Serigne Modou Moustapha moom itam ma nga toog di seetaan ñëpp a ngi toog kenn nelawul bàyyi. mu ngoog ñun ñëpp jot nañu ay yóbbante yow moom sa téléphone bi comme communiqué. ah man si Abdou Khoudous moom Cheikh Amadou Kara Mbacke Noreyni nee na moom dafa sopp loolu sëñ Moustapha donc man am naa laaj boo xam ni xam naa bu ñu ñëwaatee bàyyi. ci nga koy doog a laaj waaw sëñ Moustapha parce que. da nga koy répété xanaa parce que da bàyyi daaru ak ñi xam ne ñoom ñooy Baye Fall yi ñoo bàyyi Euh, <laughs> donc baay boobu bëgg naa mu wax ñu. te nga répété rek diggante maam Thierno. Euh. ak su ma ko laajaatee du ko mën a waxaat. laaj bi baay laaj naa ko ba pare yow xam nga ko. xaw ma ko de jàpp ma ko de jàpp ma ko de Mamadou Ndiaye tamit yaa ngi jot ay yóbbante ñi ngi ñi ngi jot yóbbante ku ne jëwriñ Diamaguène euh, vraiment bég nañu Serigne mun Serigne Abdourahmane Mbacké mu <laughs> Serigne Mountakha nekk Porokhane bég na <laughs> Serigne Manel Fall Manel Fall El Hadj waaw bég na lool tey jii ci waxtaan bi nga xam ne ñi doo ko def Kine Fall ak Kuti Fall. xadi yooyu it yaa ngi jot rek. waaw ñoo ngi jot ba fi mu toll nii <laughs> kay euh, message yi day gën di bëri di dem rek euh, ñuy nuyuwaat bu baax sëñ Abo di suñu sëriñ. bu sëriñ Cheikh Saliou. Euh, donc man laaj bi ma amoon Pape Cheikh mooy euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw maam Bamba bi mu fi jógee moom naka la def. Hmm. ak bi ko borom daaru woowee ngir mu wane yoon wi. ci loolu laa bëggoon ñu ñëwaat ndax histoire yi tout le temps dañuy raconter avant pendant bi fi maam Bamba nekkee mais après bëggoon naa xam nan la demee. voilà hmm. dina xam naa ci kanam tuuti euh, Pape Thioune itam yaa ngi jot ay yóbbante rek n'est-ce Cheikh Fall. Serigne Amadou Abdoulaye ah. moom mi ngi ñuy seetaan. Ah. sekk ndaanaan maa ngi koy ziar baax a baax. Hmm. bu ko defee Moustapha Wade moom itam mi ngi ñuy seetaan mm-hmm. ak sëñ Abdou Khadre professeur sëñ Abdou Khadre Wade mm-hmm. moom itam mi ngi mi ngi ñuy mi ngi ñuy bàyyi xel baax a baax mm-hmm. bu ko defee euh, turando man nag moom ma dugalaale question bi non bu ñu demee la neexee bu ñëwee bu ñëwee nga ko ko gaaw rek quoi comme a ah. fàtte ah waaw ko rek moo ko fàtte laajaat la ko waaw kay muy ñetti question waaw que xam naa ni foofu la war a dugg mooy ci ci daje ba daje ba dafa am ñaari baat yoo xam ne sëñ sëñ Bassirou daf koo wax ci mënul baaxul xadim mm-hmm. mm-hmm. muy sayxin mu wasilin mm-hmm. lu tax mu wasilin ji nuur a xaqin ji aussi lan moo ko waral bi saaratin boobu ni soxlaw ko lu ko waral ak lu tax après moom Cheikh Fall am alal julli waaw waaw kon tontu bi ci kanam la <laughs> waaw ah oustaz da nga bëgg a dugal question yooyu tam non man wala message yi man dama jot ay message sa <laughs> ay Wave ak ay Orange moo nekk lu nit ci téléphone Fall moom lekkul dara bàyyi ma moom <laughs> vraiment man damay jékki di gis ay Wave cinq cent mille trois cent mille loo ci comprendre rek yow yow yónneel waaw ma Pape mais <laughs> Pape Sagnang Euh, <laughs> ma nga Touba moom itam nee mi ngi bàyyi xel émission bi waaye Cheikh Diop Kokki. waaw mu soxna Bali Muntaxa. Cheikh Diop Kokki moom itam mi ngi apprécier lool. waxtaanu sëñ Moustapha suñu xarit la moom message yi daal Pape bari na. bari na de mais wii bi moom bu ñu posé rek ma ma partagé la. <laughs> nga transféré ma ah, mu ngoog jërëjëf kon yéen tam mën ngeen cee bokk Sophie euh, ñu ngi lay ñu ngi lay bind ak bind ak woo mais dama lay bàyyi nga tàngalal ñu ceeb bi mu xaw a xooñ rek nga xam ni <laughs> pendant publicité bi jàll. waaw waaw mën nañoo mën nañoo xéewlu bu ko defee ci kanam ñu àggali waxtaan beek sunu sang Serigne Moustapha Fall yaaram yàlla yàlla dëgëral ko tey waxtaan wi mu tàmbaleeg ñun ci télévision Futur Média ñëpp ci béggagum di ndokkeel bu baax waa kër Anta Sare eh, Soda Kassé nga xam ni waajuram bu góor ñaari Cheikh Ibra la am Cheikh Ibra bu góor ak Cheikh Ibra bu jigéen wallaahi wallaahi Mor Thiamit Mor Thiam géwél am na Cheikh Ibra bu góor ak Cheikh Cheikh Ibra bu jigéen macha allah waa kër Chérif Abdourahmane Fall Tilala suma jigéenu bopp sama rak Khady Fall Tilala si si ah moom sama sama sama doom yi maam lañ ko daan woowee Khady Fall ndeysaan baax lool damay jékki kenn ci sama doom yi ne ma ana maam ma ne leen maam dem na au ciel tellement sama diggante ak moom dafa mm. nekkoon lu doy waar xam naa ci kanam dinañu ibbi parenthèse ci moom mais Abdoulahad Gueye Abdoulahad Gueye sa xarit waaw jàngkat boobu Abdoulahad Gueye te ne Italie Gueye waaw waaw waaw ma mi ngi lay nuyu moom sama xarit <laughs> mu ngoog kon bu ngeen euh, euh, loo ñu dellu siwaat ci kanam juste après publicité yi xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara baguñ dara Seet Sénégal namuñ dara baguñ dara Seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu TFM waaw waaw TFM jërë ngeen jëf Seetu Sénégal yàlla inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha sunu borom ne bokkaale laa dul jéggale mais bàkkaar lu mu diis diis diis diis lu mu rëy rëy rëy rëy man yàlla maa koy jéggale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barkeem suñu borom nee na jullit yi ci sa barke bu nu may tooñ di ma jéggalu man yàlla ma di leen jéggal wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaghfiruun kon nag fukki fanu njëkkal yaa ngoog bokk Sénégal yàlla ñu yàlla jéggal waaye féexal sab ah, pur jus de fruits orange mmh. mu yéen ananas nag e mbay lii cocktail bi moom hmm. mango moom da ngay naan di saqami original moo leen di wéttali si seen bépp xew-xew ouvre un nouveau bonheur à chaque gorgée di naan di sàqam yi déet bul pàkkar ñi nag ñun yow rek la ñuy topp originalement prêt à redécouvrir la magie intense d'un produit d'exception une seule goutte pour prendre le contrôle votre cuisine. Des arômes, du goût et des saveurs incomparables. Faites gronder le tonnerre qui sommeille en vous et réveillez-vous en chef cuisinier. Laissez-vous emporter par nos produits variés pour vous transporter dans l'univers culinaire réinventé de Caddy. Agrémentez vos fritures, vos marinades et vos sauces avec nos savoureux produits faits de vrais ingrédients. Idéal pour toutes vos idées culinaires. Faites-nous confiance et maîtrisez votre cuisine. gën a jege sa ay mbëbët kon bo dem ci jeex kaas ci kaw kaas bés bu ne tàmbalee ak cawarte jeexalee ak yokkute Nescafé ci biir weeru koor gu sell gi ñëw leen gaaw xool suñu offre yu spécial yi nga xam ni moom la ñu am ca DSL Dekakila ngeen mën a profito ci suñu promotion spéciale weeru koor ñu wàññi leen 10 pour cent suñu machine à café yi wala ngeen defar seen tee yu toog ak suñu bouilloire yu rafet yii wala suñu thermos yi suñu mixeur yu mën yi wala suñu air fryer yi ak suñu micro yu pratique yi yi ak suñuy four électrique am na nañu tamit ay cuisinières quatre ba six feux ay cookers minute yéew leen xool suñu barbecue yi nga xam ni da nga siy def këriñ wala à gaz machine à toaster yi pour defar panini wala pizza suñu réfrigérateur ak congélateur yi nga xam ni dafa mën a denc fekk leen ñu suñu showroom 77 201 07 12 wala 78 711 87 52 wala 77 750 32 05 wala 77 680 14 75. jëmm ju nekk am na lu koy aar ci biir ak ci biti jëmm ju nekk am na luy ubbi wërsëgam saabu bu jant soobee jëmm ju nekk am na lu muy tàmbalee ngir xewal yu saawaan baawaan man ndox mi bàyyeekoo fii ci gox bu naat moom laa taamu ndax xewal bu nekk am na lu koy sabab wërsëg bu nekk am na lu koy yombal te it xol bu nekk am na lu koy seddal Kayaar dafa neex laaliya waaw waaw mel bu baax ma ne daal laaliya moom ma doy si ndekki waay xoyal ci sa kaas sama naa yi làmb ji commencé na. ah waay. ah kuréel roog tan connexion yi booy gàlloo rek. connexion xëri caanum a faga. man yéen seen connexion jeex na newoon naa leen dem leen ci promobile moo ko yor ngeen ban léegi nag affaire bi fee la a leen fii promobile la. bëre bi muy bëre musuma koo gis ci xale boo xamante ne nii. booy joonaat dugg na ko jàppante noonu. wax naa la li muy bëre bàyyi ko xel prise lay indi boo xamante ne nii mësta am. Eh! jël bu rëy bu amul benn yoon besoin d'un taxi il est dans l'appli tu ne cherches pas tu prends ce qui est à toi tu ne vas pas une fête tu es fête tu n'y vas pas simplement tu y vas avec Yango Téléchargez l'appli aujourd'hui pour profiter de courses à partir de francs CFA. Nous facilitons les échanges commerciaux, acheminons ce dont le monde a besoin, là où il en a besoin. Imaginez tonnes de noix de cajou, produites, conditionnées et distribuées du Sénégal vers le reste du monde. Parce que lorsque les échanges commerciaux sont fluides, de nouvelles opportunités se présentent. DP World. Change what's possible. mbokk yi di peinture muy xollee ko mbaa furi xewin peinture bu baax bokk na ci lii sàmm seen bâtiment TQG indi na leen ay peinture colorado yu mucc ayib ànd ak qualité pour yanjal ak sàmm seen ko bii mooy colo sud Colossi def di peinture lavable saa yu la neexee mën nga raxas sa façade te day aar seen bâtiment mi tamba mi naaj du ko tax a soppeeku te itam mën nga ko am ci couleur yu bëri bii nag mooy colo vinyle 900 yéen ñi soxla peinture bu weex tàll te du xaal mi ngi nii sakkan na mën a dem ci maçonnerie ci yi wala ci plâtre peinture buy jaay weex colo vinyle 900 la mën colosane moom bu ngeen bëggee peinture bu lisse lavable mooy bi gën ko Lausanne bu Colorado dañ ko liggéey muy penco bu mën a taw naaj ak poussière te du soppeeku moom ko Lausanne baax lool ci bâtiment yi jege booru géej moisissure mënul ci moom dara granito doon na peinture pour extérieur wala intérieur bâtiment granito mën a décorer sa façade ba mu rafet ci couleur bu la ba noppi protéger sa bâtiment ak Colosud Colovinil 900 granito ak colosan di nga aar sa bâtiment ko ba noppi sa poche. TQG Kër Damel extension rond-point Parcelles Assainies unité 26 TQG 65 rue Ngalandou Diouf TQG 84 rue Ngalandou Diouf TQG route nationale après ci wetu grande mosquée bu Touba. TQG Kër Massar rond-point guy gi route de Jaxaay TQG Wakam ci wetu Brioche Dorée TQG la qualité mooy suñu doole TQG moo leen di ñaanal weeru kooru jàmm Touba ameublement ku ko xamul dégg nga ko liggéeyam dafa ànd ak jamono xool leen yile meuble de qualité made in Sénégal ñii ñooy Touba ameublement xarañ lool ci meuble am nañu ay salon en tissu velours des salons en cuir authentique ci couleur bu la neex ay salon capitonnage ay huit place ak ay salon sur mesure bu leen amati benn jaaxle salon marocain yi ngeen bëggoon mi ngi nii ci dimension bu la neex téléphone 77 555 64 78 pour une maison qui vous ressemble ensemble, contactez Touba Ameublement au 77 430 02 02. Vous voulez un style de meuble unique, des produits pour sublimer votre intérieur. ay chambre à coucher ci ay design yu raar fii la am ci Touba Ameublement. ñu ngi ci rue 3 angle Blaise Diagne Médina en face stade Iba Mar Diop. téléphone 77 431 03 Touba Ameublement. Nous vendons ce que nous fabriquons. Nous fabriquons ce que nous vendons. <laughs> albarka neex na bëri na. naxee sax papa soo kontaanee rek kontaan naa. ci yi pareeguma ak yéen de. damay ñëw jëflanteeg yéen yu sell set te neex may ñëw. waaye yow looy eh, doyee dessert nga jox ñu lu diis lii. tubaab jaxate daal la saa kawas. papa. waaw ba ci. moom lu muy yëndu laa bëgg a xam. yéen taare yéen taare yéen taare yéen taare yéen taare yéen lii taare. Papa Ndiouga laa la beral moom mooy gamme nature bi mooy bi nga xamante ni amul suukar pour ñi bëggul suukar et les diabétiques. ak yéri taale rek ku nekk ak sa bos. Hmm. lii am na melokaan kat. On y est l'état. On y est l'état. On y est l'état.

Leila Evans and Co la grande diva de Nord Foire kooku mooy borom décoré mariage ba ku ñëw ci mariage ba di seetaan kooku mooy décoré ngénte ba ku ñëw ca ngénte la di seetaan dîner de gala bu ko décoré ba décoré entrée ba loolu yëfam la cocktail bu la ko defalee nga ne kii moo mën amul lu mu amul ci wàllu matériel bu la defalee sa conférence wala sa conférence religieuse nga xam ne Leila Evans and Co moo la liggéeyal anniversaire wala concert bu la defalee concert nag dalay defal concert bu mucc ayib ba defal la son lumière tegal la écran indil la ay chaise VIP indil la chapiteau indil la moquette en gazon indil la ay fumogène muy saxaar ci entrée artiste ba indil la ay feu d'artifice réew mi yëpp Leila Evans and Co lay ñuy wër ci wàllu décoration communication ci wàllu événementiel Leila Evans and Co 77 563 34 34 ou le 77 330 42 06 kenn du Leila Evans and Co. bouquet canal plus yii dund leen koor gu sell ak chaîne yi gën bu leen dara ci ci chaîne religieuse yu mel ni Touba TV Al Mouridiya Mourchid TV Asfiyahi Lamp Fall ak Malikia TV chaine sénégalaise religieuse yi dañoo xew ci biir weeru koor gi rax ci dolli ñu ngi ci bouquet canal plus yi dem leen léegi gaaw abonné wala rey abonné wu ji ngir dund mbégte seetaan programme yi gën a neex si télé sukkaru koor daal canal plus rek moo ma si doy CCST groupe SA industriel moo leen indil seen large gamme de produits ak marque bii di Soxna Mati ci diwlin Soxna Mati ceeb Soxna Mati soble ak seen boisson bu neex bii du ju Soxna Mati muy jus bu naturel concentré ak ay fruits ci biir CCST groupe nag yamul foofu dafa nekk en partenariat ak CCST distribution CCST transit CCST immobilier ak CCST automobile ci ay vente ak location auto yu baax mucc ayib ku leen bëgg a fekk leen ñu ca Golf Sud chez El Hadj Fall Pikine chez Cheikhouna Fall Parcelles Assainies chez Khadim Fall wala ci direction générale bi nekk avenue Lamine Gueye immeuble ambassade wala nga woo ñu ci 33 877 10 10 wala 77 716 28 30 wala 77 475 67 55. ravitaillement ndugg bu jàmp wala loo nam jaratul ngeen di déplacé wu ak application Yassir da ngay toog fi nga toog commandé lépp li la yitteel si sa supermarché ñu livré la ko ci lu gaaw rax si dolli ñu baaxee leen ay produit yu am solo lool ci njëg yu gën a neexati Yassir dina la livré ci diiru ay simili yu néew bés bu jot diggante huit si suba ba minuit looy xaarati téléchargeel gaaw application Yassir kooru ren ji ay xéwal rekk la ak Yassir ci diiru weeru koor gi yépp livraison bi doo leen ci fay dara Yassir, la vie en plus facile. ak waqfu di sadaxa jaariya mën ngeen cee soppi dunduk ñu bari fu joxe la bu njariñ la dul jeex ndax day wéy di meññ di jariñ askan wi saa su nekk waqfu di lu ku tedd ki seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam digle dib sarax bu pay gala suñu borom di fay di wéy ginnaaw sax bu dëddu àddina kon def leen Waqf ak application Orange Money bii bu ngeen duggee ci paiement dem marchand laata ngeen di dugal code bii di 34 85 39 teg ca koppar ya ngeen fas yéene def Waqf wala ngeen dem direct seen téléphone ci dièse 144 dièse 5 étoile 34 85 39 dièse wala ci plateforme bii di 3w point waqf tiret d'ici sénégal point com mën nañ koy dagg ci seen payoor jaare ko ci compte bis bi di SN 079 01 101 251 080 400 886 002 39 man ngeen nit tàbbal ay wéccit wala billet xaalis ci boyitu condamné yi haute autorité bu Waqf Santh ci supermarché yi ci banque yi ak yeneen place mbooloo yi xaalis bi nu ciy dajalee dañu koy def ci kees gu mag gi état bu Sénégal taxawal atum 2022 ak léegi ngir ñëpp mën a barkeelu def seen Waqf ak nu seen poos mën a toll ngir ñëpp jot ci tiyaabay Waqf boobeeg Waqf état Sénégal yaatal ba ci ñëpp li ci jublu mooy di financer maanaam gunge ki koppar a projet Waqf yuy événement yu dagan ca tegu ci yoonu finance islamique xaalis bi la muy jur ñu koy financer ay programme yoo xam ne askan bi seeni loxo jotul seen ginnaaw moo ko tax a soo fàttali ko démba Sénégal ñëpp a bëgg ñëpp a fier ndax lu rafetee ni mësta am Sénégal fii la ñuy wax kër Khalifa textile 2KT mu lay jaay en gros bépp xeetu tissu ana tissu ba nga bëgg yaa xam gros yaa xam détail waaye boo yegsee ci suñu place kër Khalifa 2K textile nekk fii ci Parcelles Assainies jano ak station Total bu joor ci rez-de-chaussée bi maanaam ci suuf di nga fa fekk wax bazin riche fil à fil brodé voile brodé lépp loo xam ni rek da di xeetu tissu boo boo yéegee premier étage ci espace VIP ba di nga fa fekk ay tissu de mariage ay til ay jipir original la original lafaya tissu pour homme qualité supérieure yooyu ñoo nekk ca kaw Getzner boo bëgg ca qualité supérieure am na fa deuxième étage ba nag lépp luy rideau décoration pour kër ak bureau ah dama ni kër Khalifa textile sagal nga Sénégal Sénégal yëpp nga sigil lii nga def biir Parcelles Assainies en face station Total Dior ñëpp ci fier kër Khalifa textile 2KT kenn du yéen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 jërë la la la ilaha la la إله إلا الله لا إلا الله لا

sëñ Bamba baax maam seera faal gore laa ilaaha illallah lamp faal baabil muridina jam ñi ay seen

bàyyi sëñ am di yaasin faal lii lépp yawaa foo ay dalaa naar bi yaa moom kaw saraa ñi ñaanoo faal faal dul ibiir faal ilaa ilaa am ni Moodu Mustafa laa ilaaha illallaah fal laa ilaaha illallaah la ilaha illallah لا إله إلا الله يا كمال لا لا يخلف لا لا لا لا لا إله إلا الله لا إله إله إلا لا إله إله

لا إله إلا لا لا يقر لا يقر فلا إله إلا لا لا إله إلا لا لا لا فان لا اله الا الله لا اله الا الله لا فان لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد مصطفى يبرني فلا إله إلا الله لا إله إلا الله مصطفى لا شهر فلا فال شيخ مصطفى فال يلا دال فال بينغو مصطفى انا شيخ مصطفى Baay Faal am di faal Cheikh Moustapha Faal Yàlla daal faal geyanga Cheikh Moustapha ala Cheikh Ibra Faal la ala faal la ilaha illa la la ilaha illa la Moustapha ala الله إلا إلا لا لا إله إلا لا لا يغفر لا فلا إلا إلا لا لا إله إلا لا لا شيخ مصطفى لا لا إلا الله لا إله إلا الله يا جبار لا فال مود بن فال يلا دال فال غينغو لا لا مود بن فال faal um, um, di faal moo du faal yàlla daal faal nga yëngoo la la ana faal uh, allo Pape Samba war lu tax nga dénk ñu allo bindaatal ma pendant que euh, sikar si jolli na ngeen def nag mbaa yéen ngi bég ñun ñu ngi bég de xaw ma nag ndax yéen yéen a ngi bég mais en tout cas ñun euh, ñu ngi bég te leer na ma ni mbégte gi ñu nekkee tey euh, ci plateau bi ci télévision Futur Média moom la ñuy transmettre ci seen i ci seen i kër waxtaan bu am solo ñu jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall. xam naa dañuy delloowaat kaddu gi oustaz Papa nag oustaz Mout Fall bu ko defee ñu àggali waxtaan beeg Serigne Moustapha Fall faati sunu sang bi nga xamee ni moo ñu defal honneur tey. Euh, doon sunu gan xam nga bu tombeek euh, guddi maam Cheikh moom <laughs> waa kër maam moom. Hmm. waaye ndokk ba nga xamee ni ñun ñëpp bokk maam Cheikh. waaw sànq wax na ko ci introduction bi ni euh, maam Cheikh Ibrahima Fall mooy Sénégal. Hmm. doon Sénégal a tax tey Sénégal yëpp bëgg. Hmm. depuis des années. weeru koor bu jot bu ñu demee ba toll ci vingt vingtième jour bi dañu koy célébrer xale yu ndaw yeeg ñi ko mën ak ñi ko mënut da ngay romb ci koñ xale yi màjjal yore ji koy bay bay faal ngir màggal guddik maam Cheikh loolu nag ñu ngi ciy sant bu baax ay sëtam ak kuréel gu mag googu nga xam ne bu ca kanamee naa leen ko gën a présenté ñàkkul ni bis euh, gis ngeen ma invité leen ci midi plus euh, ñu doon expliqué yenn ci ay euh, mbir yu ñuy def ci dëkk yu bëri yamale ko rek ci Touba ak dëkk yi loolu xam naa ci biir émission bi dinaa ci ñëw ma buggoon ñu jokkoo ak kenn ci suñuy sang di soxna Momi Mbàkke mu sëriñ Soyibu ñu ngi may xamal ni mu ngi ci téléphone bi moom bu bu wootee jar na na dagg lépp ngir ngir jël ko ci ci ci émission bi. wallaahi wallaahi. boo leen fekk njabootug sëriñ bu gi jigéen ñi boo leen fekkee ñu toog bàyyi da ngay ndax ku ci nekk kaamelu hmm. alxuraan ngay yor. ba pare. Serigne Modou Aminta moo ko daan denc. wallaahi wallaahi xam nga booy xool ci njabootuk Cheikh Abdoulaye Lahat geeg njabootuk Serigne Soyebu gi. Mhm. ñu ci bari dañ leen a delloo ci kër maam Cheikh Fall. ba ci nee la sama bunt muy Soxna Njaxat. macha moom itam boo demee ci pencum Baye faal ya fekk ko fa. macha allah maam nag rakk joo xamante mag yoo xam ne maam jaara silla la tudd ah. moom danaan nañ ko ñaanal mu nekk milliardaire Serigne Saliou yi macha allah ma nga ci Amérique nee na kenn nelawul café Touba gaa ngay wallaahi soxna moom mi nag bu nekkee ci téléphone bi euh, oustaz Pape Anne dañuy dagg ngir mën a wax ak moom ngir déglu ko waaw yaay booy ñu ngi lay nuyu mhm. di la ziar ndokkeel la euh, ci ci ci bis bi tey defe naa tey euh, séegam yéen sang yi yéen nelawut waxatuma la ak ñun ñu bàyyi la nga sànni ay kàddu ci guddi gi yaay booy asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Cheikh Moustapha. sama doom sama xarit sama soppi. dégg naa lool faal yaram. dégg naa lool faal. yow mu sa ndey laa sa bàjjen laa sa lépp laa. am naa mbégte bu rëy ci yow. di la ñaanal ci dara ji Sëriñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall. yàlla na suñu borom kàttanal yëral la te guddal sa fan wi. amiin amiin amiin boo bëgg a àgg àgg. amiin amiin Mbacke. jërëjëf nga lool sama bët. bu baax. waaw ñu ngi toog fii it

moom Serigne Touba nekkoon sama kër waajur ka sëñ Modou Aminta wallaahi fa fa la tërbiyaa fa la liggéeyee mhm. ab taawam sëñ Moustapha maa moom ñoom maase ñun lañ joxandoo seen blaat maa moom benn bis mu jox ñu sëñ soñ bu mooy dalal jàng mhm. ñoo defandoo lépp maa moom sama waajur jigéen nekku fi tey waaye moom mi ngi fi bu duggee rek xam naa ne bu duggee rek xam naa ne sama waajur jigéen moo dugg soxna Ndeye ndax ay xarit duñ benn duñu woon ñaar kenn lañ ñu ne fa ne fa nekk bu rafet rafet ñoom ñu mu ne fa nekk fa jëmmi Sëriñ Tuubaa ñu koy xoolee boo dukkee boo dukkee kër Cheikh Ibra fi ngay gisee kilifa kilifa kilifa góor gu taxaw di sukkal jigéen loolu ñun ñoo ko def ñun ñoo ko def te dara taxut lu ma jëmmi Sëriñ Tuubaa ji ndax xamuñ ci góor ak jigéen ndax ba ñu dugg dégg nañ nga naan ku gaynde ku gaynde ku jaan mat ñu ndax xool ba xam góor la jigéen àll ba it bu gaynde sabee doo xam doo xam ba xam góor a sax wala jigéen da ngay seet foo teg sa tànk yi ñun nag xamewuñ loolu ko sëñ Tuubaa waaw ndax boo gisee ñoom seenu dugg day day day day day day day day day day multiplié wu ci ñun ndax waa kër yonent bi yàlla waxoon na leen yaa nisaa annabi yi man yaati min kunna bi fahisatin bayna yu daaxaf waaw yu daaxaf lahal azaabu dexfay nii mm-hmm. niki noonu bu dee bu dee lu tamit noonu lay dem mhm. noonu lay demee mhm. kon ñoom waa kër sëriñ waa kër sëriñ Tuubaa yi buñ duggee du yem ak benn waay rek bu duggul mhm. bu dugg du yem ak benn soxna rek bu duggul rawatina moom mi nga xam ni ku sañoon boo amee ginaar sax mun lu ne moo fay man te ñun moom lañu séddoo macha allah jërëjëf Mbacke wallaay sa ñu ngi koy gërëm bu baax ci woote beeg oyof gi mm. dugg ci émission bi. loolu ci oyofam. mënu ko de. wallaahi wax ji. mënu ko de da koy jéem rek. wallaahi waaye xam naa xam naa li ko yëngal. ba tax mu dugg. mu ngoog li ko yëngal nag daanaka moo yëngal ñëpp. billaahi billaahi billaahi waaw moo tax ay addiya laa ci bëggoon teg léegi. ci téléphone yi. bu fekkee mën nañu continuer di ma xoolal fu téléspectateurs yi toll. Hmm. ñu mën a euh, jox leen seeni i addiya en même temps euh, delloowaat euh, kaddu gi Oustaz Papa Oustaz Modou Fall am na nag ay laaj yu fi tukki yu fi tukkee sànq Fall yaaram mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Euh, bu fekkee xel mi mën fattu wala nga fàtte ñu ñu jaaraat ci Aba moo joxe question bu njëkk bi nu mu ko waxee woon waaw man damaa laajte woon ci diggante maam Thierno Borom Daaru mm. ak maam Cheikh Ibrahima Fall seen diggante parce que ñun ñëpp xam nañ ni eh, mm. suñu maam maam Mariama Sey mm-hmm. eh, maam Cheikh Fall moo ko jox maam Cheikhul Khadim mm-hmm. mu yóbbul ko maam Thierno Borom Daaru mm-hmm. donc Baye Daaru yi ngay wax ak Baye Fall Baye Daaru yi ak Baye Fall yi seen diggante noonu nga waxee woon de waaw waaw laaj bi nag mm. laaj dafa am ñett nit de laaj ngir weddi laaj ngir wala muy laaj ngir bànneexu wala ngeen laaj ngir bëgg xam yoo naa sa laaj bi laaj ngir bànneexu waaye lu gàtt la la ci tontu am na benn journée culturelle bu ñu defal Cheikh Ibra bu ñu defal Cheikh Ibra Fall le 20 avril. Mhm. ci Janatu Mahwa Baye Fall ga journée ba maam Thierno lañ ko tuddee. est-ce que. Ah. loolu waa daayira Jësmu bi ma yebal fii ñooy def loolu. Mhm. bi ci topp tamit maam Marème Sey bul fàtte ne daan dañ ko sànni dañ ko ba ma ko ci teen ba mu jógee kër Cheikh Ibra wax ñu ko fa bu ma xoon nag. waaye bañ ko fa ba ma xëyee ba mu dem kër kër kër Cheikh bi di faju saa bu xëyee de Cheikh bi taxaw ba ci buntu kër bi buntu néegam mare ma noo def mbaa yaa ngi ci mu ne waaw mu ko da nga doo faatu da nga dellu jur fa lu ni léng tey mu ngi sëñ Ousmane Mbacke nooree mi loolu moo waral Baye Daaru waral Baye Fall Cheikh Ibra nag ah, Baye Daaru Baye Fall maam Thierno ni sëñ Touba moomay Cheikh Ibra la la moomay maam Thierno ndax bi maa ul sel nelawee sëñ Touba dafa dafa jël ab kaamil daan ni kaamil bi laa jël ak Thierno bàyyi naa leen li ci des. ci miraas bi. waaw dënduwu <laughs> ci dara. kaamil bi jël naa ko ak Thierno. ak Thierno laa féetewoo. <laughs> moo ko gënaloon ci waaw waaw <laughs> mosut moom ci ak ndawam ba ci ak magam. kon loolu moom. li nag mbagal fekk loo xam dama koy denc ba suñu ne ba nag ah waaw. ak ganaar question bi waaw <laughs> jërëjëf euh, deuxième question bi mooy euh, dundu maam Cheikh Ibrahima Fall ginnaaw maam Bamba bi mu fi jógee ndax euh, souvent bu ñuy raconté dañuy wax histoire am avant mooy daje sëñ bi histoire am ci bi mu nekkee sëñ bi waaye bëggoon nañu xam bi fi sëñ bi jógee moom naka la doxalee. Hmm. ak aussi première rencontre am ak maam Thierno borom daaru bi mu koy wax ñëwal wane yoon mi hmm. histoire boobu noonu nan la demee. boobu nag am naa ci lu yaatu lu ma war wax. <laughs> lim lim laaj ginnaaw Serigne Touba nu Cheikh Ibra def ak maam Thierno ak la xew ma bëggoon nag comme Serigne Touba Cheikh xam nga gisee guñ ci waxtaan ah, bi ne. <laughs> ma bëggoon question boobu nga téyel ma ko. ma denc kay. waaw parce que nag Pape. moom mi ngi toll net. ci li bi ci bi yàlla tegtalee maam Cheikh Ibrahima a ah. Cheikhul Khadim. kon balaa muy xuus foofu ñu de ñu. il faut mu ñu réglé ñu réglé ñu réglé question yi. réglé leen ah, foofu waaw ba pare. moo doon question bi sax mm-hmm. moom laa la laaj euh, mm-hmm. ba indi ay baat. Mm-hmm. Euh, mais mooy say xin moo si. waaw waaw tudd ah. Serigne Bassirou. waaw waaye dafa am lu ma lu ma lu ma fàtte sax moo di njëkk. mi neen xa mi neen xaad. wala waaw wala bayan ak bayan. waaw lu tax mu njëkkee xaad. teg teg bayan. tax baatu say xin nuur a xaqin ji lu ko waral mm-hmm. ak lu waral saara boobu mu wax mm-hmm. pepp karaw mm-hmm. après mam Cheikh Fall li wax ni am na ko yëpp loolu nan lañ ko mën a expliquer loolu nag mooy fi tolloon mooy Cheikh Ibra bi mu jugee ci ay bokkam di wër Sëriñ Tuubaa kenn tegtalu ko ko te maam rakkam nga xam ne Cheikh Ibra daa toog ci naaj wi mi wër sëriñ Tuubaa ndax maam Saliou daa tëdd ba guddi mu ni jëmmi sëriñ Tuubaa ji day ñëw tiim ko day ñëw day ñëw tiim Cheikh Ibra ba da koy nettali ne ko yow ki ngay ki ngay sa ki ngay wër mi ngi day filee fanaan Cheikh Ibra daara bàyyi bu naaju tàngee jër mu toog jant bi di xool jant bi ba nag bëtam yi di neewi mm-hmm. nijaay ñëw jàpp ko dugal ko ci ker gi ne ko looy def fii mu ne ko damaa am jëmm joo xam damaa yaakaar ne jëmm ji da ko tiim mu ko siyaare ci jëmm ci jant bi muy Serigne tubaa am na bis boo xam ni dañ ko fekk ci naaju mu toog ñu daw ñu ñëw di ko di ko di ko dàq mu daw am ko ñu wax mëgee xaal la moo ko fekk moo ko daw moo ko daw moo ko dab fadd ko mu daanu Cheikh bi ne ko mëgee xaal la doo am barke ginaaw bi ñëw ne njaaree bu tubalaat ko ak yooyu ma la waxoon ci tool ci tooli xàbbu bi mu jógee foofu nag ba maam saali ni ko nag demal da ko dégg kajoor wala nga dégg ko bawal fa la jaxa fa la jóge nag ñëw foofu ci sëñ Tayba Touré fekk Cheikh Serigne Touba yebaloon fa ndax boobu Serigne Touba Serigne Touba booba nee nañ def na xutbaam boobu nga xam dana woon ku àndoon teg ku bëgg a ànd ak man ku àndoon teg man ci jàng kese dellul bis nekk tey nag ku bëgg li ma bëgg toogal ñu bari dem ñu ñëw fa des booba la Cheikh Ibra Fall ñëw nag ba mu dikkee ku dégg li mu xam ne waxul waxi dof waaw Cheikh Mouhamadul Basir moo ko nettalu ci mi nanu baaxil xadiim nii lam yuxrij nii min bayti illaa talabu cheikhun mu wasil te njëkk loolu sax dane ko maa ngi lay nettali la mu njëkk fasanteeg sa baay ci ak kóllëre min al xaqri wal bayxa cheikh ibrahima fall waxuma min fursaani niyati tilwa sayqihi tilwa xam nga da ci arab mooy mooy nouveau mm-hmm. nouveau mooy mooy tilwa tilwa ci arab mooy ku mag ak ak ak ku ndaw ci misaal waaye tilwa sayx ñi ba xaw a mel ni sëriñam ba wax li ma nett li moom Cheikh Ibra lii lam yuxrij ñi dara taxumaa génne sama kër lu may seet kilifa goo xam ne damay àggale ci yàlla mooy sayxin mu wasil ndax fexal bu amul faaxil fexlu maadi day am mudaarix mudaarix ba day am faaxil faaxil bi day am maful maful bi mooy mooy moosil ay mooy moosul boobu mooy loolu mooy sayxit moosil sëriñ boo xam ni damay àggale ci yàlla jokkale ci yàlla waaw lu tax mu ne ko damay àggale ci yàlla ndax yàlla mu ne ko demal ci yiw mu ci man bi mu ñëwee bi mu ko waxee loolu dane ko nag kooku du ku ma gis nga koy nuru nurul rek man la mooma man la yow a déedéet ajidu damay fekk fii xaalihi ci biiram mbiram moom nuur a xàqin mm-hmm. leeru dëgg goo xam ni tan dafihu amaamahu sulumaatul xalq damay fegal lëndëm lëndëmi mbindéef yi wa tan jëli bihi ayatul xaq te kii yàlla mu dëgg mu tamit day feeñ ci moom waaye li ci tege moo gën a xoromu sëriñ Tuubaa bu ne moom mukk du man kooku ndax law la mu law mm-hmm. xam nga adaat sart la mm-hmm. law la ma ajit ahadan bu fekkoon fekkuma ci suuf dara illaa xabruhu gis nga la laam gi xasam la la balaxa nii sidqu niyati fii <coughs> sidqu niyati fii xamal yi kon sama dëggal gu yéen dana may la ma bëgg ci moom waaw sëñ sëñ Cheikh Ibrahima Fall bu dikkoon fekk Sëriñ Tuubaa te ni mu ko ni mu war a toppee noonu la koy toppee ndax bu ñëwee ni fii lañ ko def Cheikh Ibrahima du sooy ndax li mu bëgg faaw mu am ko. même bu ma ñëwoon fekk ko ci bàmmeel. waaw mu ñëwoon ñu ne fii lañ ko def. fi ne bii bii sax bu Cheikh bi mu bëgg dana ko <laughs> que. ndax dana ko fekk wala wala ñu ne ko fii la fii lañ ko def muy nag kon sama dëggalu gi yéen dana may li bëgg ci jëmm joojo. Mhm. waaye li ko Serigne Touba tontu mooy li ma la waxoon léegi mooy dalal ni yàlla wax la Muhammad ji. sallallahu alayhi wa sallam. waxaadani Muhammad bi xam nga lu ko yaa Ibrahim. ana sidi birahim ana lawlam ajid min asaarihi sallallahu alayhi wa sallam illa man sura hasi nujum wa samaa illati tahaqtu annaha moom sallallahu alayhi wa sallam kaana yansu ilayha kon man la wasixtu gis nga la wasixtu ak la balaxanii su fekkoon fekk mu ci suuf dara ci ay xeetam moom yoon sallallahu alayhi wa asamaan si nga xam daana ko tiim ak biddi bi nga xam ne daana xool ma mën a waat ne sama dëgg lu yéen dana may la bëgg ci moom kon li yonent bi wax la Cheikh Rafal. waaw bam waaw te Serigne te maam Cheikh Serigne bi muy wax ak Cheikh Ibra bi mu wax ci yonent bi salaam moo demal la mbiru baatin la. Mhm. kenn tegu ci bët ndax yonent bi néew fi. Mhm. Cheikh Ibra nag bi ko yàlla di waxal ki mu waxal mi ngi fi. te yàlla musta joxoon ñu nit ci nit. ci xudar la ko doon jéem a def ak Moussa te doxul mu lem ko téye ña day xaar ba mu jóg jamono mu indiwaat ko. Mhm. alxuraan nag saa yoo digg yaa ayyuhal lazina amanu wala wa minan naasi mhm. loo ci dégg rek xamal ni yàlla waxu ko rek ngir bëgg ngir ngir nettali déedéet da ko wax ngir bëgg ñu roy ci exemple waaw waaye nag bi mu dikkee wax loolu Serigne Touba Cheikh Ibra wax loolu Serigne Touba Serigne Touba tontu ko lii ma la wax Serigne Touba ne ko wa inni Cheikh Ibra ne ko wa inni man ka damay jaayante yow xalaa an laa unsa min ad-dunya bi shahara adduna bii ab donte ab kawar la moo ko fi jox innama hamillah wa daarul axira man sama yitte mooy yàlla ak kër gu mujj ga moo tax sëriñ bi mas na ne ko Ibra Faal mu ne Mbàkke mu ne ko fexeel ba bu ma nettalil dara Seex Ibra dox ñaari jéego wàññi ko waat ne ko Mbàkke ko wóolu wóoluwu it fexeel ba li ma liggéeyal fii bu ma ci jox dara dencal ma ko ba ëllëg mooy li doon wax xam naa li nga bëgg a jubloo laaj mooy faxasiti omiya ba mu sukkoon di ko def waaye lu bees koo am sëñ cuun ku am lu bees da nga am mbalit mm-hmm. sa daal yi boo ko jëndee muy lu bees foo koy def doo ko def ci mbuus mbuus gi da koy lekk ndax bu dee télévision bi kees gi ndax da koy lekk est-ce que bu bi param yaa ba dee ci lekk ko lekk ku am lu bees am mbalit dëgg <laughs> bu dee lii nag bu dee lii Cheikh Ibra am nag bu yeboo nga jàppee ko mbalit waaye dara ci pay joogu ca ndab li dañ ko duy ba mu fees li gis muy tuuru loolu day day wane ne ndab li fees na ndax matu mbir goo gis ak wàññi koom doog naa commencé. Mhm. boo yéegee ba ca garab ga nooy def da ngay daanu rek. Ah. boo yéegee ba ca kaw nooy def pot boo ko duy ba mu fees nu muy def day tuuru. tuuru tuuru ngay gis waaye Cheikh Ibrahima Serigne Touba fayagu ko ndax Cheikh Ibrahima àddina taxu ko woon a jóg da doon jàngale li sunu borom def ci jëmm ji mu koy jàngale loolu rek moo doon ab liggéeyam. Mhm. waaye bi mu dikkee noonu Mbàkke ba defa def fa jëfam juré jooj mu fa def. Mbàkke Kajoor la fekk sëriñ bi. Mbàkke Kajoor la ko fekk fa la ko waxee lii ma la wax. Cheikh Mouhamed mhm. Bousso nettali ko. Mhm. waaye bi mu ko waxee yàggatuñ fa nee nañ juróom-benn lañ fa weer juróom-benn weer lañ fa def mu jóge fa ñëw Mbàkke Bawol. Mhm. lépp la ci ëpp foofu la ko defee. waaye foofa nag ba mu ko defee jigéen baleetu fa. rootatu fa walatu fa rootatu fa. yendoo liggéey fanaane root gaañee nelaw ba naa xuréet ba lay ganaar ne kurkuréet moo ko xewal dawul doxi moo ko xewal nuyoo diraam moonu tere wuyu ni naam fekkoon na ñuy jàng fa maam mu murit du fexe fekkoon na daara yi di riir moo dindi àllarba ak di biir lu ba am wax mu daal di burtu mos am daal di joxe am na benn borom waykat bu bu siiw ci yoonu murit kuy jàmbaar doon na taarixal Cheikh Ibra muy Cheikh sëñ Mamadou Baas waaye laaj bi ba léegi oustaz yi tontaguñ ko de. mooy xam yi laaj way xam yi waaj leen. ahmadu laaj leen tey jii ma taaj leen saa ndën li may was ña jàngi woon siin. Hmm. ña génne zaytuun ña réere baa siin ab laaj a ngi tës. liggéey ba yeggal fab lépp jé fab lépp jébbal. te amuloo lal kenn mas na koo gis. amuloo lal waaw. Hmm? Hmm. kuy wëq say mbuus di julli say poos di jël te noos kenn mas na koo gis. te buy nuyoo raam du foqi waa raam nangoo defub jaam tey gor su dul des. ba santu baayam wuyowu waayam jël wéeru waayam raam jox ko ab nos. yëpp ci laaj bi la bokk de. Mhm. yendu ci kër kër fanaan ci fi kar ku dog mi leen ngir kenn mas na koo gis. Hmm? nit ñi xëccoo kaw. xëccoo kaw jàngi fexee raw mu dëdd foofu kaw moom joxeeb nosam yées yës mooy ne gëléem di def. Mhm, yës Cheikh moo moo moo jël buum def ko ci baatam. Mhm. ñoo jox ko ku tedd gi pare àgg suuf. kenn def kenn forcé wu ko ci. mu féetewoo suuf tey rafle tey xiif ba xëy di am kuuf muy bëmb koy gës mu ni kooku kii ma lay wax nag kooku yi ma lay wax. Mhm. Cheikh Ibra laa wax. bi junj moo tax mooy mbooti wii ceex tontul te bul ndax am na ciy xeet na leen ma déedéet Cheikh Ibra mooy wéet moo yegg moo sës soo nee ma waaw waaw nee na wan ma ko tem gaaw jërul nga ciy ñaaw mosee fa ko gis mas na ko topp nag ba mu ba mu ba mu ba wa jeex. Ah, waaye dafa dafa dafa dëddu Cheikh Ibrahima li mu andi ci lislaam moo yegg moo waaw damaa bëgg nit ñi xam ni lislaam ab tool la. Mhm. tool boo xam ni ku ne danga bay sa waar. Mhm. ay jullit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tudduwuñu ay jullit. Mhm. Ibrahima huwa samaakumul muslimina min mu ñu ko tuddee. sayyidina ibrahima alayhi salaam wa is yarfahu ibrahimul qawaahida minal bayti wa ismaahil rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim rabbana waj'alna muslimayni laka muslimayni mhm. muslimayni waaw mhm. muslimayni kon baatub lislaam mi ngi noonu mhm. in kuntum yaa xawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimiin loolu sayyidina Moussa alayhi salaam moo ko boo demee ci ca Nuux wa umirtu an akuna minal muslimin boo demee ca Xiisa tamit noonu wa sët bi annana muslimoon kon lislaam ab tool la. ku ne danga caa bay sa waar. Cheikh Ibrahima ni mu bayee lañ mosut a gis ci àdduna ndax suñu boroom li ko dal am na ci leen ci ay jaamam di ay kilifa ngay kilifa yàlla moo koy def nit. dëgg waaw ndax ku topp kilifa yonent bi mooy topp nga ma ko ko may mooy nga ma. fii ndax ñun ñi fi ñëw di wax dañoo jékki-jékki rek dugg fi. déedéet bu ñu jékki-jékki dugg ni émission la ñuy lu ngeen di wax génn leen ngeen di wax. <laughs> dëgg nit ki bëggul ku ñëw ci moom te jaarul fenn. dëgg la yàlla nekki noonu bëggul ku ñëw moom te jaarul fenn. gars am nga rendez-vous lañ lay que. da nga naan Sénégal la dëkk rek léegi suba dafay <laughs> xam boo demee da dugg wala déet. surtout bu bees bii. moo tax moo tax Cheikh Ibrahima Serigne Touba ni teg na ma foo xam ne bu fekkoon may jëflante sama borom man mii lay faral xam nga lu tax yàlla moo ko xas booleeg moom ba noppi dëggu gi dëggu mu tax mu wax loolu. loolu tamit faw ñu koy xam. Mm-hmm. xam ne Cheikh Ibra ndigul boromam lay wéyee danga naan Cheikh Mouhamadou Mountakha nee na bu yàlla taxawoon nee sëñ sëriñ Tuubaa taxaw nee ma jëm ci moom loolu yomb naa firi sëñ bi. dëgg la. jógal nga dem tribunal sa avocat bi taxaw juge bi taxaw ba xam ci ngay dem. ci avocat bi wax ji jeex na tàkk nag léegi. loolu rek loolu loolu dong la wax wax ju du feneen. mais lii leer na de. wax ji kay jeex na. du dara lool yaa yow yaa ngi koy def fii ci àddina te bàyyoo ko xel. nit bëgg nit ba ak ak ak xatante ko xëy ngeen loolu mun a nekk. inni la ajidu riixa Yuusuf law la antu fan du leen ko fàtte. doom yi ne ko inni lëf yi ne ko lëf yi daalikal xadim hmm? dane ko innaka lëf yi daalikal xadim uh-huh. falamma an jaa al basir alqaaw xalaa wajhihi fartadda basiran xaala alam aqul lakum inni ahlu maa la taxlamun mm-hmm. kon xetuk nit dana xeeñ nit loolu yëpp yu amoon la salaay salaam bi mu doonee ab am na fukki at ñett ci ak Baye Fall la waaw. fukki at ak ñett avant julli di ne woon. wax nga dëgg de. am na ñoo. sa waay de. la ilaha illallah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mais sëñ bi fi nga tollu garaaw na de. macha allah dafa neex de. Cheikh Ibrahima daa garaaw. wallaay est-ce que xaritu Abba la. Mhm. ay dara bala ma bala maa duggaat damay nuyu sama baay sëñ Moussa Diakhaté xaaral ma xadim Saxum Touba. ndax dafa dafa woo léegi wax ma lu daw sama yaram. Mhm. ndax moom sama baay la doon àndal sëñ Moussa Fatick kan. na ma yoonu murid yëpp laa duggal soo mënoon dugg wala mu ñëw teewoo ko dama koy teewee. ma ne ko nag ñun li ñuy wax yéen yéen a ñu nàmpatal ndax yéen la ñu xool ba xam ne sëñ Sëriñ Touba kenn warut toog wala Cheikh Ibrahima di wax ci moom ci. xaala ak xiila xaala sax baax na waaye xiila moom la kenn xamul ndax ndax. ku ko wax. waaw ismu majhuul la du maxluum di. xiila waxeef lañu rek. waaw kon na faaw ñu ciy wax li ma la waxoon léegi nii la alxuraan ba mu jeex lépp naxwu la. te yonent bi bàyyiwu ko fi woon waaye góorgóorlu jàmbaaru gaañee ko fi indi hmm. waaye inna allaha stara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna hmm. Hmm. léegi yuxaatiluuna fi sabilillah fa yaqtuluuna yaq yuq waaw fa yàqatuluuna wa yuqtaluun waaw dañ leen rey yéen ñi ñu jàkkaar lool wa yuqtaluun yàlla nangutu xam ne yëfari te moom dañ leen rey ñu mooy fiix loolu maf maxluum ak ak moo tax ma la nag fanwe fukki at ak ñett yi avant julli di wàcc ci lan la yonente bi nekkoon lul ak Baay Faal mhm. ndax am na ñi ci faatu woon yonente bi ña buñ dekkee am na lu bari lu leen raw ci lislaam loo xam ne xamuñ ko. fekke wuñ hmm? mhm. waaye nag dafa am loo xam ni yàlla inna allah laa yuxayiru maa bi bi anfusihim waaw te zaalika bi lam yakku yakku. yekkun la woon lam yi ci dugg moo dagg noonu ngi sànni. xarfu nafyin wa jazmin. wax bil mudaari maadi. waaw. kayfa fa'ala ka nga def ci alam mu dagg yaaga sànni nga ne alam tara da dagg yaaga sànni mm-hmm. Mm-hmm. lépp moom la ba jeex mu ñëw nag moom Cheikh Ibrahima daa am lu ko indi muy li bi xeex ba sonn ku ne bay sawaar ba sonn te mënu ko fa jële muy naafiq ndax masque gi yat gi leer na lonk gi moom leer na ñég gi nag moom mooy jafe-jafe bi léegi lonk gi yat gi leer na néeg gi leer na waaye lonk gi moo jafe-jafe ñi dañ koy bëgg a tàllal ñi bëgg koo def néeg hmm. léegi naafeq yi foofu la dikkee Cheikh Ibrahima nag waxtaan woo xam ni Jëbb Fall la waxtaan 1922. Hmm. maam El Hadj Malick nelawee. la hmm. mu toog dégg fere yi mooy taalibe di wax naan maam Tijaan nu ñu def maam El Hadj Malick nelawee Cheikh Ibrahima ni ci ton ni leen waaye Cheikh Ahmad Tijaan Sëriñ mu doon borom wirdi ba mu nelawee nu ñu defoon. <laughs> daan ne ma maag Sëriñ Tuubaa ñëwuñ fi ngir woot ngir woote ay tarixa dañ fay ñëw ngir woote rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak dugalal ko la mu bëggoon mu dugg ak génnal ko la mu bëggoon mu génn ak génn naa feq na sax lii rek moo waral xaaj xaajale koo bi mm-hmm. waaye lu ko jiitu kaana naasu ummatan waaxida fa baxasa wa munsirin li fi andi li fi andi yéefari xam ngeen ko laa tasaru na wuddan wala sowaaxan hmm. yaxuusa wa yaxuqu wa nasran hmm. ñooñu wax xadd addalu kasiran dañ ko ba ñoon def ko ay timsaal di ko mujj ñu koy jaamu seytaane jinne yi ñëw làqutu ca lu ñu wax mu mel ni mu mel ni moo am hmm. moo tax boo ko Seydina Aliyu di toj la mu wax dégg ko jaa al xaqul la doon wax innal al baatilu ak baatila lan mooy seen différence inna ji moo tax xulu mhm. aman naa wa maa unsila ilayna déglu li ma la bu baax a baax wa maa unsila ila ibrahima ilaa mhm. oustaz mhm. ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbaati wal inna ibrahima nag wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbaata inna arfu nasbi inna ji rek ko waral. kese. ko soppi. Mhm. waaw. Ibrahima foo ko fekk maam Mouhamed a sarif doon. des ko ihraab. ndax bu ñu ko doon ihraab kon boo nee boo nee boo ilaa foog nga ne Ibrahima yi. Ibrahima te maa laa yéen sarif la. Mhm. Mhm. bu waree kasra. <laughs> doo fekk bu doo fekk kasara de moom la borom ibnu malik ne wali tiraarin ah. awtana subin surif mhm. zu manaari wal masruufu xat lay waaw moo nga yow neex ngaa génn naa feq ci Ibrahim moo ko fi indi te naa feq nag lu moo yàq àdduna mhm. ndax wa isaa raaytahum tu'jibuka ajsaamuhum wayn yaqulu tasma wayn yaqulu tasma li xawlihim te ka annahum kat xusubun musannada te yaxsibuuna kat kulla sayxatin alayhim humul haddu faxzarhum xaatalahum lahu annaa yufaquun faxzaruhum waaw wa izaa qiila lakum taxaalaw yastaxfir lakum rasulullahi lawaw ru'uusahum wa ra'aytuhum yasudduuna wa hum mustakbiruun sawaa'un alayhim sawaa'un alayhim astaxfarta lahum am lam tastaxfir lahum am lam tastaxfir lahum yaxfir allahu lahum moo tax Baay Faal li ngeen def ci ndog yi ñu leen ko sikkalal bu mu leen métti de déedéet woo wa minhum man yalmisuka fi sadaqaati fa in utu minha radu wa in lam yutu minha yasxatuun isaahu minha yasxatuun <laughs> allahu akbar day am ñoo xam dañu ne sikkal ci li ngeen di def naan li ngeen def baaxul te boo leen ko joxoon ñu jël ku julli yaa ju yaa jullu peek waaye ko joxe amoo foo jublu foo tourné joxe ñu ñu jël Pape Cheikh a ngi ni jàngatu kenn te joxe ñu jël allazina nag yalmisuuna al mutawwihiina minal mu'miniina fi sadaqaati eh. am na ñoo xam ne dañuy sikkal jullit ñi coobare war a joxe seen alal ngir yàlla mm-hmm. am na ñeneen ñoo xam ne amuñ alal wala lazina laa yajiduuna illaa juhdahum fa yasxaruuna minhum yaa ngi leen di ree fa yasxaruuna minhum mm-hmm. waaye yàlla du reetaan de waaye yàlla da leen toroxal saxira lahum minhum mm-hmm. wa lahum azaabun aliim istaxfir lahum dikkaat wala tastaxfir in tastaxfir lahum sab'iina marra falan yaxfira allaahu lahum zaalika bi annahum kafaru billaahi wa rasuulihi wa maatu hum faasiquun bu xare bu xare jotee ñu koy jéem a dogal ngànt dugg leen ñu dem xare ñu dogal ngànt xare umut mhm. tabuk waxtu bu nekkoon waxtu bu sedd la woon yàlla ni leen yaa ayyuhallazina amanu maa lakum lu leen dal isaa xilal lakum infiru fi sabilillahi istaaxaltum mhm. ngeen diis diis lu borom ndax dunduk àdduna da leen a gënal alaaxira araditu bil hayaati dunya min alaaxira bu leen ko def mukk te law kaana haradan xariban wa safaran xaasidan kon la tabaxuka walakin baxmatat alayhim suqa wa sayxalifuuna billah law istataana la xarajna maakum allahu akbar yàlla ne yonte bi ko doon jéem a nangu ngir tàgg gi ñu ko tàgg naan ko dañoo am suñu jur dañoo am suñu soxna ak dañoo am suñu nangam yàlla ne ko yow moom xafal la waxaan ka li ma asin téléphone waaw ndax yàlla ne ko li ma asin téléphone li leen ko digal ndax tàggoo gi ku doon jullit pire yonte bi dun la kañ xaraje ngay am leen looy teg laa yastaazinuka llaziina yu'minuuna billaahi wal yawmil aaxiri ñoom moom duñ la duñ la tàggu mukk moom waaye innamaa yastaazinuka llaziina laa yu'minuuna billaahi wal yawmil aaxiri wartaabat quluubuhum fahum fii raybihim loolu moo fi indi am lu am solo lu sëñ cun mi wax muy minal xaxdi wal bayxa dama la jox xisa bu gàtt sëñ Mor Binta am na vidéo bu génn fan yii yéen koy seetaan. Mhm. Ibrahima ngi koy seetaan dégg nga lam ca wax sama bàyyi sëñ Mor Moustapha Fall moo njëkk a wutu Cheikh Ibra Fall. Mhm. Sëriñ Tuubaa da ko woo ci njaareem te ko defarloo am mbaar. mu Moustapha ñëw wax ko waajuram Cheikh Ibra Cheikh Ibra daal di bàyyi ba fajar mu jël jumtukaay mbaar ma mbaar ya seng yaag pont yaag yëpp yónnee ko kër sëñ bi. sëñ bi fajar gi bi ñu koy wàccee mu dégg ko waaw daan ne loolu lan la ñu ne Cheikh moo fi yónnee da ngay defal am mbaar Cheikh sëñ bi waaye ne leen santuma ko Mourou Moussa ko sant ne leen mot seen tànk yi biñ wax ko Cheikh Ibrahima indi bagage mu gis ko xam nga lu leen wax lu sëñ Bamba wax ñu ne na sant ko Moussa la ko sant mu ne ko ku xamoon ne boo amee doom mu dox sa diggante liggéey sëñ Bamba jant bañ am doom. loolu mooy minal xaqdi wal bayha hmm. ñu bari tey boo leen xëyoon boo leen daa defloo dara ba tey nga defloo ko seen doom wala nga defloo ko seen rakk la ñuy njëkk wax mooy kañ la soowum ganaar bañ a ngalaabi cuuj duñ xoole fa Cheikh Ibrahima xoole de moom dafa xam ni gémmiñ guñ xar ashhadu an laa ilaha illa wahdahu la sharika lahu moo tax suñ borom xar ko hmm. waaye nee na moom bosom mën na ko bañ waxtu du ko wàññi dara nee na lu tax ñu xar gosom mooy sëñ Bamba lu may liggéeyee waaw sëñ Bamba lu may liggéeyee ak sama liggéey ngi nii loolu rek moo tax ñu xar ñu xar gémmuñu ko Cheikh Ibra mhm. kooku kon amul nag ci ci ci saayir suñ luwaay saayir yi amul ci benn luwaa boo xam ne ci kaw ñëpp la dal wala am na njaay luwaa am na luwaa ndax luwaa yëpp ci kaw ñëpp la dal luwaa yi luwaa bi day tere nga jaar fii <laughs> mooy autorisé keneen mu jaar fi <laughs> luwaa yi tere nga jaar fi. waaw mooy autorisé ki ne. mu jaar fi mu jaar fi dëgg la de. ah te boo demee boo demee ci fa ruus fekk fi police bi looy xool foofu nga xoolal police bi bu tàkkee ruus mun la ñëwal na nooy def. dëgg la non euh, dafa bokk ci code de la route sax. léeg léegi ñu téye la sens interdit. kilifa ñëw ñu ubbil ko mu jàll te sens interdit la. amul benn loi bu dal ci kaw ñëpp. xoolal ko wër fa rek. ñi am ñi am autorisation dañuy génn guddi. waaw ñi ko amul ku génn ñu ramas la. waaw te léeg sax am ko xam ne du ko am ba pare te day génn bëgg ko ba mu coow <laughs> kooku moom moo gën a soof moom. mais mais digganteem ak seex yi moom seexul moom moom Sidi Birahim. mooy digganteem ak seex yi maanaam ñi mu fa fekk. Hmm. ak ñi ko fa fekk. Hmm. diggante bi. digganteem ak digganteem ak seex yi dañoo dañoo wax ni. waaw liggéey ah, loolu sax bu bu waaye bu loolu de bu ma ko tontee dama dama daal dama daal dugg ci laaju soxna Fatou Fatou Ndiaye bi Hmm? soxna Biso. soxna Biso waaw. bu ma ci duggee daa mel dama ci Xadija Xadija waaw su ma ci duggee damay damay duggaale ci loolu waaye lu mën a xew mooy dañoo wax ni fekk na fa fanweeri ak juróom-ñeent fu ñeent fukki leen a xew moom bokkuñu woon lu nekkati duma fi ne naan dëgg la wala lu dëgg waaye bokkuñu woon lu nekkati. Mm-hmm. ndikk loolu sax sama wëlër yi maa ngi koy nuyu bu baax sëñ nga xam ni. sëtu sëñ Mouhamadou sëñ sëñ sëñ Modou Lo Dagana la. Modou Dagana. Mhm. Mhm. Modou Lo Dagana di sunu lépp. nga xam ne mënoo ko fekk kër Cheikh Ibra mhm. di ba ko fiy jéem a génne moom. ndax bis bi lii lii rek war lii rek waree na ko. ñeent fukki nit ak juróom-ñeent fanweeri nit ak leen loolu la wax. maanaam bi muy ñëw. waaw ci sëriñ waaw dañu wax ne fekk na fa loolu waaye dama ne lu ci mën a xew moom bokkuñu woon lu leen yëkkati. ndax ku ne ci daara di jàng ba yàgg sëb sëriñ xëy def déclaration ni la ni ni kat man bis nekk tey nangam ak nangam bokkut ak ka jóge ci àll ba di di wër ba bu ba bu gisee ku fa jógee sax ndax ba mu gisee sëriñ Adama Gaye fa mu mu jógee dafa daal di wàcc rek daal di ñëw ñu nit ñi bu ngeen doon jigéen a ma ne sëy ngeen bonu loolu mooy xamal ni sunu boroom defaroon na ko nuura xaqin. Mm-hmm. nuura xaqin da nga xam ne loolu la ko suñu borom defal. moo tax bi mu gisee suñu aadama géer loolu la wax moom yéen ñi bu ngeen doon jigéen na da ma yóbbu seen sëriñ bi ma jébbalu waaye laa ma ci yéen xam nga wa ilaaji mooy leneen nit nit da koy wax walaw laa fadlullaahi wa rahmatuhu mhm. la kuntum minal xaasiriin falaw la mhm. waaw kon bu doon ngëneelu yàlla te ngëneelu yàlla kon kay tax mu leen da ngeen may yóbbu da may damay jébbalu ci yéen wala ma dem ci wala ma dem ci kooka damay dem ci kooka wala ma jébbalu ci yéen ndax xet gi ko xeeñ moo tax man nag loolu ci ci ci Seydina Yaquba alayhi salaam laa ko ñu déggee ak Yuusuf xetu diw mi ngi may xeeñ mosuma dégg loolu bi nga xamee ni li ma la wax ci diggante bi ak seex rek bi nga xamee ni Sëriñ Tuubaa génn àddina nga xam ni le 19 la fi bi jóge ñu am juróomi fan gouverneur may leen juróomi fan bi sëñ Moussa bi sëñ Moussa Mbacke defee certificat de décès bi mu am juróomi fan dañ leen wax ne daje leen ba kan mooy jiite sëñ Tuubaa bindul fenn ni bu ma fi jógee na ma mënus faa jiit euh, na bindu ko fenn fenn bindu ko man man gisuma ko tey gisuma ko gis ku ko gis waaye tubaab bi bi mu dajalee leen la 23 na waxtaan bañ daje ma Cheikh Ibrahima ñëwul sëñ Moussa Mbacke bi mu teewee xam nga lu mu wax. Mhm. lu ko tubaab bi wax kan mooy kilifa gi maay kilifa gi xam nga loolu dafa neexul. daf ni yoon wi sosoon xëy na ñooy xam ba xam kan mooy kilifa gi. waaw daan daal di ne gees daan ne te te nañ wooyu Baye Cheikh Ibra Baye Cheikh Ibra ñu wooyu kër Cheikh Ndiarème mu ñëw bi mu ñëwee bu jub mbooloo mi la su mi daal di bot yi mu yoroon daay tàmbali jox boppam sëñ Moustapha di raamal sëñ Modou Moustapha waaw bi mu ko tàmbalee raam rek la tubaab bi di jël la góornóor ci tàmbalee jël règle bi dóor di bind xam nañ nga xew waaw allahu akbar waaw Ibra Fall mi yaakaar mooy kilifa gi nekk moom jaam-jaamaatu moom Moustapha moom joxe na boppam bu yàgg la Cheikh Ibra wanee yoon ma soxna si daan ne képp koo xam ne mënus faa doy naa la defal ni ma def comme doyul nga xool kala doy nga ànd moom ngeen dem ñi pour am waaw ndax ndax laata muy wax loolu lettre yi bari won na de am na lettre ñu doon bind koy naan mën bu ma fi naan nag diw diw fi nekkoon waaye tubaab bi du xotti leer ko suul. <laughs> tubaab du xotti moom. waaw. da koy photocopier denc ko. waaw tubaab bu jàng lettre lettre di ko xotti mbaa ma koy suul. waaye lii moom na ngeen xam ne amoon na. moo rogalaat ba tey bu fi li ñuy wax kër mag moom. Hmm. bu fi kilifa gi jóge hmm. ñëpp ànd ak seeni rakk dal di dem yees lu ji ci ki toog. Hmm. loolu Cheikh laa ko def. Sidi Birahim moo tax Sëñ Muntaxa yi mu delloosiwaat nii yu yëpp mu delloosiwaat nii. cosaanul Cheikh Ibrahima Fall lu mu defoon la ndax ba mu koy xeex di ko def ñëpp dañu koon yaay dof bi tey ji ku deful ni moom dof bi rek lañ lay wooyee. dëgg la ndax ñëpp bu kenn toog ci kaw toogandoog moom loolu loon wax ñëpp ni ko yaay dof bi tey ji nag bu suñ bi toogee ci kaw ko ànd ak moom ku ne ab dof lañ jàppe yaw ba keroog ñuy xool loo doon kon loolu mooy jëfi Cheikh Ibra waaye bëgg naa. loolu ma doon wax ci wàllu ni mu doon liggéeyee Mbàkke Kajoor tamit ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñamale ci tuuti. ndax koo xam ni dafay gas ay leeñ ay pax di gas ay teen di root di buub ba xëy ñu ne la àgg nga ci sa borom loolu musu am ci àdduna te yàlla su bëggee def mbir du ko du ko jaarale ci li mën ne li mënta ne ci la koy jaarale li ñu mënta ne ndax su ko defee ci li mën a ne bi ma fal bi ma wax yonent bi yaay yonent bi di ko fal ab Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ko def ni ko yaay ngën ji mbindéef boobu ndax dafa jàngoon jàngul dara ummi la kon doon bu bu fekkoon jàng doon kiimaan di li gën a garaaw sax mooy mënul bi mënul boo ko bindalee turam xam waaw waaw mënul bind mënul liir waaw wa maa kunta tatluu min qablihi min kitaabin wala tax bi yamiinika izan lartaabal mubtiluun bu ko defoon loolu la ñuy wax waaye li ci gën a li ci gën a ëpp solo mooy loolu yàlla buy def day xool li mënta ne ba muy jox saydi sayidina Isa sayyidatina Mariama lu waroon am dangay am borom kër yaakaar ca njaboot. Mm-hmm. doo doo ko caa na a dem sababu doo ko caa mën am. Mm-hmm. kii moom amul amul amul boroom kër. inna laaha stafaaki rek la ko wax directement. wa taharaki wa taharaki. wastafaaki wastafaaki xalaa nisaa'il aalamiin. Allahu wa Mariama yaa Mariam ah, uxnutii li rabbiki wasjudi wasjudi warkahi ma'a raaki'iin mm, moom Mariam waaw te yonent bi fekkewu ko de mu ne ko saalika lii ma lay wax min anbaa'il xaybi nuuhihi ilayka ndax wa maa kunta ladayhim iz ba ñu tegoo xalima yi naan ka ayyuhum yakfulu Mariama fekk lu fa woon déedéet fekk lu fa di dama lay jox doom mu ne annaa yakuunu lii walad walam yamsasnii bashar ma may amee doom te man sequma góor dara. aw ma borom kër. waaw. mu ne ka saali kasaalikillahu yaxluqu maa yasaa moom isa xataa amran fa innamaa yaqulu lahu kun fayakun rek mu jeex rek moom suñu a waaw bu bëggee dinaan nangam na am mu am rek du xool li mën a ne ba pare mu def ko yi mënta ne rek lay dajale li nga xam ne lii moom buñ ko defee dañ naan lii jaadu na moom day xool loo xam ne lii dañ naan lii nu mën a nekkee xëy saa ba mu juddoo daal di wax ci saasa. Mm-hmm. loolu mas na mas na koo gis Cheikh Ibrahima nee na daa judduwaale ay am na wax loolu karaw yi nee nañ dafa sëq lépp yaram bi dafa sëq lépp karaw bi mu ñëw. incha allah Isa. Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall. est que. waaye nag jamono moo toll foo xam ne nit ki bu jàngee ba am xam-xam. Hmm. li njëkk def day sukkandiku ci am xelam ñun nag tëppuñ am xel ñu ndigal la ñuy topp. Hmm. toppuñ am xel de. ndigal la ñu topp ndax ñu ko toppoon am xel mhm. gis nga la ko yàlla fayee mooy kan iblis am xel mu doon topp mhm. dafa jege suñu borom ba suñu boroom ne ko jamono dana ñëw am na waa yoo xam ne dana am lu ma digle dina ko lànk te xamul ni mooma <laughs> que xamul mooma yàlla moo ne moo moo moo moo fam ne ci asamaan daal ni damaa bëgg ñëw ci suuf yàlla moo ko wax mhm. mooy dama bëgg ci suuf ku fi nekkal inni jaahilun la wax fil ardi xalifa waaw luñ ko wax ñoom malaayka yi tajaalu fiiha may man yufsidu fiiha wa yasfiku dima yasfiku dima waaw wa nahnu nusabbihu bi hamdi waaw wa nuqaddis lak waaw xaala inni axlamu maa la taalamun allahu akbar xam naa lu ngeen xamul waaw mooy mooy tax du nit mbindeef sax mbindeef rek mbindeef moo def lu mu xamul day làng ñàkk gi ñàkk a xam nag moo tax ñoom ñu wax loolu ñu malaayka yi suñu borom leen léegi ay tur laa leen laaj yu ne ci suuf ak yu ne ci kaw soo ngeen ko xamee rek li bëgg laay def laaj leen ko ñoom ñu ni subhanaka laa xilma lanaa illaa maa xalamtanaa innaka antal alim mu ne yaa aadamu a bi hum bi asmaihim ma tubduuna wa ma kuntum taktumun sujjóot leen iblis lànk ni man du ma sujjóot te ndax topp xelam waaw waaye xool naa li malaayikati sujjóot la adam sujjóot illa iblis abaa wastakbar xam nga lu tax mu bañ. Hmm. daa xool fu ndigal la jëm. jëmmeeti naa de ndigal bu la ko la ko digalee da xool fu mu jógee. ah moom fu mu jëm la xool. fu mu jëm la bu la ko digalee bul xool fu mu jëm. ndax xool fa mu jógee. xalaxte ne min neeri jërë. waaw wax xalaxte fu mu téye. <laughs> moom daa xool fu ndigal la jëm. est que. ci aadama moo tax mu lànk. ay waay ana Baye Fall yi. oh maa fi mu toll nii. waaw ndax Cheikh Ibrahima dafa leer. soo ko waxee ci bopp nit. dama la dégg man dama la dégg ndax yàlla moom moom ñu am xel ak ñu amul xel waaye fu mu wax rek yaa ul albaab lay wax. moo tax ñee moom nangu leen nangu leen a moom. allahu waliyu lazina amanu. wa lazina kafaru moom. wa lazina kafaru laa mawlaa lahum. dëgg la amuñu kilifa. déedéet nangu moom. <laughs> kon képp koo xam ne bañ nga. bu yow nga xam ne ci foofu nga foofu nga bokk. dëgg la de. waxtu wu ne day bëgg jëmmam am ko représenté fii ci suuf. loolu lay def di ko def di ko def. def ko jaay ci jaar ci arab yi arab yi lànk mhm. al ahrabu asaddu kufran wa nifaqan te wa aji daru allah taalamu xuddoo dama anzala ala rasulihi dañoo lànk te ñoom ñoom ñoom ñoom làngu ñoom la wàcc ñoom ñoo waroon a gën a xam ñoom ñoo waroon ñoom ñoo yeyoo woon gën a xam li yàlla wàccee ci yonte waaye dañoo lànk Modou sa addiye maam te ñun tey te ñun tey cheikh bi. suñu ne woon tey Serigne Mountakha nee na bu kenn fanaan Ndakaaru ñun ñii bu ñuy dem duñu yóbbu yére. waaw lal yee climatiseur yi dañ koy baax. Hmm? te bu ñu yeggee danuy sukk di raam lu ñu yor joxe ko te bu ñu jeexalee daw wut si waat. kon ñun xooluñu fa ndigal la jëm waaye dañoo déglu fa mu jóge waaw man du ma séntu weer. waaw bu ñu nee nee na waaw rek. waaw loolu ku loolu mooy ku jëfe ndigal moom du juum ki lay digal moom mën naa juum waaye kii jëfe ndigal moom du juum mooy loolu mooy naan ku am kuddu lakk <laughs> dëgg la de waaw. waaw mais laaj moo di doy waar mooy Serigne Bassirou Abdoul Khadir mi ngi seetaan émission bi. sëñ Abdou Samad Mbacke mi ngi koy seetaan. Hmm. sëñ Daali Mbacke mi ngi toog di seetaan. li li li Cheikh Ibra Fall andi nag. ci li Birahim. mooy mooy li neex Serigne Bassirou mi ngay wax Abdoul Khadir. sëñ Daali. Hmm. mooy li neex sëñ Abdou Samad. mooy li neex Serigne Bassirou bàyyi laat say Mbacke. ndax xam na ni xam nañu xam nañu ñoom. Hmm. li Cheikh Ibrahima Fall jox Serigne Touba dese lu ci dara te du fi dañ ba ilaa yomi diini ndax Cheikh Ibrahima Serigne Touba rek la bëgg may naa la lu sa bët tege ci àdduna yaa ko moom mu ne ko wëlbatil ma sama mbari bët ba ma gis loolu yow. wëlbatil ma samay mbaru bët. waaw ba du ma gis lu yow. waaw. <laughs> kooku bëggul dara sëñ bi xoolee na ko nu ne waaye saa bu ko xoolee rek Cheikh bi xoolee na ko nu ne. maam Sassé Mbodj ak maam Faty Sarr mu Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye bul fàtte ni soxna Cheikh la woon. Mhm. si sëñ maam Faty Sylla bu sëñ sëñ bi Cheikh Ibrahima dafa yor dafa dagg mburu jox leen an boo leen a kub taalibe dem leen ca kër Serigne Touba ndax ñii dama bañ sawar a lakk leen kii doomi buur la kii doomi euh, doomi soxna la. biñ ñëwee ñoom ba ci Serigne Touba ne ko Cheikh Ibrahima Fall bañ ñii sawar lakk leen dañ ne ko ne Ibrahima Fall xanaa gëmut la ma ko waxoon ko ànd moom du lakk. ànd ak moom du lakk. waaw xanaa gëmul la ma ko waxoon boobu da koy seet rek xam gim gim xam Serigne Touba su musu su la gis ko xame noonu. waaw te nee xamul ci moom dara nag nee na ab si ndax la rek bu dara ci ak ak garab guy kem lam ca dara dong la xam. la xam Serigne Touba. waaw moo tax Serigne ne la man naasu maahu naa nee na kon la baadaru ilaa talabihii walaakin lammaa jahilahu talabu xayra mhm. buñ xamoon li ne fii fii man nee ñoom ñëpp day daw ñëw Sidi Birahim waaw léegi mm. Serigne Touba lim indi ñu war ko ñu war ñu war koo xamee kan mooy Serigne Touba waaw avant Serigne Touba est-ce que mënoon na am <laughs> déedéet seen télé bi avant mu ñëw est-ce que télé yi fi jiitu woon mënoon nañoo wax programme bu TFM mënta ne déedéet parce que boobu amagul boobu ay abaa yi ak ñeneen ña nga feneen xëy na ah, mbay mu ñoragul kenn du ko nattal asaka waaw ah, léegi nag bi mu dikkee moom warul andaale dara nag mhm. ñaar nit ñooy génn fii nga xam ne fii nga leen xame te ay ay télévision ñu ngi foon kon ku ñëw da nga dara léegi suñu tubaab bi ñëw dafa am lu mu àndaale mooy xafistuma si na xam ne dafaatiri damaa làq lu ñëwul ci ay téere li ma làq newul ci ay téere. mais mais mais sëriñ bi euh, li soxna Xadija laaj sànq. Hmm? sëriñ bi bi Seexul Xadim bi mu demee. Hmm? kan moo ko annoncé moom Cheikh Ibrahima Fall. kan moo ne ko sëriñ bi jóge na fi. boobu Cheikh xam nga dafa ne njaareem. li gën a xorom mooy Cheikh Ibrahima sëñ Tuubaa da ko wax ne ko mu dem moo ko digal ne ko mu dem Thiès bi mu ñëwee Thiès. Mhm. mu toog 1916 di togg ndog yi sëñ Tuubaa digal ko mu ñëw njaareem bi mu ko digalee rek la ni sëñ Bamba daa sonn te bëgg a noppalu dama ne ko neewal penk mu ne soow ñu ne fi ba jant bi fay. Hmm? waaw boobu la xam ne sëñ bii moom mi ngi ci wàccaay sunu borom xamal ne ko boo demee ba fi bay bay bay génn àddina wala wala li nga dese ci àdduna bul të bul bul tëdd ci lu Ibra liggéeyul néegu Cheikh boobu ci la sëñ bi génnee àdduna laata loolu woo na ko ne ko yettal ma fii bunt mu woo sëñ Ablaye Xaar moo Xaar moo moo yett buntu ba foofa lañ jaarale sëñ bi mu génnee àdduna allahu akbar dani bët ci leerug jàmbur lay gis bu ñu fayoon lamp yi léegi tey duñ gis ñun dëgg la bët leerug jàmbur lay gis Cheikh Ibrahima ay bëtam moo doon Serigne Touba moo tax bi mu demee kenn du ko wax bu courant coupé ko wax waaw ku la da da koy xam da da koy xam day xam ni courant coupé na ah, maa ngi lay door dégg la ilaha nun dey dunu dëpp faal dunu daay dunu delloo ti ginnaaw ànd ñi bëgg Cheikh Ibrahima Fall loxo ca kaw ñu màggal Cheikh Ibrahima Fall am di moo doo Moustapha Fall yow baabil uloom am di moo doo Moustapha Fall yàlla daal faal nga yëngoow abdi moo doomu baba faal yàlla daal faal nga yëngoow Cheikh Ibrahima faal laa ilaaha ilaallaah Cheikh Baye góor yaa mat borom di faal maa ngi jégalu mbir bu ñuy wax Lamine Diassé hmm. nekk ca Port dëgg eh, Grand nee na jox na la 400000 addee Cheikh Ibrahima Fall. ndeysaan Sidi ma jox la ko loolu nag naa ba ñëpp dégg ko ku bëgg Cheikh Ibrahima Fall la nag. moom itam mi ngi yóbbante ngërëm. Bass Khadim Awa Ba. di wax ne mi ngi lay bàyyi xel te itam kontaan na mais dafa message bu ma jot léegi muy ndogu yi nga xam ni gis na ni Baye Fall yaa ngi koy def bu yàggul maa ngi gis ci internet bi sëñ Cheikh Fall Mbawor. yitte ju kawe ji muy def ci yanu bool yi ànd ak taalibe yi hmm. ndogu yi fan la jógee ak lan moo koy indi. Oustaz ma ma cofaale ci benn question rek. waaw kay waaw jàll ndax fii jamono toll yi tamit bu ñu nee Cheikh Ibra xel yëpp day dem ci liggéey. Mm-hmm. loolu dafa nekk loo xamante ne dafa dem ba nekk maanaam mu ñuy wax tubaab waa marque de fabrique la mu wasaare ko ci njabootam lan lañ mën a xam ci diggante Cheikh Ibra ak liggéey ci boppam. surtout pour ndaw ñi fi jamono toll. Cheikh Ibra ak liggéey ak ndogu yi lan moo ko indi alaaj Daawda Njaay ma nga ca Espagne Malaga Marbella di taalibe Sidi Biraay maam si Ibrahima Fall alaaj Daawda buur géwél nu ngi lay nuyu waaye sëriñ bi euh, Mouhamed Samb soldaaru Bamba mi ngi lay nuyu sa soppee bopp hmm. nee na waxtaan wi kawe na waaw sëñ Ahmad Lahat xasiida moom itam mi ngi mi ngi nuyoo soxna Adama ba ca Houston Amérique ñoom ñëpp nu ngi seetaan di am mbégte lool lool moora Euh, mboolem njabootu Seexul Xadiim réew mi réew mi daal sëriñ bi kenn kenn desul euh, soxna Maya Peex bu suñu bàyyi alxaaj Abdoulaye Mbay Peex nga xam ne sëriñ Seex ndigal mm. euh, mooy sëriñam di sangam di lépp mm. moom soxna Maya big na lool mm. moom nee na njaboot gi yëpp kenn ku ci ne ma li li koy jooyloo xamul sax lu mu doon ndax waxin week xam-xam beeg pédagogie bi allahuma la adduru yàlla bu lor jóge ci ñun ñëw ci yow waaye sëriñ bi tey jii xam-xam feeñ na tey jii xaal feeñ na tey jii ñi xamul woon maam Cheikh Ibrahima Fall di ko dégg tey xam nañu doxiinu Sidi Birahim xam nañu ni Sidi Birahim li def ci moom li yàlla def ci moom xam nañu ni yàlla ay mbiram moo koy sottee nu mu ko neexee moom yàlla kenn ku ci nekk ak njaariñam kenn ku ci nekk ak ni la yàlla duyelee waaye tey ku déglu waxtaan wii xam ni Sidi Birahim ni ko ni ko yàlla dugal duyelee kawe na soxna ma man nag comme oustaz Modou Fall dafa laaj sama dafa laqar ci sama lanc <laughs> sama sama ndékki la reeree di mais amul benn problème léegi man dama fi jamono tollu xasanteeg wax lu ñaaw xew maam Cheikh Fall waxoon démb loo xam ne bu ñu ko déggoon a ah, Fall kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara lu waaye def boppam. bi ma mokkalee bayit woowu ndax man aw bayit laa ko def man bi ma ko mokkalee ba léegi. Hmm. dara metteetu mu am leneen lu mu waxoon afaal boo liggéey ku am na ma gërëm ku ñàkk na ma xarab coow li coow li man mm-hmm. loolu di wax ju rëy mm-hmm. yoo xam ne bu nu ko firee mm-hmm. ku nekk di nga daw wuti ngir ëllëg waaye wut ci lu baax eh, comme oustaz dafa laaj ndogo yi man ndogo yi daf maa daf ci laa gimmee ndax ko maa ngi dëkkoon ci watu kër Serigne Cheikh Fall Baye góor ku xam péri saagu daaru Xuddoos bi xam ne ba ñu indi ndogo yi ci lool laa gimmee ma ni ndogu yaa ngoog waaw kay ci laa gimmee ci laa màggee dañ ciy delloo njukkal rek xanaa Serigne Cheikh Fall Baye góor ak njabootam yëpp wax fa dëgg yàlla ndaxte eh, gis nañ leen seen taxawaay bi ci njabootam gépp am loolu laa bëggoon a laaj waaye oustaz laaj na ko kon ci ndogu bi lu ci xew boo gisee biñ tàmbalee waxtaan wi ba tey hmm? ma lay misaal naan la eh, lan mooy ihraab ci ci ci ci ci ci naxu al farhiya ak al asliya ñu laa doon junj hmm. ndax foo war a fekk masque long fekkoo ko fa boo demee war nga fa fekk war nga lenn loo ne moo koy mandargaal. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu la doon junju. lii 1916 jooju ma la wax moom la ko Cheikh Serigne Touba digal Cheikh Ibra ci njaareem woo ko mu ñëw mu ne ko damay séentu gan loolu rek la ko wax da koo dégg xam nga dégg gi mu ko dégg. moom jox la ci benn bala maa agsi foofu. dafa am koo xam dafa ñëw sëñ bi ne ko damaa bëgg sëñ bi jox mu barkeelu. sëñ bi ni ko barkeelu da nga fay wutal dara da fay wutal dara boo ñëwee bëgg sama mbubb mii da ko bëgg a barkeeloo da dem wut mbubb mu ko dàq jox ma ko ne ma indi ma barkeeloo mii. Mhm. kooku dem ca jaba jënd fa ni mu dem ci kii ki daa ñawal sëñ bi mu ñawal ko bi mu ñëwee fekk fa Cheikh Ibra bi mu dikkee ni ko jëy di ko jox sëñ bi téye ko ni ko lii boo ko doon xayma ñaata la Cheikh Ibra ni bërët fam ne ni ko mbàkke xanaa ci ba ko laalagul <laughs> lool loolu mooy dégg mooy dégg-dégg gi Cheikh Ibrahima Fall dégg Serigne Touba. moo tax bi mu ne ko damay am gan te bëgg nga nga benneenal ma ko moom ci saasa rek bi mu jógee leen yaaram lu ko lu ko tedd ko wax mu ne ko nee na day am gan te bëgg nga mu ne ko gan gi weer lay wax. ci saasa mu ne ko maasaleel mu maasalee mu ne ko bindal tànk mu def taa tombe ak kaaf. mu ne ko ëpp na wàññi ko mu defaat ko def ko taati daro li wax taa tànk muy vingt neuf Cheikh Ibrahima ne ko ni ku ma ci jox ko nee na ku ma ci jox ab tànk genn wàllu fiftiit nee na ma warlu la weer loolu nag booy woor sax def loolu ndax su ma siyaamu lam yan xasir fi xadamil akli wa surbi mm-hmm. tëkkul ci loolu dong de fa rubba saa imin mahal jamaaha laysa lahu fihi sewal majaaha bare waa na aji woor joo xam ni bàyyi lekk ak naan dong la def waaye ab xiif dong la jam waaye amu ci leneen ñenn ñange ñangeen ñi waxtu bu ñu bay dog <laughs> dañuy lekk dañuy lekk ba sëñ bi neen dañuy lekk ba mel ni aw nag bala ñu lekk comme lekk bàyyi ma ba wax doom yaakul akalal akalal baqar yi waxta futuur yi waxta saxaar bu ñu dog bu ñu xëdd yëpp noonu la def <laughs> moo tax oustaz. képp koo xam ne ku mën a doon ci àddina munoo munoo munoo génn ni ndax sunu boroom dafa wax ni xanil mujrimiin maa salakakum fii saxar. xaalu lam naku minal musallin waaw te la ca topp. wa prix moom day firalee ak waaw moom bu toppee ci prix day fir day day day day jógalee ak wala te. Mm-hmm. xaalu lam naku. minal waaw walam nakun nut'imul miskin wa wa kunna naxuudu ma alqaa'idin wa wa kunna nukazzibu bi yawmi ddin léegi xataa xataa ataana alyaqin te famaa lahum famaa tanfa'uhum shafaa'atu shaafi'in famaa lahum xani taskirati muhridin ñoom ka annahum humurun mustanfara farrat min xaswara bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara yéen lu ngeen def bañ gis leen fii ci sawara wi ñu wax saqara nga ne ñun kat daawuñ julli ñu ne loo ñu ne lool doo ngeen daa def ñu ne déedéet. lam nakum li musali. waaw te walam nakum nga ihmul miskin. waaw. te miskin ak fuqaraaw nag duñ benn ndax fa faqiir moom foo ko fekkee ma nga ci mbedd ma yalwaan miskin nag mën naa ñàkk soxlu dépasse ko waaye <laughs> du génn du génn waaw. <laughs> est que duñ bokk. léeg-léeg ko xam ni dañ ko yeew ci diine du mënta du mën a génn da ngay xam ni kii daa mënta génn moo tax ma koy def mooy mooy sama saar gi rek. allazina usru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yaxsabuhumul jaahilu aghniyaa min at-ta'affuf ta'rifuhum bi siimaahum la yas'aluna an-naasa ilhaafan te li ci li li li ma li may wax ci ci ci ci ci ci grammaire alxuraan karim mhm. laysa alaykum hudaahum walaakinna llaaha yahdi man yashaa wa maa tunfiqu min xayrin fa li anfusikum wa maa tunfiquuna illaa ibtigaa wajhi llaahi wa maa tunfiqu xoola yooyu min xayrin yuwaffa ilaykum waaw léegi tunfiquuna wama tun waaw tun fi xuu mhm. est-ce que léegi ostaas fexale juróom sëñ nasabe bëgg ko ay ak lu jasame xasaf nun waaw xasaf nun waaw ca tatatat est que allahu akbar léegi ndogu nag soxna si mooy lii 1916 boobu crise bi dafa ñëw ay man sëñ Moustapha mi fan la nekkoon te bul fàttali ne bul te bul fàttali ni njaareem waaw bul fàttali ni njaareem ah. bi nga xamee ni sëriñ bi dem na ni ko soxna Xadija laaje léegi mhm. bi sëñ bi demee ba Cheikh Moussa def certificat de décès ba mu sëñ bi Touba dañoo mujj yàgg bi sëñ Moussa naan jurbel wetee wute xarnu bi jurbel dafa neexoon ndax booba commerce bi dafay dox tubaab yi fa lañ nekk naari libaane yi fa lañ nekk bañ demee ba sëñ bi dem nga xam ne dara doxatul na prince bi taxaw lu mu def ci saasa dañ dañ koy dañ koy dem jëli ca la waxee loolu mu wax noonu ni kii laa ci gar suñu safari ka nee na sëñ blaat bu mu koy wax da ko da ko faa fekk nee moo tax sëñ blaat ci la jógee xam ne liggéeyal sëñ tubaab bu fa ci gëru bakkan doo ko def moo tax lu mu wax ni sama bakkan laa ci gar <laughs> fi ngay xamee ni Cheikh Ibra amul morom rek mooy gónd gi mu gónd ñoom suñu fas Abdou Khadir ñoom ak waa kër Sëñ Tuubaa ñëpp Cheikh Ibra da a góndi leen waaw Cheikh Ibra li mu leen jaay moo gën a doon doomi Sëñ Tuubaa xam nga xam nga loolu yoree sa ñaar téeméer dem ci marché ba jënd portable bii ñaar téeméer portable la gën a parce que moom ko jëndee <laughs> moo tax sëñ sëñ Fallou ni bixtu bu nu watiya bil iraada sama njuréel gi dama ko jaay jënd ko taalibe ginnaaw bi ma ko jaayee eh, def naa addee ji. Ah, njur moo gën a moo gën a for njuréel. ah dëgg la jënd naa sama njuréel jaaye ko taalibe. sëñ Mor jëndee ko taalibe waaw. loolu sëñ Fallou nett na ko kase tamit di sëñ Fallou ci mhm. kase muy damaa teew sëñ Moustapha la ñuy waxtaanee. sëñ Mor Moustapha Mbacke teew. kon moo waral sama maam Serigne Modou Moustapha bu ñoom soxna may lekkoon ba pare ah. xewlu woon ba pare mu daan leen jox mbubbam naan leen foofu loolu mooy Cheikh loolu mooy Cheikh Ibrahima ji Cheikh Ibrahima saa moom moom ku ci sëyuti dañ ci njaaloo Sidi Birahim force la ak foo mën a nekk dafa am lu am solo nag ci ci foofu ci ci njaareem bala maa ñëw fii ci njaareem bi am na kenn ci rakki sëñ bi ko wax ne ko sa yoo sa sa ginnaaw tiit naa ci sëñ bi ne ko lu tax mu ne ko li ma gis ci sa diggante sa sa yi sa ginaaw nar naa yàqu sëñ bi ne ko xaddu damm ndax yàq laay yóbbaale yàq waaye yàqule moom fi laa koy bàyyi moo tax affaire yi da ngay wax ba yàqu rek waaye nga jëm ca yàq munoo ko. waaye sëñ bi foofu jar naa taxaw def fi leeral. Hmm. mooy yàq moom mënatut a ne. waaw waaye wax ca bay yàqule mën naa ne. waaw kon waxkat yi ne leen. loolu laay wax. xam nga xam nga Cheikh waxoon na ni. 2020 lu dul Ibrahima Fall wasin na biig rek dégg naa ko na biig. waaw. te dañoo xam ne góor du wasin dégg na lu ne. yaa koy jay yaa koy def nangam yaay def nangam yaa mu nangu rek. Mhm. bi mu ñëwee bi mu jógee Darou Salaam bi mu jógee. Mbacke Kajoor ñëw Daaru Salaam diggante ñeenti at yooyu bi mu nekkee Mbacke Mbacke Bawal laata muy dem Daaru Salaam ñun foofu daj na fa lu ne boo gisee Daaru Salaam bu doon ci ñun nitu kese yi tur gaaruwaale la mooy ñu sonoon la nga dem fii ni jàmm gën. waaw dëgg la de. tuddlu ko mën naan tuddlu ko neen salaam la ko tuddee kon ñoom li woon nañ ko. <laughs> Daaru parce que. waaye foofu tey foofu tey dafa nekk ci séeréer la Cheikh Ibra moom la sëñ bi doon wutloo ñaxum rëw ngir du ko takkaloo am néeg mu dem ba ca côté Njóobeen ca Mbàkke ba mu demee gis fa ñaxum rëw bu rafet waaye dafa sag sayu ba noppi suñu borom am lu mu ci suuf si mu def nii fekki naaw def ni naawal bi takk fas ci suuf daal di def nii daal di dem yoonam bi mu ñëwee daa gis sëñ bi ni ko gis naa suuf soo xam ne boo fa dëkkee li nga bëgg a taxawal dina taxaw sëñ bi def nii suuf si daal ci julli ñaari raak ne ko doxañ dem nga ko te Cheikh bi muy ñëw fu mu jaar day dagg bantum ngeer bu tooy teg fa ngir bëgg sëñ bu ne ko jiital mu ne ko foo gis bantum ngeer bu tooy maa ko fa teg kooku ni ni muy liggéeyee ni mu doon liggéeyale boromam. loolu amatu fi de. loolu du am daal. barakallah waaw te taalib bu sëñ bu ne. Mhm. bëgg nga ko sa kër. waaw dëgg la. ku ne bëgg nga ko sa kër ni mu doon liggéeyal sa ni mu sëñ Tuubaa. dëgg la. boo gisee nag moo wax la ñun ñun toppuñ xam-xam ñun li ñu topp. toppuñ am xel ndigal ndigal la ñuy topp. Mhm. plateau bi dama wax naan bu fi benn mbàkke mbàkke nekkee du ma ci kaw. est loolu bu lu ngeen ma ko ñaan ñaan damay bañ. ndeysaan laa fas yéene te duma ci jóg te ñemewu ma ko ndax loolu mooy doon loolu loolu moo dal sama xel daal. te nit ku nit lu dal xelam daf koy def. dëgg la. Mhm. léegi nag ndog yi bi ko Serigne Touba di digal Cheikh Ibrahima boobu daa fekk crise bi xew te boobu sëñ bi gis na kër sëñ bi la fay dajee ci aw nit nee nañ sax ndogu yu jëkk yi Cees la ko toggee teg ko ci saxaar andi ko te bu masaan a togg li ci gën a xoromu Cheikh Ibrahima daw ko ñam day raxasu ba set day raxasu ba set kaata ndawal gi ba weeyi daje moo xam ne ñor ndax bëggul di ko ñam di jox sëñ bi aw des <laughs> bëggul jox sëñ bi aw des pour moom daal bu ko ñemee yaakaar na ni. jox na ka aw des. oh Seydi Birahim. te melaw taalibe. ber gim gim ber sëñ bi xam nga sunu borom wéetul. déedéet. maanaam sunu borom wéetul daa beroo. Mhm. xam nga wéet ak beroo duñ benn. daa beroo. waaw daa beroo. wéet moom mooy da ay nit nekkoon nañ fi la wéet li ba yàgg kenn newatu fi. beru na mooy fa nga ne kenn fekkulu fa moo tax bi mu demee ba ba bëgg ba bëgg xamle boppam moo tax mu daal di xam na ni taal bi dafa tàng kenn ñi mu ko jegee mu rocc ak gilin jox ko joxe ko wàcce ko mooy al ahadiya mm-hmm. ngir bëgg ñu ñu fañ fam ne ñu fekk ko fi ñu mën a jaar foofu ba agsi ci moom boo gisee Seex nag noon la bere sëñ bi da koo jël ber ko ne nangul kenn bokk moom toog ci kaw nangul kenn sol mbaxana ndax yooyu yëpp ay daraja la toogaay sax toogaay si ni farankulaay sax am na ci kër Baay Faal yoo xam ne ba léegi nii dafa araam boo ko defee dangay ngay fay. waaw toog ak sa kilifa takk ay weer boo ko defee da ngay fay toog sa kilifa sol am mbaxana boo ko defee da fay toog sa kilifa di socc boo ko defee da ngay fay. waaw. yooyu yëpp loo ci def da ngay fay. ak tegale si waaw te xoolal Serigne Touba li ko Cheikh <laughs> xoolal Cheikh Ibrahima li mu ko Serigne Touba defal waaye boog kër Serigne bokkul ak TFM nag. defal te ba tey jii tey lañ gën a waa kër Cheikh Ibrahima hmm? waaw waaye jëm yàlla ji rek moo tax nag. dëgg la. ndax bu bul fàtte ne da dafa jógoon ngir wuti borom. waaw lu ko dal bëgg yàlla moo ko teg Cheikh Ibrahima. billaahi. ba léegi nii koo ci gis ak lu la miin miin ak lu ma xaritoo xaritoo xaritoo ak yow booy wax da am loo ci bàyyi booy jëf da nga am loo ci loo ci bàyyi ndax day mel ni ak ragal moo tax ci diggante bi. waaye ragal googu ragal borom bi rek la. Mhm. te Cheikh Ibrahima dafa mënoon a wéetal boromam ragal ko am. kii ne ci am ki ne ci ki fekk bisu fekk ay taalibeem yuy bu fëgg leen jug leen liggéeyee bu liggéeyee suñu bamba bu ngeen demee seen bàmmee nelaw am na suñ maam yoo xam ni da koy feesal ba yàgg xel mi xelum fees kat dugg ko xel mi teey mun tourné ni caasirati seex nit bu ne nii rek yem ci fenêtre bi seex ba taxaw di ko xool muy maam ngoon téere bu ñuy wax xaja xaja euh, ibul xafaar ci Seex Ibra Faal la ko bind arab la ko def waaye li gën a xor mooy Seex Ibra daa bàyyi ba su bëgg mu woo ko moom da toogal murit mu toog toogaayu kuy julli mu ne ko toogal toogoo toogi ne buur buur fëri mu ferenko laayoo mu ne ko bu ëllëgee nag booy boo demee ba sam xel ne ci war a serate wala tufli na toog àgg suuf xese bi gudd na maa ko gàttal waaye li ci gën a am li ci ëpp lépp am njëriñ sax waaye li ma ci soxla rek laa ci jël toogal mu mu toog mu ne ko boo bëggee tufli da ngay toog wàqi sa loxo ki nekk sa wet ndax wa nax nu aqrabu ilayhi min hablil warid mhm. léegi boo tuflee mu dal ko nag boo mu dal borom bi nag ndax moom moo la sa bu xool mhm. xam nga ba mi ngi sa wetam déet toogal yëglu def nii wàqi tufli suul boo wàq boo wàqee rek moo xam nga kooku xam nga ne xam nga ne boroom jege na ko. teggin la lay jàngal. li ci mbedd mi di xaaxtëf. waaw ak waaw su ko defee nag boo gisee koo gis ab Baay Faal di wax ci lu mel nii mu koy yéem lam jàppe Baay Faal ak li mu doon bokkul mm-hmm. dëgg la mm-hmm. maanaam dundam dafa dund yàlla waaw dafa ne kër sëñ bi di liggéey di liggéey di ba ba ñaq wi xam aw ñaq ni muy def ni muy def yaram mm-hmm. sëñ bi digal ko ne ko demal fexal wut loo sol mu génn ndox ñaari jéego rek ci àll bi yem ci ak guy goo xam ne dañ koo sëgg ba mu set mu dëppaat ni guy gii fi ko boroom tegoon fekk nañ ko fi sëgg ko ba mu set te jógu fi te boroom dana ko fekk woddaat ko daal dellu ci ab liggéeyam ku dul fàtte guy rek doo fàtte nit. allahu akbar. xoolal boobu dimension loolu mas ngaa kon nañ jàngal wax ñu kan mooy Cheikh Ibrahima Fall. du soli sagar yii du sëqal ni bopp yii du tilim yii xool li ko seex li ko sëriñ Tuubaa defal te ba tey jii benn Baay Faal du dañ di raamal ko sant Mbàkke fu mu toll fu ñu ko gisee dañuy làmm sa addiyee joxe ab socc boo ko amee da ngay nuyoo boo amee ab dërëm da ngay nuyoo boo amee ab tàngal da ngay nuyoo waaye loxoom neen moom dañ ko jox sañ bi ndax maal ko moo tax war ma ñun ñoo ko moom moo tax sëñ Muntaxaa delloo ñu ko war may Tuubaa ji sëñ mu sëñ Fallou Mbacke dana ko woon sa maam moo indi ak taalibe bi fii ci réew mi am réew na ku fa indi alal lu fa réer moom lañ ko war a laaj. dëgg la dama bëgg nga yebalal ma sa jaboot gi ñu ñëw jàngal sama sama dong yi ay ak sama mag sëñ Fallou mu sëñ Moraminta xalifaam ak sëñ Moussa Mbar ak soxna Ndeye xalifa ci loolu la ñu yóbboo ñoom xam nga jëwriñ dafa nekkoon. di jàngale ak taalibe daawut ab lal def wut ay saako def ci pajaas def ko ab lal def man laa teg ci ba sëñ ne ku moom lal bi diw ku moom lal bi bu ne waaw mu ne man dane ko ah yow li ñu fa indi woon ko ne man kat lal bi du ma fanaan te man seen bi laay fanaan tey dañu ko yulli ci saasa waaw ku ne ci daara di jàngale ak yow boo fa nekkee ci daara di wut pajaas boo fa boo fa jógee looy am jamono yi wut nag seex bi ne woon lu fa nuru ak am ak ñàkk la waaw kon lu fay nuru ak wut ak ñàkk la. jërëjëf Fall am nañu mbégte. macha allah sëñ Mouhamadul Moustapha Fall. alaaj Pape. Oustaz Pape. tey jii. Oustaz Pape am naa fi àddiye joo xam ni moom moo ko moom. waaw waaw moom Lamine Faye moom. suñu bàyyi alaaji mbakk yu fay Lamine waaw envoyé na fi benn somme nee na nag bu ma ko wax mhm. waaye addiya la joo xam ne yegg si na ci man mhm. te moom moo ko moom mhm. mais dama bëgg balaa ñuy génn ci weeru koor gi nga xam ni ci la ñu nekk ci addiyeeg ndog yi ñuy yóbbu mu wax ñu diggante Baye Fall julli ak woor gi nga xam ni li ci ëpp ci li ñuy wax ci ba ci foofu rek la ñuy taxaw question boobu moom eh yaakaar naa ni mm-hmm. Baay Faal yu bëri ñu ngi eh yónnee di ko laaj ndax ñoom xam nañ lu tax mais dañoo bëgg sëñ bi wax ñu lu tax euh, beneen taalibe bu ñuy woowee Papis bi di ko nuyu bu baax taalibe murid cest moom daf ñuy fàttali sax ni màggal gi 147 jours ci des am nañ fi addiye Khadim Diallo Ifka boutique mi ngi lay jox 10 mètres bazin nee na dinañu ko jox nga mun ci jot ak ku tudd Ousmane Diop Padoua nee na may na la trois ans entretien électrique ci installation booy ti def. kon insister ci sama laaj ma ko ci sa laaj bi waaw euh, julli geeg woor gi diggante Baye Fall ak julli ak woor ndax. taalibe Baye Fall yu bari ñu ngi ñëw ne di ñu ko laaj comme ni ñu ko waxee ñoom xam nañ ko. du dëgg ñun ñoo ko xamul sama laaj man tamit. jox leen ma seen laaj yéen ñëpp teg ko sama loxo laa ilaha illa laa Fall ji nga xam ne fu ñu ko yëkkatee yaram yëpp daw. liggéey liggéey bi ak ndaw ñi liggéey bi ak ndaw ñi. question d'actualité la question bëri na. léegi oustaz Pape yóbbaale sama Fall na mhm. maanaam defarug maam Cheikh Ibra Fall mhm. cheikh yi mu defar mhm. boo ci mënee indi kel ñenn rek ak ñaari doomi la joor yooyu yaa yóbbu mbaaxaan ca xëfa yaa tax ba xol ba dootul buur <laughs> fob yëti ngëm di la ji pexe yaa tax ba Abdoulaye xaar taxaw ci bunt di fa xaar <laughs> woyof lu bay ma ci Dakar ah ngir sant Bamba muy joxe léegi nag waxtaan defaru eh. defaru moom Cheikh Ibra Fall faaw nga ñëw ci ay nag jërëjëf El Hadj te te te Oustaz Modou Fall mandéegu leen ci Sidi Ibrahima ah doy na waar leen ci Cheikh Ibra euh, ah naanagu leen ñu laaj ñii seetaan mandéegu leen yéen ci Cheikh Ibra ba tey ah kon ay tananu àggali tuuti rek mais Pape <laughs> waaw Fall xam nga xam nga wax bu jógee ci xol mhm. ci xol lay dugg mhm. te li gën a neex ci waxtaan wi. Mhm. man man gaaw maa mhm. man ku ma xam-xam ni gaaw maa signé. yow sax. man damaa compliqué tuuti. mais tey dañ maa convaincre. baay bi muy yuuxu sànq fii kenn dégg ko. parce que dafa daa toog ba jàgg rek yuuxu. ni mën moo neex. wallaahi waaw mën dafa neex. loolu Pape Hann mii xam na ko ci man. Mhm. souvent bu ñu indee waxtaankat bu dawalee dix minutes dina xam ndax joxe naa wala joxewuma mais sëñ Moustapha daf ñoo convaincre li tax mu convaincre ñu mooy li mu wax lépp génnul alxuraan. sëñ Modou Aminta Fall la bàyyam tudd nag. surtout loolu parce que wax. bu delloo ci alxuraan ku weddi yàlla nga weddi. Mhm. mais waxam yépp gis nga ni muy def alxuraan ci. daf lay yéem sax façon mokkal bi ak façon dégg bi. suñ daara la. mooy idéologie Baye Fall nag en réalité. parce que parce que lii daal Pape vraiment. suñu ko waxul ñun duñ ay gor. mais mandé gu leen ci Cheikh Ibrahima. non mandé guñ nag. yow itam ni ñu ciy toppee neex nañu. <laughs> mais mais laaj waaw yow lii nag ah. Ah, première partie la ah. li première la ah ñu ni première partie la te foo ne première partie deuxième partie dina am deuxième partie dafa war a am ci Cheikh Ibrahima mandee guñu moom takk na ndiggam mi ngi jaabante moom nee doyalul te moo yor caméra yi waaye daa mujj teg caméra yi di servi café gi loolu ma jaaxal ah. toog gi ma toog fii wàññiwu leen dara <laughs> léegi kon deuxième partie dafay am yaa Oustaz Alaaj Pape deuxième partie waaw ci Sidi Birahim mandoo mandéegul ci maamam. bilaay mandéeguma pap te sama la ñuy wax. mais laaj damay def lu gën a garaaw mandiwul. damay romb sëñ bi jox jox jox Moodu Fall ci boppam tey àddee cinquante mille. donc ma joxal la ko. dana xam moom xam na ne ci jot. Moodu xamante nañu. <laughs> man maa wax ne. man satu mbir ma mi ci benn baat bi. maa wax ne damay romb sëriñ bi jox Moodu Fall ci li mu wax. Mm. macha allah cinquante mille xam nga lu tax. nangu dafa neex. Mhm. ndax gis nga li ñuy wax rek. Mhm. lu jóge ci bopp rek ci bopp lay dellu. Mhm. te boo nangoo xam nga mbir mi jarul ñu di ko mettil sëñ bi gis nga fi mu teg waxtaan wi. te ku am dégg rek di nga dégg li muy wax. lee neex faal yaaram yàlla na nga fi yàgg te wér. allahumma jërëjëf soxna Fatim <laughs> Fall surtout maam Cheikh Ibrahima Fall eh. ca Amérique mu ngi mi ngi seetaan. maanaam Sidi Ibrahima daal euh, sëtam yëpp. alañ baab ak njabootu seexul xaddim gi. ak jullit ñi. ndax gis nga nit ñi. ñi jàngul sax xam nañu xam nañu lu yenn maanaa. wallaahi ñi jàngul. Mhm. xam nañu borom xam-xam. Mhm. lu sensé. wax naa li lii arab di wax naan takkal lam tuaraf waxal nu xam la. waxal bu waaw waxal rek nu xam la. waxal ñu xam waaye Sidi Mouhamadul Moustapha. moom avant muy ñëw ci Sidi Birahim. Mhm. xam-xam la indi ba noppi. ubbi xel yi. nu mën a jàkkaarloo ko moom moom universitaire la. waaw waaw kay. mu mu wax ñu kanay Cheikh Ibra. léegi tey daal bég naa. mais mais mais bëggoon naa bëggoon naa sëñ bi. Fall Yaram nga mosol ñu tuuti rek tuuti rek. diggante Cheikh Ibra ak Chérif Abdourahmane Fall Tilala la. ah sama. Chérif Abdourahmane sama yëf la waaw. yàlla yal na moom dafa yéeme woon Serigne Mortala Fall. Ah. gépp nu leen di dokkeel. wallaahi. loolu de moom moom laa bokk na li ma gën a sawar. macha allah. <laughs> diggante ah, hmm, ci laay njëkk ñëw sax. ndax ñetti weer yi mu mujj def ci àddina tàggale woon ko maam moom moom moo taxoon damaa ñëw Dakar luy woon fi appartement ne ci wetu këram ñu daa toog di waxtaan ba quatre heures du matin mu ngi ma ma dem ma dem ñibbi su ma xëyee looy togg lu may togg añ la may wax loolu mosu ko wax kenn waaye loolu lépp dafa am baat bu mu waxoon woo ci ay taalibeem loolu lay dëggal ndax mhm. sëri boo kenn du ko xool ni du naar waaye ñi waxul bopp bi ne du Baay Faal ca kenn ñëwee ko mu ngi nii hmm? xoolal jëmm ji doo ko génne gànnaar waaye boo xoolee bopp bi doo ko génne Baay Faal ga <laughs> bàyyi sëñ Mourtala wallaay bàyyi Xadi Faal Mourtala Faal ndeysaan moo tax waa maa ngi leen di nuyu wallaay bàyyi Pape Cheikh waaw di nuyu sëñ sëñ sëñ Abdou ndax li ma fekk seen bàyyi xam nañ ko bu baax a baax man nag dañoo wax ni coloré mhm. des ko doon waaye man coloré sama coloré ak sëriñ dama ko doon ndax sama mag bi mu ubbee léegi bi may tàmbali moom moo doon xaritam sëñ Cheikh Cheikh Ibra Fall ñoo defoon nii ñoom ñaar mhm. bi mu nelawee am na juróom-ñaari at wala juróom-ñett yoo xam ne maa woon ci daara ji di tërbiya xam nga mhm. nag ñun ku jàng ba ñëw da tërbiya ñun ku jàng ba bind kaamil ci daara ja soo dikkee dangay ngay dem tërbiya ji ndax sa wajur naan la le sa sose woon yoon wi laa bëgg nga ñëw defe ko muy dem tërbiye ji foofu nag boo demee danga nga fa fekk diwriñ joo xam ni dangay jàng ba xam moom te du xam dara moom yàlla rek lay yàlla rek lay am moom lay xam kooku day xëy di la wut di la soqiloo xam nga soqi oustaz xam nga soqi de. soqi déedéet. fas wu ba noppi. ah ñu koy defaraat. waaw yow nga xëy dem teg ko ci ab chargé ko def ko ci ab sare dem turi ko ci àll bi dana xëy dem wut loolu am ñax. dana xëy dagg loolu ay bant. Mm-hmm. dana xëy bay lool dana xëy dana xëy dana xëy yow mi jàngi ba ñëw ku mel noonu lañ lay booleel xanaa kon bëgg nañu soxal toj. dëgg la. mu lay def looloo xam ne mosoo ko xam ci àddina waaye dañoo bëgg nga nangu. Mm-hmm. ndax li nangu fii la nekk. nekkul fii nekkul feneen nekkul feneen. la ma ci dugalaale question soxna si. Mm-hmm. ba bul maa ñëw ci sërif ndax julli daa am lu muy jariñ mi ngi mel ni médicament dafa am lu muy jariñ. waxuñ ne ku dàq fajo kenn waxu ko ku gën a wér lañ laaj ku dàq faju wala moom la yaay oustaz inna salaata tanha anil loolu lay jëriñ waaye bu ñu demee ba amul jenn jàkka joo xam ni benn oustaz wala benn imam ñu wut suñu ay daalam teg jàkka joo ab téléphone dugg kon lu ñu def lu ñu def ñun ñi est-ce bi ñuy dugg fii ñu mën nañu fekkoon lii lii lii ab julli war a doon doon nañ ko li gars yi julli gi ñu wax dëgg la suñ dàll yi ci buntu bu lañ koy bàyyee wala suñu téléphone mu bu ñëwee fa lañ koy fekkaat. <laughs> bu dee de doo ci jot. <laughs> loolu lañ soxla Cheikh Ibrahima loolu la soxla xam na ne nit ñi li yonte bi doon li yàlla doon wax def ci yonte bi def nañ ko ba sonn waaye gisuñ benn résultat. <laughs> dëgg la de. moo tax bu ñëw andi lii. moo tax ma wax la ko wax naa la ko ci bi yéegle yégalee niveau bi léegi doo leen ko dégg yéen waaye ustaas dañ ko dégg mhm. moo tax man la foo war a fekk ñun la fii masque yet moo fa ne nga fekk masque yet ci am na ko fa wutu wax naa la léegi la boo demee ci ci aéroport xool avion wala rombee ngeen naaw ni da ngay waaru ci naaw ci da ngay ci li naaw waaye demal aéroport xool xelu mi daw doog a naaw da nga xam ne kii naaw rek ko war mhm. Baay Faal yi ñoom foofu lañ nekk man kenn na maa ñëw na xool ni ma ni ma doob jullit Hmm? déedéet loolu la ñu soxla. mais mais kàddoom ya kàddoom ya kàddu yi daan dénkaane moom Cheikh Ibrahima muy ay baat yoo xam ni da nga naan moom Cheikh Ibrahima Fall wax na nangam. moo wax lii loolu moom ab pire la ci sama yaay def ma ñëw ci sërif te ñëw ci loolu. waaw sëriñ Abdourahmane. sërif li ko booleeg Cheikh Ibrahima Fall waxu ko ñëpp. waxu déedéet te waxul lépp tamit. waxu ko ñépp waxul lépp. déedéet man mii xam naa ci loo xam ne dama ko wax ba at mi tukki. Mm-hmm. waaye waxu ko ñépp waxu ko lépp man mii soo masaan a gis day day day mel ni day mel ni jëmmi Cheikh Ibra Fall gis bëgg ma ba yemalewu ma dara te bi ko bi mu ñëwee bi muy nekkee Côte d'Ivoire liggéey liggéey na Cheikh Ibra fukki at ak nangam ko xamul ko sant wax léegi ko kooku fu fukki at nangam tubloo ay ay ay ay ay ay yéefar ami Baay Faal te musoo musoo gis ku sant Fall musoo gis xalifa Cheikh Ibra Fall booba lim xam fu ko xamee am na fu mu ko xamee Serigne Touba bi bi ko Cheikh Ibra di wër ku kan moo ko xamal est-ce yàlla dafay jóg déedéet hmm. te Cheikh Ibra ne gis nga ni mu amee fulla nga bokk ci moom te bëggoo ko nga sori ko te bëgg ko moom foofu la amee fulla moom da lay xëcc taf la ci boppam sërif dafa am jëmm yoo xam ni mënu leen woon a ñàkk jël def na ay Baay Faal demal këram nga xool ay ancien agresseur nga fa fekk ay ancien mbëri làmb nga fa fekk ñoom la jàpp jàpp leen tasxiir leen wul leen bañ nooy mu sëf leen ndax sëñ bi seex bi waxoon na ko mbàkke bala nga leen wulli bala ngeen a sëf dee leen wulli ndax boo leen bu leen sëfite wulli woon dañu bajante kon li yor day tuuru hmm, hmm. moo tax da leen jàpp wul leen koo ci gis da jàpp da nga jàpp ni kii jamono yi Cheikh Fall la woon suñ muru gisee ne soo ko xoolee xam ni da jàpp ni kii ñu àndoon Cheikh la bokk mhm. Baye Fall dëgg mu du gisee te bi mu dogee bi mu dogee bi yoon bi mu dogee yoon dund na lu yàgg dogul yoon wi te xool ko ma nga liggéey boobu la sëriñ liggéey Cheikh bi loolu moo ko booleeg moom muy Cheikh Ibrahima am lu mu koy def loolu xam ne sërif waxu ko ñëpp te waxul lépp. isa mbay grand yoofu ñu koy nuyu. waaye résultat bi ngay xool di ko gis rek. xam ne ñii defar na leen. lépp loo xam ne yoonu murit ma ngi koy taxawal rawatina kër Cheikh Ibra man xam naa nam ci daay jëfee am na loo xam ne sama loxo bii la jaar di as gor di ab jullit di deret yoon bi sallallahu alayhi wa ba noppi doon ab Baay Faal loolu sëñ bi yombul yombul de te waa kër Cheikh Fall yëpp ko ràññee sëñ Moussa Fall kan lim daa wax Baay Faal la ko daa wax lim daa def leen teg moom lay teg moom sëñ Cheikh Fall Khady Gueye nga xam ni bisu ñaar fukki fari koor gi muy def ci sëñ Cheikh Fall Khady Gueye la ko xoole ndax sëñ Cheikh Fall Khady Gueye jamono sëñ Blaye Fall Ndar la ko tàmbale woon xamuñ nag surtout Cheikh Fall bu ko njëkk a def moom sëñ Blaye sëñ Cheikh Fall Khady Gueye ndax moom ko yàgg moom moom la ñuy def Kaolack def na ko ba jóge fi do xalifaam na fi sëñ Fall Cheikh di ko def sërif ak sëñ Cheikh Fall liggéey nii la woon photo yu yàgg yi ngay gis xel kom ñoo ne ko léegi ñoom ñaara woon loolu lu mot bàyyi xel la. Mm-hmm. boo ko ñëwee na gis ko ak ni mu déggee tubaab xam nga sërif foo diggee mu ni Sidi Ibrahima rek xamal ni maam am na lu nar a taal bu jàkkaarloo moom bañ la kii <laughs> bu ne la kii. rek xamal ne am na lu daa bëgg a tàng day bëgg a tàng Modou Guissé mi xam ne li may wax xam nga li bi muy ñëw léegi sëñ bi bi ñëw léegi oto bi def naa lu xam nga gis nga may jàng alxuraan di ñàngal di tarek lu ne waaye boobu damaa bëgg damaa bëgg sama yaram tàng rek sërif na sërif bëgg yaram tàng Cheikh bi rek lay xool bu ne ko jàkk bu ne kii rek xam ne yëg na boobaa nag am na lu mu bëgg a taal te te te oto bi sofewul loolu sofaas la man xam naa ci dara bu wér a wér def na ñen ñetti weer yoo xam ne dénk na ma loo wax na ma loo xam ne ci àdduna kenn mënut a fexe ma wax la ko du ma ko génnee du ma ko génn mukk ci àdduna xalaatuma ko mënumaa neexal ma wax ko du ko wax waaye daal lu mën a xew mooy ab Baay Faal la bu bëgg Cheikh Ibra Fall di dox doxinu Cheikh Ibra. jarakallah sa laaj bi. waaw euh, kaddu kaddu yi Sidi Birahim ya ay dénkaaneem ay dénkaaneem ya waaw. Cheikh ci dundub bii di nga lii ñuy wax téere bi ñuy wax dundub Murid Saadix sama nijaay moo ko bind téere bi mhm. sëñ Modou Ablaye mhm. sëñ Modou Ablaye moo doon xalifa sëñ Ablaye Fall Ndar mhm. nee na Cheikh Ibra nee na sëñ Modou Ablaye nee na Cheikh Ibra nee na lu yàlla bind sëriñ Tuubaa ci ëpp fit lu yàlla bind la wax nee na sëñ Tuubaa ci ëpp fit la tax mu wax ko nag waxu ko nee na sëñ sëñ sëñ Masamba Ndiaye waxi Masamba Ndiaye mu ni faal mu ne ko liir ab liir bu nekkee ci biirum ndeyam xanaa foofu ab réew ma mu ne mu ne waawoo mu ne ko xanaa bu ñëwee àdduna mu gën faa yaa mu ne waawaaw faal mu ne ko ku ñu tudd di ma tudd mag sëñ ma ne àdduna ëppee biir lañu ëppee biir biiru fii nee na lépp lu liggéey di maye rus naa koo ñaan koo mas a gis mun la Cheikh Ibrahima ma ni Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima ñaan nangam. am ci àdduna liggéey bi ñu wax léegi ba mu koy koy def ay bitig cinquante bitig naa yoroon na ko ndar mbay mii nga xam ne ñoom la moom la ñuy wax mbayum dër mii da ko daa def tubaab yi ci leen jàpp wul leen ci leen faj am nañ koo xam ne teewoon na am njaboot sax ci moom ki ko tudde doom ci loolu la ko loolu la ci ci loolu tuddee nee na alxuraan ba alxuraan jeex araf wu ci ne seex sëñ Tuubaa bind na la tax mu jóg man jëf naa la tax mu jóg. man jëf naa la tax mu jóg. waaw araf wu ne nee jëf naa la tax mu jóg loolu nag buñ la buñ la ko waxee buñ la ko la jaaxal waxoon na ni. ku ñu wax sëñ Modou Mbodj la ko waxoon. Mhm. ni ko sëñ Touba xasida sëñ Touba ñaata lu mu bind tot 7 tonnes 500 la bind lañ wax ci liñ mën a gis. Mhm. nee na Cheikh Ibrahima nee ko sëñ Touba xasida gum laata ma koy way am na sama dënd bi ñeent fukki fan. moom Cheikh Ibrahima wax lii. waaw na xasida gu sëñ Touba bind laata ma koy way sama dënd bi am na ci ñeent fukki fan ñooñu. waaw 40 jours ñoom seen seen seen seen diggante mënu su ko xam mënu su ko xiyaas ndax lu xel dajul defu ko raas lu xel dajul mënu su koo xalaat ndax bu xel buy xalaat day xalaat day xalaat lu mu daj waaye lu amul moom mënu su xalaat te xel mu mucc nag mu sell bu xalaatee ba pare ñetti mbir la koy takk nangam ji mënta ñàkk ak nangam ji mënta nekk ak li mën naa mën naa ñàkk. dëgg waaw. mooy nag li mën a am am lu mën a am ba noppi am am lu mën a am bu noppi amul am lu mën a am a ñàkk li mën a am te am moom mooy yàlla li mën a am amul. mu ne Ababacar Sadikh bu muy dund. Mm-hmm. xel danga woon na mu mu mu génn ci islam xel nangu woon na ko. man mii nii di xel nangu na loolu. Mm-hmm. loolu mën naa am mën naa ñàkk. Mm-hmm. li am te amul nag mooy sunu borom fii la tàmbaliwul fenn kenn ci mbindéef yi tamit tàmbaliwul fenn. loolu moom jaayis la. tark la. mustaxil la kon. mustaxil. Mhm. waaw waajib jaayis. mustaxil ak mustaxil. Mhm. te ñun soxlawuñ jëmm ju léegi pour ñu am luñ bëgg ndax nit ki nga xam ne day yor ab téléphone am. Mhm. di wax ab coroom. téléphone wéet ci ab néegam la muy lam teewlu ba ko yëg su ko defee ca boroomam am ko. <laughs> billaahi lam teewlu. waaw. ba ko yëg waaw bu ko defee ci boromam borom day ñëw yàlla noonu lañ koy gisee. soo bëggee mu ñëw noon ngay def ndax da yaa ko waajal teewlu ko. Mm-hmm. moo tax dafa ñëw. léegi nag soxlawuñ jëmm ju soxlawuñ jëmm ju ne léng borom soxla du du jiir mu du xarat jiir mu mm-hmm. mooy jëmm ju ne man nga ni caméra bi mi ngi dafa dafa gudd dafa gàtt. Mm-hmm. ma nga ne taxaw léegi gudd gàtt est ce que mën mën nga koo dindi daf ko fee taxul ci jëmm déedéet léegi xees ak ñuul nag mën ngaa génne xees rek teg ko ne déedéet gàtt nag déedéet rëy ak tuut yàlla jooy naag yooyu yëpp kon soxlawu jëmm ju ni ngir ñu am lu ñu bëgg mooy li ngeen doon wax léegi ci wàllu julli ak koor ñun li julli di def ñun foofu lañ toog man seexlu naa takk ab montar wala ab jaaro man mii maa ngi nii ab lam moom dama ko jëlale mhm. maa ngi nii daf maa ko seexlu parce que kësi murim dañu koy tere sax te Baay Faal bépp boo xam ne yaa ngi koy déggal da koy tere ku mas a gis nga takk ko da koy tekki joxe ki bàyyi yooyu nag waxale wuñ leen waxale wuñ ko te mënoon nañ ko nag bu fekkoon na nga dajale alal dong wala ñu bëgg mbuum mu rafet wala ñu bëgg leneen dañ koy def. Mhm. waaye montre la wax nii waa da nga gis nga dox ba gis Baye Fall bu ko takk ni surtout Cheikh Rafal laa sëñ bi nag daana ko tekkee da teg loxo Baye Fall jox ko ab taalibe. su ma su ma bëggee ñëw fii sax ñu bëgg maa solol loo xam ne dafay réy wala dafa nangam dama koy ragal yàlla xam na ko léeg nag ñu man ma ne ba dugal ma ci yenn waaye yooyu sax dama koy xaw a dama koy xaw a ragal. ndax nit lu ko yee du ko baax nit lu mu tàmm ba yew ba yew ca dootu ko baax. jërëjëf am nañu mbégte. macha Fall Yaram ah El Hadj Pape Seydi Mouhamadul Moustapha Fall. samaam bég na de. wallaahi samaam bég na de. wallaahi ni nga serelee xolu taalibe yi. yëgal ni samaam bég na. wallaahi mission bi yaa ngi nii nag. ndax mag bu liggéeyee. Mm-hmm. faaw am ñu ñu ko pelee deel. Mm-hmm. mag bu liggéeyee alaaj pap mhm. li yonent bi waxoon te jabalu rahman ne balliru anni walaw aayatan mhm. na ngeen ma jotalal donte benn aaya la mhm. tey jii ñi xamul woon Seydi Birahim xam nañu ko wallaahi ñi ko bëgg gën nañ koo bëgg ñi ko bàyyiwul woon xel tey jii bàyyi nañ ko xel ndax xam-xam bii mu génne boole kook yar mhm. boole kook sell waaw mhm. ah, boole kook waxin xeetu waxin goo xam ni pénétré na sunu xol yi mhm. dugg na ci waaye mu waxee ko xam-xam bu wér ndax nit ñi dañu am xel te dañuy bàyyi xel dañuy xalaat bëgguñu ay waxi xuraafaat dañu bëgg booy wax ak nun nga wax ak nun xam-xam bu ah, wér ay njàddiri dëgg a toog ah, waaw ay njàddiri toog professeur dëgg moomu na a wax lu ñu dégg bég nañu. wallaahi kon ñu delloo la kàddu gi rek bu ko defee. waaw ñu tour de table. Ah, bu ko defee ñu xam ni. Mhm. lii première la. Cissé faaw mu delluwaat ca àll ba. waaw demaat yëgal yëgalaat sëriñ bi ni ko. wallaahi day ñëwaat. incha allah muy deuxième partie. ñun dañuy tour de bu ko defee dinañu tëjee sikkar su neex pour apaiser waat. Euh, euh, kër yi euh, jotaay yi ni ñu ibbee sànq noonu la ñuy tëjee ak illa laay faal ji ci barkeb Cheikh Ibra kulim juum mais bëri ngeen vraiment ci euh, doon ànd ak ñun sànq ba tey euh, biis biis nag mënul ñàkk comme Oustaz Pape Hann diggé na deuxième partie donc biis biis bi du ñàkk euh, Soda Kassé ñu ngi lay ziar bu baax Cissé Ibrahima Cissé bu bu télévision Futur Média moom tam at bu jot nii yàlla na yàlla gën ko dëgëral muy gën di jàpp ci ci liggéey bi yaa Cheikh Dioum moom suma rakk la depuis États-Unis Serigne Touba rek la bëgg ak lu bokk ci moom donc tey kontaan na. ci euh, guddi gi ñu jagleeloon Cheikh Ibra di ndokkeel euh, système Maria bu Sud FM ak 7TV euh, moom itam bëgg lool ku tedd ki tey nag xel yëpp demoon ci Bala Samb nga xam ni fu ñu tollaan ci guddi maam Cheikh daf ci def lu yéeme sax moom Bala Samb. yéeme lu yéeme ba bi muy génn àdduna mi ngi jóge ci bisub maam Cheikh Fall. Mhm. ca ëllëg sa mu jóge fi. Mhm. di woon maire boo xam ne mhm. maire gi yanuwu ko woon. waaye dafa nekkoon taalibe Cheikh Ibra mhm. Pala boo ko musaana gis euh, li mu lay njëkk a wax mooy mbokk taalibe noo def mhm. nekkoon Baye Fall dëgg dëgg Baye Fall mhm. moo tax Pape Cheikh bi nga bi nga ko tuddee sama yaram dafa daw wallaahi ki nga xam ne mooy tata di di magam itam ñu bokk ndey di rakkam ñu bokk ndey ak baay euh, ñi ngi leen koy masawaat seen waa kër yëpp jamono ji boo ci tollee sa xel day dem ci ñu bare wallaahi wallaahi Pape Cheikh bi muy wax léegi naan yori milliard wala yor ay million te te jëndoo ci blal sama xel daf na yar ci sama sëriñ bi ma bi ma bi ma jokk man ci sama bopp mhm. muy Cheikh Mamadou Mourtada moom Cheikh Abdoulaye Lahat mhm. kooku dama koy woowee ñëpp dañ koy woowee Baye Fallou Cheikh Abdoulaye Lahat mhm. ñëpp di ko woowee Baye Fallou Cheikh Mamadou Mourtada mais man dama naan Baye Fallou ku bokkal askanu Mbàkke euh, sëñ Mourtada mën a denc milliard te du tabax këram ci moo mën a denc milliard te foo ko fekk mbubb mi sol boo ko laajee mu summi ko ci saa la sëñ bi wax bëggul dara bëggul dara moo daan sëriñ Moustapha Fatikat mi ñu ko tuddee daan na def sama kër weeru yàlla fii ci Ndakaaru ndax Fatikat mi ko jur maa koy jox sagari njaam moom itam Moustapha maa ko daan jox sagari njaam kon tey mbégte rek la sunu xol yi feesee wallaahi caat nee na <laughs> bul laaj ay laaj laajal bakkan nee na boo laajee bakkan ngir Cheikh Ibrahima mu joxe ma <laughs> waay <laughs> caat sama rakk sama xol ah yaayu Soda Mbàkke ñu bu baax eh, am na appel bu ñu waroon jot normalement ndax sànq ba tey eh, sunu sànq ba tey ñu ngi xaar euh, ndax moom dafa bëggoon participer rek très rapidement pour bu ko defee ñu tëj yaawu saas muy euh, euh, soxna Ndiaye Fall na Ndiaye Fall nag laa bëggoon rek ñu jël ko ci téléphone bi rek pour tëj quartier général bi et puis Alima indi suukaru kooru Nescafé voilà ñu jël suukaru kooru quartier général itam di kaamil alxuraan rek la sëñ bi waxtaane tey Cheikh Ibrahima nag alxuraan rek la moo tax mën nañu joxe suukaru koor bu ëpp euh, kaamilu alxuraan on va prendre ça Mamadou ci ginnaaw ñu jébbal ko sunu sang mu ko defee bu téléphone yi yembee ci ginnaaw rek ñu jël pour mën a tàggatoog téléspectateurs yi dellu si waat. waaw ca kanam yi tuuti. puisque le 14 matin enfin quatre heures et quelques. xam ni mooy euh, doog jot. waaw jërëjëf. voilà loolu mooy. Euh, ubbi ko journaliste la ñoom xamuñu lu neex. journaliste ils sont carrés ils sont carrés carrés carrés carrés. nu mu ubbi ko. bu doon ñun animateurs yi mag abaa ubbi nañ ko wane beauté bi xam nga kaa mais ñoom ils sont voilà émission quartier général a offert un Kamil à l' mais ñun dañ naan Kamil bi personnalisé dañuy araw cadeau. Mm, ak déontologie agréable oh oh et transmettre des ondes positives oulala waaw <laughs> mu ngoog ñu ñu ñu jokkoo ak euh, téléphone bi léegi nu mu gënee gaaw ak euh, soxna Ndiaye Fall Fall yaaram ñu ngi ziar bu baax di jéggalu ci guddi gi ak ni jotaay bi yàggee waaye ki ñuy waxtaane jar na ko ñu ngi lay ziar di la déglu Fall yaaram waaw Fall ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar Fall Yaram. di la ma yokkal ci téléphone bi ñu mën ko dégg bu baax. waaw. moom kenn magu ko. ma di ñaanal nag ci barke waajuram ak liggéey waajuram wu sell wa. barke Soxna Ndiaye moo nekk ni ci téléphone bi. waaw yàlla na ko yàlla taxaw. yaa na la yàlla taxaw. amin amin yàlla na nga gudd fan yàlla na nga wér. amin Fall ñun ñëpp a nag barke Seer Fall kenn ne kenn ne kay. ñun ñëpp a toog di di seetaan ak a jublu. wallaahi. soo xool lu guy. jërëjëf jërëjëf waaw. émission sama yaay am na. voilà je waaw waaw sant yàlla rek sant yàlla mais mais mais mais mais Cheikh Ibrahima moom lan la. kenn da koo xam <laughs> mais Sidi Birahim ñàkk koo xam a tax moo war a liif <laughs> bis bu ne ñu ngi gaa yi ba ba li garaaw mooy Sidi Birahim ba tey kenn miinu ko man loolu mais man man moom lan la koo xamul moom lan la moom waaw ah waaw Mamadou Ndiéguène ca Thiès ca Thiès daan na wax ni mhm. Cheikh Ibrahima mi ma gis mhm. dafa njool ca kaw mhm. xees picc rafet bëggul ku dul seexul yi daan na romb moom Ahmed Baro Njegéen boobu sëriñ baa ngi ca liggéey ba mu na mu koy wax ne ko li tax ma bëgg la da ngaa nduróog sama waa ji wallaahi wallaahi waaw maa ngi nuyu soxna madame Mbacke euh, euh, Nabou Njegéen Seynabou Njegéen mu ngi dund message depuis sànq moom mi ngi mi ngi moom dafa bëgg Sidi Birahim ma pend sekk moom nelawul waaw nee naa ko dinaa la bloqué ndax. ndax Cheikh Ibra nu koy nuyu. <laughs> ndeysaan Sass Pape waaye mi ngi woote rek. Sass Pape ci sa jërëjëf kontaan na bu ñu waxee maam ci Zahir. Mhm. rek da koy bëgg. da nga koy bëgg baatin moom kenn ñëw ko fa mais Zahir rek. Mhm. bu ñu la waxee Cheikh Ibra ni mu meloon ak ni ko mhm. yàlla bindee. rek da nga koy bëgg. et puis et puis l'incompris bi euh, damay dégg ci tubaab ñuy loolu loolu doy na mooy li ma laaj léegi Cheikh Ibrahima mooy kan. mooy li ma lay wax rek. moo la mooy lan. fi mu toll nii Seydou Mouhamed Moustapha. waaw moom ñun ñi mu daaneel moom moo njëkk a daanu moom. moom bi muy wax xam nga fii uh-huh. tàngul. Uh-huh. mais mi ngi ñàkk tooy xëpp. moom ci boppam. Uh-huh. moo njëkk daanu. maam ji la bëgg. waaw maam maam ji la bëgg. mooy Sidi Birahim kenn da koo xamul. wallaay kenn da koo xamul. kenn da koo xamul. kon tubaab yi njëkk a daanu. wallaahi tubaab yi. xoolal gouverneur yi ko tuddee doom tubaab. Noël Eugénie Blaye nekkoon gouverneur de l'AOF à l'époque à Saint-Louis moom dafa dafa amoon feebar boo xam ni la ko doon faj mooy tool tool maam Cheikh Ibrahima Fall nu mm. mu santoon moom Noël Eugénie Balaye ah Balaye la sant kooku tudde Cheikh Ibra Balaye mm. Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra Balaye am Carpo tudde na doom maam Cheikh Ibrahima Fall oh Cheikh Ibra Carpo nu mu xam na la xamante ak maam mm. gis nga Saint-Louis mm-hmm. maam Cheikh Ibrahima Fall yoroon na fa lu pour treize titres fonciers mm-hmm. daan bay bay xam nga bay mm-hmm. ay tool léegi nag bañ ko fa jëlee yóbbu ba mu demee fële ca teseneer gànjol mhm. sëriñ bi bay yam doon def foofu légumes ya mhm. demoon na ba tubaab yi seeni soxna mhm. daaw ñu jënd lu dul légumes yi maam Cheikh Fall doon jaay foofu ah, mujj gi nag gouverneur bi gis ni légumes yi muy jënd pureté bi ci nekk mu laajte kan mooy jaay légumes yi ñu ne ko légumes yi dañoo ngi koy bayee ca tool yi maam Cheikh Fall bopp jaara mu ni day day seeti maam Cheikh Fall mu takk gàngoor moom ànd ak njaboot gi dem seeti maam Cheikh Ibra Fall ñëw pour maam Cheikh Ibra Fall wan ko nan lay lay nan lay bayee moom dafa feebaroon ñu war ko yóbbu France pour delloo ko mu ni mam Cheikh Ibra Fall dañu maa bëgg yóbbuwaat te man bëgguma dem fii laa bëgg a toog maam Cheikh Ibra ko dinaa la ñaanal nga toog fi waaye à une seule condition nga wax ma fu Serigne Touba nekk. <laughs> mu jàngal ko mbay yooyu yëpp mujj gi tubaab boobu dem na ba euh, euh, Sall Modou semaine bu nekk. Mhm. weekend bu nekk. ci toolu maam Serigne Fall la doon dem maam Serigne Fall daf ko mus a daf ko mujj dafa foofu benn kaban mu fay dem ci maam Serigne Fall. Carpo itam weekend mm. chaque weekend def mm. Carpo itam la la même chose maam Serigne Fall. macha allah Saint-Louis amoon na fa plus de cinquante boutiques. Mm-hmm. maam Serigne Fall port fa la taalibe bi daan liggéeyee. Mm. maam Serigne Fall amoon ay gis nga dafa formé woon sax taalibeem yi ci ñaw ñaw. nga xam ni bëri na ñu daan ñaw foofu ay taalibeem lañu. ak mu ni lépp. ay menuisier lépp moom Cheikh Ibra Fall immensément riche moo tax damay faral di wax ni tubaab bi ñu xam Cheikh ku bëgg xam Cheikh Ibra demal ci archive mhm. li ñu ko tuddee woon mooy lan le ministre des finances du mouridisme ah. te ki ko tuddee mooy ka nga xam ne man bëgguma tudd turam sax waaye daf ko tuddee le ministre des finances du mouridisme parce que at bu ne daan na joxe lu ëpp cinquante mille coono murid macha allah moo tax ba ko gouverneur ba waxee ni ko wax jox la ay traces ci Cheikh ci xam nga loo joxe mun ko wax mun ko mille boobu boo ko compté ak léegi jàpp ni maam Chara Fall am ko maam Chara Fall daal di génne ci saa si jox ko mu ne ko lii dafa bari faaw moom seede mu ni ko sa soxna sama koy seede <laughs> moo faloon Carpo Fall booy bii il bon ah mais bu mu fàtte ni quatre heures du matin dafa jot bi muy wax tudd Carpo dafa tombeek ñuy waaj a tàggoo aussi waaw ay waxi Carpo moom nañ ci ñëwaat insha allah ci comme deuxième partie dafay am voilà bu mu fàtte ni <laughs> dañuy xëdd paa bi war a salaatu jamono bi jël na micro bi. waaw te mu ngi waaj salaatu kon. bu ko yuuxoo te mu xam sa bés guuxaguma ko kon ñu tàggatoo ñu tàggatoo. jërëjëf. <coughs> defe naa sëñ Moustapha ñu bàyyi la nga jox ñu kàddu yu mujj yi. bu ko defee euh, Serigne Modou Aïda moo ñuy tëjal euh, jotaay bi am naa fi nag ay affiche ay programme yoo xam ni xam naa naa ko joxe léegi nii balaa ñuy euh, balaa ñuy tàggatoo ak yéen soxna Kunta Fall mu Serigne Modou Aminta Fall Euh, nee na mu ngi ziar bu baax sëñ Moustapha. Mm. soxna maam Fati Fall moom Serigne Modou Aminta Fall moom it mu ngi ziar njaboot gi yëpp daal defe naa ñoom ñëpp kontaan nañu. Mm. Euh, Fall yaaram yan kàddu ngay tëjee jotaay bi. kàddu yi de xanaa mooy kaddu yi sant ak ngërëm. Mm-hmm. ak di ñaan kilifa yi nga xam ne ñoo moom fii. Mm-hmm. ak ñi ko jiite. Mm-hmm. bu bëndoo joroon naa ko ba sëñ ñëwee. di ñaan bis bi nañ ko jox Cheikh loolu lay ñaan. Mm-hmm. bis bi nañ ko jox Cheikh Ibra ndax moo ko moom. moo ko moom Cheikh Ibra nag ku yaakaar Sëriñ Tuubaa ku xëy war ngoo gontal. kon bis bi na doon bisu Cheikh Ibra maa ngi ñaanal ñëpp nag. Mm-hmm. loolu rek laay tëjee maa ngi ñaanal ñëpp bég naa. jërëjëf taxawaay yi ñi ñi nga xam ni ku ci ne yaa ngi doon yaa ngi doon jéem wut mbubb mu sol ngir ñëw fii wan la ko. Eh. wane ko sol ko ngir waxtaan ci yi Ibra. Eh. mënumaa sol yëpp mënumaa wax lépp wax kenn mënut a wax lépp jëfit kenn mënut a jëf lépp waaye nag le lii nga def bu ëllëgee nga def leneen rek. waaw diw ak diw ak diw ñëpp maa ngi leen di sant. wallaay ku lim juum sax <laughs> jërëjëf Fall dégg nañu xanaa profité ci rek di leen fàttali treizième journée mondial Cheikh Ahmad Bamba euh, ñu ngi koy amal euh, une semaine après Korité. waaw une semaine après Korité euh, l'humanité entière rend grâce à Khadimou Rassoul le serviteur agréé du prophète euh, di marché pacifique bu ñuy amal euh, à partir de 11h itinéraire bi nag Parcelles Assainies unité 17 Mbaaru Serigne Moutada jëm fi nga xam ne ni mooy Padoua kër Serigne Modou Bousso Dieng incha allah le 8 Chawal di une semaine après après après Korité Euh, ci la ñu koy euh, amal am na itam yeneen événement religieux lépp nag du xaj ci émission bi dinañ ci jéggalu bu baax voilà dañuy euh, jàllale benn bu ko defee ñu mën a lalli ba ca kanam ziar général ziar général daara ahfadu maam Cheikh Ibrahima Fall auprès de am Amdi Moustapha Mbend Fall ñu koy amal vingtième jour koor voilà donc ziara bi ñu ngi koy euh, ñu ngi leen koy fàttali tele le vingtième jour de mm-hmm. ah dem euh, dugg nañu dugg nañu vingt voilà kon ziara baa ngi noonu ñu koy euh, fàttali ñëpp numéro téléphone bi di 76 400 474 45 52 voilà li ci des nag xam naa dañu koy lépp rek ba dellu siwaat ndokkeel nag bu baax njabootu euh, Chérif Abdourahmane Fall Tilala bokk na ci Soukeyna Fall Soukeyna Fall suma yaay la suma xarit la ñu dénk ko sunu papa Lamine Faye sa papa Lamine Faye voilà Soukeyna Fall maman Ndoye toute la famille ñoom ñëpp xam naa ni tey seen xol sedd na ci Cheikh Ibrahima mi ñu doon waxtaanee Oustaz papa Anne ñu ngi lay gërëm bu baax mm-hmm. ñu bàyyi la yow nga joxe sa tàggatoo pour téléspectateurs yi ma nuyu suma mag Ibou Diop Ndiaye intellectuel ba noppi toll ba noppi fonk loolu diine ji di ma dimbali ci ay wér dëkk ñoom seen donc Ibou Diop Ndiaye ñu ngi koy ziar Kader Lo nee na Baye Fall la ñu ngi lay ziar Kader bu euh, euh, RFM Mapenda Seck itam ñu ngi koy gërëm bu baax euh, merci ci message yi Serigne Manel Fall depuis Canada càmmiñu Kuti Fall ak Kine Fall moom saa yoo waxtaanee euh, Cheikh Ibra day bokk ci émission bi ak télé bu mënti doon donc ñu ngi koy gërëm bu baax moom bokk na ci ndaw ñi nga xamante ni ils sont très euh, euh, respectés un peu partout à travers le monde ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar Oustaz Pape Anne. jërëjëf El Hadj Pape ñu nañu mbégte di gërëm Serigne Moustapha Fall di yaakaar naa tey ji réew meeg bitim réew El Hadj Pape ñëpp ñëpp bég nañu di nuyu Serigne Oustaz Assane Touré borom xam-xam bu mag boobu boobule. tey jii mi ngi doon ànd ñun di topp waaye soxna Anta Gueye bu soxna Baali. Mhm. Muntaxa nu ngi koy nuyu bu baax moom itam bég na. Mhm. Euh, nuyu yaakaar naa télévision Futurs Médias bég nañu. Mhm. waaye maa ngi jégalu bu baax a baax message yi nekk sama téléphone. dafa bari lool kenn ku ci ne bëgg a wane mbégteem. pour nu jàllale te yow da nga leen di sopp ba. mi ngi noonu ñëpp ñooy bëgg a jàllale. ñëpp laay bëgg a jàllale waaye na ci am ñoo xamante ni booy jàllale ñu ne ah ñii dañuy jàllale yu bëri ba nga xamante ne ñëpp ngay bëgg a jàllale te boo jàllalewul ñu foog ni da nga leen war a jàllale te boo jàllalewul ñu mer te boo doo bëgg ñu mer ah, wallaay te te wallaay wallaay wallaay xanaa ñu ngi ñu jàllale ñëpp rek ñi dañ jàllale ñëpp waaw <laughs> kon Fall di nga ma namm nag après koor gi kon bu subaa jàmm <laughs> koor gi moom bu jeexee. man de damay dem ci yow mbagg mbagg. foo tournée oustaz Pape France ak Amérique ak Belgique ak Cincinnati fu ngeen jëm ma fekk leen New dem ci dañuy dem ci loo ci xamul ah. oustaz Pape Alé man ak moom dañoo fas yéene def désormais comme presseur yooyu di nekk ci TikTok bi ñun nu ñuy def bu ñuy làkkee am am ku ko expliqué. ku ko firi ñiy traduire. pasteur yooyu di wax. pasteur yi bu ñu waxee. am na kooku ne ko il a dit xaw ma la la la léegi moom oustaz papa. mooy wax maa koy traduire. mooy traduire mais nag bàyyi dinaa sonn nag. waa léegi signé naa signé naa signé naa. mais nag oustaz papa. waaw man dinaa sonn trop. bu dee loo wax. bàyyi mi moo koy traduire. Mm. ma war cee taxaw naan amen man man xam naa dinaa sonn dinaa sonn trop dinaa sonn. parce que da ngay déwale. Ah, ah, ah. mais RFM ak TFM dina wéet. man ma fi def. parce que da nga bokk. day déwale. mu ngoog jërëjëf Oustaz Oustaz Modou Fall yow ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax euh, ba ca ba ca ba ca kanam incha allah. jërëjëf El Hadj xanaa amati mbégte rek. ndax tey moom yaakaar naa képp ku doon bàyyi xel waxtaan wi sa xol sedd na. Eh. rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci plateau bi. Mm-hmm. ni ko oustaz Pape Hann waxee ñun ñëpp bég nañu. Mm-hmm. nuyu bu baax ak di gërëm Serigne Bassirou Lo euh, sëñ Xaadim Lo mu sëñ Bassirou Lo ale Aram Lo. Mm-hmm. moom itam borom xam-xam la nekk ca Touba nekk jàmbaar. mu ngi yónnee message léegi moom itam di feeñal mbégteem. xam naa kon Pape ñu joxante dig daje rek suba ak jàmm incha allah. incha allah. et puis euh, bu leen fàtte jàngi ngañ mbàyyi tàkkusaanu euh, nabi euh, famille Mandaw Thiam ak Ngañ Thiam xam naa naa ci ñëwaat incha allah fi lekk suba merci beaucoup Pape Thioune jërëjëf Turando di la nuyu di bëgg ci bu baax a baax bu defee di nuyu Gilbert moom ma nga ba Thiès di ñu bàyyi xel di nuyu ki nga xam ne nag mooy Muniru bu leeral moom nag nee na sëram jox na sëriñ bi ay ay dallu marakis oh. waaw moom moom Muniru n'est-ce pas. Mhm. soxna faatu Meng ma grande sœur may na sëriñ bi ay marakis original mu niru mi ngi noonu message bi jàll na bu ko defee nag di sant nag ki nga xam ni mooy waa waa Damels euh, muy waa Pape Shop. Mhm. Pape ah. Pape Shop waaw xam nga faaw ñu ànd fa waaw il faut ñu dem fa de. <laughs> waaw mi ngi noonu en moom moom moo sañseel lu rafet lii. macha allah ñoom nag euh, seen numéro di 77 842 92 54 wala 77 843 14 94. man ndaw mooy maraaxib aussi maa ngi koy ziar bu baax a baax di ko bëggee message yi moo bari nag mais en tout cas képp koo xam ne yaa ngi doon topp rek. ak Baba Anta Fall Cheikh aussi. ma nga ba Thiès dañu bàyyi xel Ndiaga Wadd. Mhm. Mouhamed Ndoye nga xam ne moom Cheikh Ibrahima Fall rek la gëm Fatou Laza. moom Maodo Malick Mbaye aussi. Mhm. maa koy béggee bu baax a baax Serigne Khadim Gueye ñu ngi lay ñu ngi lay ziar bu baax. Mhm. Moussa Wade aussi. Euh, en ak képp koo xam ne sax limuñu ko ah ba. comme mënuñu lim ñëpp. waaw ku lim limul tamit nga nga comprendre ma ah, ku lim Diop <laughs> merci merci beaucoup Fatou Mami Diop Linguère bi sa maam la ñu doon waxtaanee. Eh, ñu ngi lay gërëm waaye gërëm gi itam day ànd ak précision ci bisu euh, euh, campenal bi. Mhm. numéro de téléphone yi bind naa ko ci sama réseau yi waaye mën ngeen ci wootee bu dee bëgg ngeen cee jàpp. Mhm. pour dimbali jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk campenal bu Liberté 6. 77 mhm. la 804 54 54. 77 804 54 54 xeebuñu pomme de terre xeebuñu euh, serviette hygiénique. wallaay bay voilà xeebuñu dara. wallaay xam nga. dañu ciy sant nag ku mel ne Fallou Kol. Mhm. moom su ma ko tuddee sama yaram dafay daw. ndaxte damay sama xel day dem ci oh, Marianne. ba heure bu ma ko tuddee rek sama yaram dafay daw. wallaahi Fallou Kol di gor su gore. Mm. bàyyi daaw dama ko wone ko damaa bëgg nga seetal ma. war na koo xoolaat. 200 nangam kol laa ko wax. ne ko moom laa bëgg nga xoolal ma ko ndax man su may jox détenu yi damay jël lu ëpp nombre bi fa nekk. Mm. aw ma droit wax nombre bi nekk ci biir. Mm-hmm. mais dama koy xam tout le temps parce que lu may def damay bëgg def lu ko ëpp. Mm-hmm. bi ma ko ko waxee mënoon na def calcul ne ma temps la. Mhm. mais daf ko yeb ne ma bàyyil ba mu egsi dinañ lay indil bi. yëpp ko ba ni mu toll bi ñu koy yéegal dama tiit dàmba yi ñu ko def bi mu dikkee ëpp na 300 ku la laaj 200 ngay jël ko 300 boole ceeg ni ma def naa ko addiya mhm. kon moom yaakaar naa ni kenn jiituwu ko ci bés bi su ma toogee ak yow faaw ma wax la ko mhm. ndaxte nag euh, ku ko xam ku nekk rek ci Mariane Siva te yow mii euh, bu ñu xoo bu ñu la xoolee rek Mariane rek la ñuy gis contrat ba yàlla na sedd ki ne dem heure bii daaw ñu nekkoon ak moom fii moom itam deful yàlla lu tax mu yóbbu ko ñun ñi fi toog defaluñ ko lu tax mu bàyyi ñu fi kon mboolem ñoom ñi fi nekkaloon njool euh, yaay déggéen ñoom ñëpp yàlla seen tëraay ba sedd ca suufu sibàqee sañu tëdd bàyyi dañuy am mbégte bu baax a baax a baax euh, tey ci waxtaan bi eh. tey xool sedd na eh. yaakaar naa maak Abba xanaa juróomi at a ngi nii wala lu ko ëpp bokkuñu plateau. kon loolu tamit mbégte lay doon ndax GFM famille lañu. Ah. Euh, beneen bi ci topp mooy ñi bokk teen bu ñu abalantee goj waaye mhm. dañuy mayante ndox. Mhm. te ñun ñëpp ñoo bokk kër Cheikhul Khadim gi nu mhm. nekk. te dañoo nangulante ku ci nekk talent bi la yàlla may. kon yàlla yàlla barkeel kër gi te yokk ko yow nag jàlloo li may wax ci yow. nee naa bu ma waxee ñu ne mbëggeel gi ma la bëgg la bañ nañ ko ba yaay dégg nañu daan seedeel naan baay ak euh, mami bu ñu taxawee <laughs> kenn du comprendre mais bu ñu wanantee ginnaaw ngay xam léeg-léeg ma xool ko ne yëkkat jooy léeg-léeg mu gis ma du ma nangoo xool day ferental xool bët yëfale waaye loolu caat comprendre na li tax di ziyaar njabootuk Serigne Thierno Diouf Lambaye maa ngi la koy wax keroog Ndeye Astou Diouf fële ca Washington Serigne Diouf Dame Diouf Lambaye waaye Serigne Dame Diouf Lambaye beneen bu ndawit dafa nekk sama kër El Hadj mhm. ak ñoom ñëpp maa ngi leen di ziyaar bu baax baax a a baax mm. mm. bàyyi na comme ni nga ko waxee bis bi xeebuñu ci yéemuñu ci mm. ndax dañuy def te ku nekk xam na ne du suñu doole moo ko matale ndax ku lu bari war te dara wàccu la te nga néegoo taxaw fenn di tàllal loxo di ñaan eh. abaa mii du taxaw ñaan leen ngir def ci poche am baa yóbbul ma mi caam la mu koy jox moo koy liggéey biisu njaay mii du leen ñaan ngir def ci poche am Pape Cheikh li muy def ñun ñii mu nekkal sax duñ ko yëg waaye nee naa man mami jomb naa tàllal juróomi baaraam hmm. ngir ñaan kenn def ci sama pochette hmm. waaye jomb maa fëgg nit ngir yóbbu ca camp pénal hmm. kon nag nañ ko déggee noonu xam ne li ñuy laaj du pour ñun te ku ci jëf ku nekk bu ñuy fay yool ba du ñun lañ koy fay déedéet yéen ñu ko joxe lañ koy fay loolu rek a tax ñu di leen woo di leen ko laaj kon jàppale leen ñu ci ndaxte ñun itam dañu cay xaar ndax suñu tur beeg suñu siiw bi rek lañ yaakaar ngir mën leen caa dimbali ñu ngi waajal bés bi nag bu dara teewee rek ñu daal di ah, jàpp ndax miin nañ ko 14 ans du benn bés bàyyi jox na leen numéro bi kon duma ci jaaraat mhm. bàyyi nag xam nga ñi ñuy solal amuñu seen fay ah, keroog damaa fël fii def cuub ne la jabar ministre bee ma solal cuub bi wër na YouTube bi wër na àdduna. Facebook a waaye xam nga bii fu mu jógee. fu mu ngi jógee ci Yacine Diaw cuub VIP. Mhm. Yaas borom centeur VIP nekk fii ci Sacré Cœur ci VDN bi. Mhm. bàyyi moo toog ba tey mu dagg cuub gi ni yónnee ma ko. Mhm. kon jeeg ji mën nañoo daw dem seeti ko ndax cuub nag dafa jàpp jeeg. Ah. numéro téléphone cinquante cinq 05 05. 655 05 05. bàyyi ñoom ñi ñuy solal. Mhm. ñun mënuñu leen a fay ndax dañuy dagg mbubb mu cher jox la. Mhm. te defewuñ ko dara lu dul bëgg visibilité. Mhm. aha kay ndaxte ñoom loolu lañ ci am. ndax nag mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax. kon na ñëpp dem di di jënd ci ñoom itam macha allah ndax ñoo ñuy taaral bañ ngeen ñu mën ñoo gis. Yaas VIP yàlla na sa jàmm yàgg. bàyyi nag am naa mbégte bu baax Moussa Thiam fële ca Air Afrique. Air Afrique xaw ma Air Air Sénégal. wax kat dina wax ba wax musibaam ndax lii abaa dina ko toogee ca rajo ba ba nga juumee sax ndax ñooñu aw ma ak ñoom affaire man pourtant Baye Cheikh baax na rek Baye Cheikh doy na rek barke Cheikh Ibrahima mi ñu doon waxtaanee tey Cheikh Ibrahima mi ñu doon waxtaanee tey doo lekk sa jëw léegi léegi bi ma ko nee dina ko nuyu dana ma bàyyi Cheikh a cay teg lu rëy rëy rëy mm. Air Sénégal Moussa Thiam fële ci Abidjan maa ngi koy nuyu ak Yacine mm. Diop di leen sant di leen gërëm jërë ngeen jëf Serigne Saliou Mbacké moom Serigne Cheikh moom Serigne Modou Fati Xari maa ngi lay ziar bàllay sa buri moom it Daaru Musti la dëkk macha allah jërëjëf Diop yaay Soda Mbacké ñu ngi lay gërëm bu baax merci beaucoup Khady Ndiaye. merci beaucoup Pape Cheikh di nuyu bu baax sama frère Papi moom mi ngi ñu doon seetaan sa question bi dommage que mënuñu ko woon posé sëñ mi xam naa ci deuxième partie bi lay doon. di nuyu aussi bu baax suñu yaay soxna mun Muntaxa nga xam ne ñun ñëpp moo ñu boole. Ah euh, njaboote donc di ko remercie bu baax ci taxaw bi mu ñuy taxaw ci partie bu nekk. Mm. remercier sama team bi comme d'habitude conseillère yi Kia ak Zahra ma mm. mère. Euh, ma sœur Adji <laughs> ma soeur Adji Thiam tàggu bi nañ ko pelloo rek léegi. <laughs> waaw remercie ma soeur Adji pour les bijoux une femme une boîte d'or te da lay yombalal paiement bi kat une femme noo ko fayee rek baax na. voilà mën nga jël say bijoux yóbbu donc merci beaucoup Baye Modou. Marianne Mendy Nindi jox Baye Modou yëpp pour mu ñëwal ma ko. Marianne Mendy na Nindi Kër Galas nag ku fa dem mun nga ci jël Baye Modou ñëw euh, sama yére bi waa Masalikul Jinaan mm. wala Cambérène ngeen dem ñawlu maag Aba ñu ote su tey Euh. donc <laughs> Baye Modou merci beaucoup Gorgeous di Baye Mbène pour le make-up la coiffure et le musoor boo fi nekkul woon mu ñaaw. Euh, malado Malado pour les sacs. pour les sacs. Uh-huh. et les montres donc voilà Pape Timbangook. man la Malado yi de moo tax sac yi nga doon indi fii. <laughs> mu gën foofu sa saaku njëkk yi moom jël ko takk ci mbuus day yore saaku malado kese vive malado mais les autres sacs pour cent cuir made in Sénégal doomu Sénégal la koy defar malado <laughs> merci Khady Aba no stress fanaan ci télé bi xëy ci rajo bi. Baye maa ngi lay Baye waaw bu subaa la dañuy toog kër ga. jàpp suñu ñàmbur Baye maa ngi lay kontaane mais mais maa ngi bëgg ci. Tine Mbengue moom aussi day def ay dons yóbbu ko ci euh, fi nga xam moom mooy ci banlieue bi. Euh, waaw ci fête bi nga xam ni mm. dafay dugg ci kër yëpp. bàyyi fa ay denrées alimentaire ay ah. sobleek pomme de terre yëpp ñi nga xam ne seen loxo. du jot seen ginnaaw ah. mu ngi leen di bàyyi xel bu baax mu ngi préparé lu ëpp 100 pack. yoo xam ne ah. da koy yóbbu ci banlieue bi. leen ko dimbalee donc loolu moom ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm bu baax mais li ma sol nii Baye euh, Ousmane si mhm. moo ma jox li nga xam mooy piis bi. ah mais ko ñëw ab jësnër la waaw soodo lañ ko foofu ca soodo ah, fa lañ ko ñëwee mais Omar Samba ko ñëw ah Omar Samba mooy ñëw say yos mooy ñëw sama yos mooy ñëw sama mooy ñëw say yos yi doom mhm. waaw yooyu yëpp rek moo koy ñëw maa maa ngi leen di kontaane bu baax waa kër membre daaru yooyu Synco Prestige waaw Baye bu ñëwoon rek na la kiiwaale rek Baye <laughs> en tout cas Baye c'est toujours un plaisir di partager ak yow euh, plateau bi donc maa ngi lay kontaane di bëgg ci équipe bi ñoom mm-hmm. Thioune ah ñoom euh, ki nga xam ni moom mooy Linguère Mami ah. ah ki nga xam ni moom mooy sama seex nga xam tey dafa xam ni fii laay génn tey mu toppandoo ma ah Bijou maa ngi lay bëggee bu baax ah. ah yaay bëggal sa bopp kay bu dee da ngeen nuyoo dafa jeex kay da ngay bàyyi ñeneen ñun yoo rek bàyyi nu nuyoo ci kaw nuyoo naa leen jàngal àdduna xale yi naa leen jàngal àdduna bu sama xet maa ngi lay kontaane Baye yàlla na ñëpp am jàmm jaajëf man dafa maa dikk ay ma kaa ñu ci xale bu <laughs> ndaw foofu ñu ngi lay gërëm jërëjëf El Hadj kontaane te bu baax sunu sëriñ sëriñ Abo mu sëriñ euh, mu sëriñ Cheikh Saliou mm. mu nekk koo xamante ni vraiment suñu suñu sëriñ la comme niñ koy niñ koy defee fii ci euh, kër gi sëriñ Massamba Mbacké moom sëriñ Fallou xalifa Daaru Karim jaajëf bu baax Mor Xarma mu télévision Futur Média Touba euh, Bamba Sarr Ofor Touba ak euh, Serigne Saliou RFM suñu di journaliste. jaajëfal bu baax aussi ñeneen ñi nga xamante ni ñu doon suivre bari na ci message yi ñu jot jaajëfal nañ leen euh, Manel encore une fois merci beaucoup El ba ci ba ci kanam. mu ngoog merci Sophie yow tamit ñu ngi lay gërëm bu baax. Cheikh kontaan noonu rek ci ànd bi ñu àndoon ci plateau bu macha allah bi nga xamante ne moo fi amoon tey Baye di jaajëfal rek Fatou Dime mi nga xamante ne moom it dafay jàpp ci samay euh, euh, combat tey nag moo ma defaral euh, jàllaabe bu rafet bi ma nga fële ca sité douane HLM boo fa demee nag mu ngi def collection tabaski korité bu mucc ayib di jaajëfal aussi sama partenaire yi nga xamante ne ñoo may accompagner fii sama biir waañ riz sangomar dekakila savon soxna mati sucria la vache qui yéeli taare eh, bi nga xam moo ñu àndil soow mu neex mi NMA Sandars Kosidi waa Euh, Sénico mi ñu àndil huilekat yi ak euh, so Soza Resto ci épices yu euh, mucc ayib yi ak warga flessa bi nga xam ne bàyyi seen waa Sénico ñoo ñu ko àndil poulet teral aussi ñoom mu ñu mukk ginnaaw bàyyi ñoom it dañuy accompagner fii suñu biir waañ di sant rek Baye Cheikh di gërëm ñëpp di nuyu rek suñu yaay it soxna Baali ñu ngi koy ziar bu baax a baax ci guddi gu tey gi Baye seex mu ngoog merci beaucoup Sophie Serigne Modou Aïda yow la ñuy bàyyi nga tëjal ñu jotaay bi ay kàddu cant ak euh, sikar suñuy apaiser ñu xëddaale ko ñu gërëm équipe yi ñu àndaloon yëpp Pape Samba Thiam xam naa sang bi gay euh, ëllëg moom il faut ma defal ko première partie bu neex Pape Samba mi nga xam ne nii euh, c'est l'un des plus grands réalisateurs de ce pays ñu ngi lay gërëm bu baax Apoulaye Laye maxtaar yow it euh, loo réalisé wul neexul ñu ngi lay gërëm euh, gërëm ñoom Fatima Even Fatou ma Pape Maguette Diakhaté càmmiñu euh, Soufi Diakhaté Soufi mi nga xamante ni démb la woon anniversaire am mais xam naa ni mook borom këram Pape Mbaye étincelle tey veillé nañu ak ñun ci guddi gi ñu jagleel maam Cheikh Ibrahima Fall gërëm ñoom Pape Mor Koulim Dioum ah Grand Dia Lumière ak ñoom kamu Seck fàttewuma itam laay ak waa service commercial képp koo xamante ni yaa ngi jàpp ci quartier général bi ñu ngi lay gërëm et puis merci ci euh, taxawaay bi euh, ñu bàyyi la euh, sëriñ Modou comme ça nga ñu jotaay bi. jërëjëf sëñ Pape. waaw waaye bu loolu weesoon nag ñu ngi lay ñaanal yow itam. amiin dërëjëf Cheikh Mamadou Fadel mi nga bëggu lu moom. waaw suñu borom sàmm la te aar la te guddal sa fan. yaa ngi mboolem ñi nga bokkal plateau bi yëpp. ñun dañ lay béggee ngir jëmmi bi Ibra ngir woyof gi ne ci ak baax gi ak yéene gi nga yéene ñëpp jàmm suñ Tuubaa xam na ko barke Cheikh Ibra dañ lay bëggee bu baax tey la ñuy doog a jàkkaarloo sa jëm jaay bëgg lañ bu baax a baax jërëjëf tey fas kóllëre la suñu diggante yow bëgg nga téel ñu ko ngir jëm Cheikh insha allahu rabbi jërëjëf sunu xol sedd na ci lool bëgg na lool ci daa mbur bu ñuy wax Mamadou Lamine Dias ma nga poor waaw day ku baax bi émission bi commencé la ma woo ne ma yónnee naa 400000 yoo xam ne 200000 yaa ko moom. waaw 200000 li ci des sëñ Moustapha moo ko moom. macha allah jox naa leen ko addee Cheikh Ibrahima. kon nag loolu day jaral leeral. Mm-hmm. ngir ñëpp xam ko ngir seerafaal képp tax mu def ko. Mm-hmm. Mm-hmm. nañu ko ñaanal baax suñu borom guddal fanam. jërëjëf ñu ko barke Cheikh ñu bàyyi la nga tëj. laa ilaa ilaa laa ilaa ilaa laa faal. allo.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 الله لا لا إله إلا الله إلا لا لا إلا إلا لا فعل إلا لا فعل فعل